at yooyu duwuñ at yu mujj yi te duwut at yu njëkk yi ah ndax dégg juróom benn fukki at ak ñetti at yi Muhammad ibnu Abdallah am moom ci jëmi boppam atam yooyu duwut at yu njëkk yi waaye duwut at yu mujj yi ci jamono bi kan mooy yonent yàlla Muhammad gars yi ànd leen def li nu màggal xayrul xalqi alquran daf ne afa ayina bi xalqin awal balhum fi labsin min xalqin jadid yàlla nee na seen mbubb yu mooy ki ko maye te moom ci boppam moo leen waaye yaayam mbubbam mi buñ ko ñoppatee day yëg mbubbam yàlla suñ ko ñoppatee day yëg kon mooy suñ jëmm yi waaye yonent yàlla muhammad gaa yi ñoo nettali ñu ne xayru rusli bi muy judd ca màkkatal mukarrama liir bu juddoogul ànd ak xam-xamam banque baaram yëpp tàllal benn baaram bi kon am na lu xew baaram bi xayrul xalqi tàllal ma ne ko amul mag doo ko xam waaye ban mag ngay am xam ko mag mu man mag ci àddina nag léegi siècle boo gis benn mag mu mat la ñuy am ci siècle bi mag mu mat mi ñu am mooy Maulana Cheikh Seyd Omar Kébé na ñëpp def nii nu màggal Cheikh Seydi Hadji Malick def ne lillaahi nuurun yakunu laahu mudi ahu abal wara taayira fi taayiri siyam yàlla am na genn leer gu muy dénkaane ñu ne ndax leer gi leeri ruuxu la wala gan leer la yàlla ne déedéet leer su amut leeri ruuxu du am njëriñ leer googu su amut leer gi ci ruuhu du am njëriñ ndax xale bi day juddu yàlla te ruuhu tàmbi na ci moom waaye nag yàlla dafa garaaw yàlla mu ne mu ne gaa yi allahumma rabbi anzil alayna maidatan min as-samaa'i takuna iidan li awwalina wal aaxirina gaa yi bi lan la feet bi lan la teddi lan la ci yàlla lan la gaa yi doon jox gaa yi démb ba ñoom seen jëm bopp mu nekk feet ma leen di wax ne mboolem koo xam ne gindee koogoo ci yàlla demal wuti ku la gindi billaahi wallaahi tallaahi xar mi nga yeew ci kër gi mbaam mi nga yeew ci kër gi nag mi nga yeew ci kër gi ñàkk a gindee koo gam te borom xam-xam yi nee nañu bi buum bi ñu ñaari buum la benn bi ci daaj bi lay jógee koo dem ci daaj bi kon ñaari ci biir mu ne ca sóoratu yaasin al yawma nahtimu eh, ala afwaahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kaanu yaksibuun ñu ne yàlla naka la na ñëpp def ni nu ànd ak yàlla tëj mbir mi nañ ko lijjanti xam nga bu njëkk doomu aadama yi liñ bi ma Mawlana Cheikh Sey ñëwagut dañoo foogoon ne ku muuma dafa judduwaalee bàkkaar déedéet kiñ sóob ci leer gi xamal la yàlla ba pare munoo wax yàlla munoo yëg yàlla kooku lañ wax ne dafa muuma Cheikh Amady Boy wa tasadu arjuluhum bi ma kaanu yaksibuun góor yàlla yoo ko moom yambar yi moomuñ ko de wa tasadu arjuluhum bi ma kaanu yaksibuun góor yàlla yee ko moom kañ takk tànkam bi manta dox baw bi adratul ilahiya yonent yàlla Moussa gars yi dañoo nettali ñu ne yonent yàlla musa alayhi salaatu wasalaam dafa fekk gars yi tëj teen bi Moussa am kàttanu tijji teen bi wax nañ dëgg ban teen la ban teen la yonent yàlla Moussa dipp ndekete teen ba maarifatu la waaye xaqiqatu muhammadiya la gars dañoo foogoon ne dafa métti nag اسمي سبو جل ما gi am na saayir juddu am na baatin juddu gi am na baatinu baatin ma ne sooy màggal saayir bi Mouhamad Ibnu Abdallah ngay màggal affaire Souleymane bi asimi sabo ñoom maa koy aaleel góor. ànd leen def ni nu màggal Maulana Cheikh Seyd. affaire Souleymane bi asimi sabo ñoom maa koy aaleel góor. waaye Cheikh Ibrahima sooy màggal baatin bi Muhammadu Rasulullah ngay màggal. affaire Souleymane bi asimi sabo ñoom maa koy aaleel góor. ah waaye sooy màggal baatinu baatin ba Muhammad xayru rusul li ngay màggal na ñëpp def ni nu màggal. affaire Souleymane eh, mooy xayrul wara moom ci jëmmi boppam ba juddu gars dañ ne si altine la juddu Maulana Cheikh Seyd Omar Kébé ne ma altine ba lijjanti altine day am liif ak laam. ànd leen def lii lu màggal xayru xalq. gaa yi nee na yonent yàlla Muhammad bi muy juddu moom ci jëm boppam dafa xotti jumbok yaay ji dal di ci peelu banque baaram yëpp tànnal benn bi ne yummi sabaaba afiru sliman bi asimi sabo ñor màkk yaa leen gën ànd leen def li nu màggal yonent bi afiru sliman bi asimi sabo eh, mi baadan asabiyahu yarnul ulwa saa yi ma mi ku koy xayrul xalq afiru sliman bi asimi sabo ñor màkk yaa leen xam nga rasulullah yi gars yi dañuy laajte ñu ne yonent yàlla Muhammad nu mu fi fekkee Moussa fekk fi aadama fekk fi gaay yëpp ba pare rasulaay jéggi leen borom am see way ca way wa mu ne kayfa tarxaa roqiyakal anbiyaaw yaa sama mata walat hasamaaw na ñëpp def ni nu màggal ko gaay di laajte yonent yàlla muhammad naka la yéegee moom yonent bi ba jéggi anbiyaaw yi maa la koy nettalil ci saayir bi ak ci baatin bi mawlaana Cheikh Seyd Omar Kébbe lim yëg ba dem weli ngara waalo ruuw yi nekk fii yëpp ñu ngi woon ci jëmmam ma ne li góor gi yëg ba dem ca wàllu Wélingara boobu ruuw yëpp a ngi ci jëmmam ji di saxbal wa in min sayin ila yusabbihu bi hamdi walakin la tafqahuna tasbihu na ñëpp def ni nu màggal gaa ya nga naan kayfa tarqa raqiyaka al anbiyaawu يا سماء متى ولد حسماو فني جمونيكو لم يساوكا آه، رسول الله لم يساوكا في ولاك وقد حال سن منك دون وسناو من رسول الله دوتي تار du wut ci tabe du wut ci mbaax kowe gi nekk ci rasulullah tolloowul ak kenn moo tax Maulana Cheikh Sayid Omar Kebbe mi jël jikkoom tolloowul ak kenn أفير سليمان بعزمي السبو جل مقي على الجن أنا اللي نفني نو ماقلكو أيو soo yoree ko jënanti bi yow ci sa jëmmi bopp ku lay misaal wala di la dendalee keneen kooku nax nañ ko xoolal innama masalu sifaatika li naasi si kama masala nujumal maawu te gaa yi nee nañ borom xam-xam yi nee nañ biddiw Ibrahima yooruñ jëm ci suuf dañoo yoor jëm ci kaw. ah waaye biddiw yooyu yéen biddiw la yéen biddiw la. خير الخلق قايل لنا لك ساعه العلوم من عالم من غيبي ومنها لادم اسمع افيروس ليمان باسمي سبو يال ما قيال رجل اه يلنتي يالله محمد مو سوبيكو كابين تبي مو رسول الله yonent yàlla Muhammad moo soppeeku électricien bi moom rasulaay e wax leen ne lakasaatul ulum min aalimin xaybi wa minha li aadama asmaaw ñu ne yonent yàlla Muhammad moo xamal yonent yàlla aadama tur ya tur ya yàlla ak aadama kan la ci suñ biir jëmm الفيروس لمن أنا بيسبو جل أنا قيال القوم أنا لن أنا لما قال خير ورا الفيروس لمن بيعسب بيسبو أنا ما قيال أنا متى لك سات العلوم من عالم الغيب ومنها لعدم الأسماء يلا سبحانه وتعالى من عالم الغيب عالم أنا فلا يشير على غيبه أحدا إلا من اتدى من رسول نيب دفني gaay yi أنا nañ xay bu kenn du ko xam loolu faydu def ko weddi gars yi nee na Ibrahima faydu kenn du ko xam maanaam xay kenn du ko xam loolu faydu daf ko weddi abirus liman bi asmi samo jon makkayalil ko e ci faydu ci ngay xamee ne nit mooy yàlla yàlla mooy nit yàlla nag ci coobareem ci la defee boppam moom muy nit moom yàlla سبحانه وتعالى نينا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فكن بين الناس باللاقي نا داود نيد لون أفيرس لمن بأسمي سبو يلا قيال أنا لن أيوه أيوه أيوه أيوه سبو يلا قيال كم من أنك تخليفة كي xanaa sa doom la ba tax muy nekk sa dono yàlla ne daawuda yow sa jëm bopp suma xalifa nga ndekete daawuda sant na booy sant na kebbe sant na bari sant na sàmm mbooleem nit kuy nokki ci ngelaw lii xalifa bi yàlla nga ak firus liman bi asli sabo yoon ma xëy alir gëm e alimul xayb fala ala xaybi ahadan waaye illa man ittada min rasulin ak virus liman bi asmi sabo yal ma kay na ñëpp def ni nu màggal xayrul xalqi virus liman bi asmi sabo yal ma kay alil gëm kooku mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak virus liman bi asmi sabo yal ma kay alil gëm nañ la def ni nu màggal yonent bi ak virus ee na naa la alimul xayb الفيروس لمن بأسمي سبو دمك فلا يجر على قيبي أحدا إلا من اتدع من رسوله الفيروس لمن بأسمي سبو دمك ما تغواجي bim ne laka saatul ulum laka ñeel na la saatul ulum jëmmi xam-xam min alimil xay bi xam-xam yi tukkee ci xay bu ku xàmmee jant ci sa jëmm ji xàmmee ci sa jëmm gis nag ci sa jëmm gis garab gi ci sa jëmm soo xamul xay bu kenn xamul أنا نبني المكة الخير العالمين أيوه، أيوه، أيوه، برام خم خم بدفني لم تزل في دمائر الكون لم تزل في دمائر الكون تختار لك الأمهات والعباخ afirus liman bi asmi sabo yoon makka yaa leen gën. ànd leen def nii nu màggal yonent yàlla Muhammad. afirus liman bi asmi sabo yoon makka yaa leen gën. Muhammad am na siècle bu mu tombé Moussa am na siècle bu mu tombé Ibrahima am na siècle bu mu tombé lam tazal fii damayrul kawni tuktaar lakkalu mawaatul abaaw. ànd leen def ni lu màggal yonent yàlla Muhammad nee naa la sànq ne la lam tadal fii damaayiril mu ne yonent bi musuta deñ ci kawnu bii ñu koy tànnal ay baay yu baax di ko tànnal ay yaay yu baax hee mbaa ñun juruñ ko parce que gars nañ كل شيء هالك الا وجهه لا يعلى شي جميني دويده افير سليمان بياسمي سمو يلما كيارين انا لا يعلى شي جميني باي بابا كردويده لا يعلى شي جميني باي عثمان دويده لا يعلى شي جميني باي عثمان دويده لا يعلى شي لا يعلى شي جميني باي عثمان دويده لا يعلى شي جميني باي لا يعلى شي لا يعلى شي لا يعلى شي لا يعلى شي لا يعلى شي ak virus li man di asibi sabo njëlma xiyaal yalgam ànd leen def ni nu màggal xayrul xalqi ak virus li man di asibi sabo njëlma xiyaal yalgam Cheikh Ibrahima kullu seyin halikun illa wajhahu lawul hukmu wa ilayhi turjawun ak virus li man di asibi sabo njëlma xiyaal yalgam ànd leen def ni nu màggal xayrul wara ayo ayo ayo sabo ay eh, yonent yàlla muhammad dañ koy tànnal ay baay ñu ne leer gi day toxalu yàlla dënk na ko aadama toxal ko def ko ci siisa loxal ko def ko ci ibrahima leer googu moo ñëw ba dugg ci abdallah waaye nag muhammadun basarun laakal basar بل هو كالياقوت بين الحجر أفير سليمان بأسمي سمو نيون مكي عليك نيون محمد مي غنا من لا بصر من نفل وإلا كالبصر بل هو كالياقوت بين الحجر أفير سليمان بأسمي سمو نيون مكي عليك أنا لا نفني نماغل الخير الخلق أفير سليمان بأسمي سمو نيون يننتي يلا محمد شيخ إبراهيم بموي جوتو تشمك لنا waaye yonent yàlla Muhammad su fekkee bi muy judd ci Makka am na lu xew rasulullaay nag ba muy judd ci Makkan wu ne lu xew. wulidal Mustafa bi Makkata. ànd leen def ni nu màggal yonent yàlla Muhammad. wulidal Mustafa bi Makkata. yonent yàlla Muhammad keroog bi leer gi waddee ca ruum ba Mamadou mu ne te na boo أن النور القادم ليلكم قد حل في قيمة من أبحر القيم أبير سليمان بأسمي سبو يا مكيال من دون كبة دو بانتندين دو كاميتو دو سنغال ليرغا ودون تي رسول الله تي دنم في تي تيب ليرغو ودنا تي مولانا شيخ سيد عمر كبة أبير سليمان بأسمي سبو يا مكيال أنا لا دفينو ماغال كو أبير سليمان بأسمي سبو looloo waral mu ne te nëbboo eewu leen an na nuural xat mi leer gi nga xam ne ku ko am mat leer gi nga xam ne ku ko xam am xam leer googu mooy te nuural xat mi léeg la ko moo sa guddi gi mooy jë mooy mooy mooy mooy gën lëndëm gi xat àlla mu ne xat àlla fii qiimatin min ataril qiyami xoolal soo amee muqaddam fii أم طالب في أم في دمخو إن البشائر ما زالت تبصرها حتى النار نواي سامي لتوامي تلو وتلو المستري افسدنا يا ساد مقتبس من نور الامن اكفر سليمان باسمي سبو غير ما كيالن انا اللي نفني له ماك الخير العالمين اكفر سليمان باسمي سبو غير ما كيالن من رسول الله جودومغا مغا تولو فين خوب بيديو با afiru sliman yaasimi sabo ndel ma kay alel تختار لك الأمهات والعباء كن ما مدد أفير سليمان بياسبي سبو يلما كيالي إيه ما فترة من الرسل إلى بصرت قومها بك أنبياء أفير سليمان بياسبي سبو يلما كيالي كنت أنت أنبكتي bi ñuy am ci Maulana Cheikh Seyd Omar Kebbe moom la yàlla di jàngale na ñëpp def ni nu màggal ko e mu ne xoolal maam adat fataratun Cheikh Amady musta passé musta passé musta passé ci yonent yi maam adat fataratun min rusli ila basarat qawma bikka an bi yaaw moo tax Maulana Cheikh Seyd Omar Kebbe cafka gi nekk ci laa la illallah ak salatu fatiha ci la ñu bëggalee ñun ci la ñu bëggalee afiirus liman bi asmi sabo ñol ma xiyaalir ga seen mbégte ci Maulana Cheikh Seydou wane leen ko na ñëpp def ni nu màggal afiirus liman bi asmi sabo ñol ma xiyaalir ga mamadat fataratun min rusli ila basarat qawma bika anbiyaw waaye Ibrahima tatabaaha afiirus liman bi asmi sabo ñol ma xiyaalir ga ah tatabaa bika lusuru wa bika aliya بدا اول اليوم ايوه ايوه ايوه صبو يوم ما قي على راو سيدنا علي وسيسي جمانو سانسي بي موي سانسي اك سوبيكو بو موي سوبيكو اك نات كي موي نات اك مبتي مبتي مبتي مو لا بوتري دوي تتا با بك الوسور والتسمو إيه، بك عليا بعدها اليوم afirus liman bi asmi samo nu màggal xayru wala. afirus mu ne jamono mu ngi taaro jamono mu ngi rafetee jamono mu ngi baaxee ci kan ci rasulullaay. afirus liman bi asmi samo mboolem ku yàlla baaxee ak kowe ci xam ak kowe ci man bi ka aliya baadaha aliyaaw. moo النور عبد الله سيفتاه سمن وعبد المناف مخزين همين وسلي يا إلهي ويصبر يا أبانا أنا محمد سيد الحجي محمد يا عبد المناف مقسم وصلي وي وي سبيني بلني انا سن الحجي واجب تعالى اتباع الذي يأتي من الأمام وصلي يا إلهي وسيرا أمانا أنا محمدانا مختار سن الخجين وليس نفعنا على حبيب بلا أمال وتابع سنة المختار تغتني وصلي يا إلهي ذكري صلاتي ثم نصرة ديني ثم نصرة ديني ثم نصرة يومي ثم نصرة ديني ثم نصرة سيني ثم نصرة ديني ثم نصرة ديني ثم نصرة سيني ثم نصرة ديني Sumanu suratu dini Sumanu suratu dini mooy daare loolu sigina la ku ci dee taapi ale loolu sigina la yóbbaale say loolu sigina la yóbbaale say loolu sigina la hidaaya ki loolu si diina la bokk sunu góor gee ko wax billaay ay waxam doona si diina la bokk daf ko teg fuur si diina la bokk téere yàlla bi si diina la bokk muy alquraan si diina la bokk ak hadiis yow si diina la bokk teg ci ijma loolu si diina la bokk tamit góor gi am loolu si diina la bokk si taarix loolu si diina la bokk ak saari loolu si diina la bokk soo jullee soo si diina la bokk soo jullee نور سكينة لبقصوك بليس نور سكينة لبقصوك جلسوك نور سكينة لبقان دفاتي نور سكينة لبقمي بني نور سكينة لبستغفير الله سكينة لبقسي لحيتا قب سكينة لبستغفير الله سكينة لبقمي بني نور سكينة لا إله إلا الله سكينة لا إله إلا الله سكينة هو حي الخير سكينة لبقفن ويلي يا سكينة سجين لا صلاة الفاتحة نور سجين لا دور مفكي بالله بوري جل سجين اللهم صل سجين لا الله سيدنا سجين لا محمد سجين لا الفاتح سجين لا لما أخلق سجين لا هو الخاتم لما ناصر نور سجين لا ناصر الهوس دين لبك حقي بالهوس دين لبك والهول نوس دين لبك إلى صراط مستقيم نوس دين لبك وعلى هوس دين لبك حق قدير نوس دين لبك ومقدار الهوس دين لبك ومقدار الهوس دين لبك صلاة الفاتحة نيوبي يا قلوبي صفدين لبك صلاة الفاتحة نيوبي يا قلوبي صفدين لبك صلاة صلاة الفاتحة نيل بي يا قبل ميسات صلاة الفاتحة نيل بي يا قبل ميسات بيبين يكو جام سدين بيبين يكو جام سدين بيبين يا سدين لا إله إلا الله سدين أستغفر الله سدين هو الحي القيوم سدين na la ba fanweer yoon sidiina la ba jàng fanweer sidiina la ba la ilaha illallah sidiina la ba lanu màggal yàlla sidiina la ba bëgg leen màggal yàlla sidiina la bëgg leen màggal yàlla sidiina la bëgg leen wéetal yàlla sidiina la bëgg leen màggal yàlla sidiina la bëgg leen màggal yàlla sidiina la bur yàlla kenn la sidiina la bur yàlla kenn la sidiina la bur yàlla kenn la sidiina la bur yàlla kenn la sidiina la

na la bur yàlla kenn noo la si diina la bur yàlla kenn noo la si diina la bur yàlla kenn noo la si diina la bur yàlla kenn noo la si diina la bur yàlla kenn noo la si diina la bur yàlla kenn noo la si diina la kenn juuru ko amul ndey amul baay si diina la yokkal maaro joor si diina la bur yàlla kenn noo la si diina la bur yàlla kenn noo la si diina la bur yàlla kenn noo la si diina la واحد سدين لب الله واحد سدين لب الله واحد سدين لب لا إله إلا الله سدين لب لنا معك اليوم سدين لب بقلنا بيتر اليوم سدين لب بقلنا معك اليوم سدين لب بقلنا معك اليوم سدين لب لنا معك اليوم سدين لب نور سنين لبك يلا بك نور سنين لبك لا اله الا الله نور سنين لبك لا اله الا الله نور سنين لبك لا اله الا الله نور سنين لبك لا loolu si diina la bokk. la ilaha illa loolu si diina la bokk. la ilaha illa loolu si diina la bokk. la ilaha illa loolu si diina la bokk. la ilaha illa loolu si diina la bokk. nanu weetal yàlla si diina la bokk. ba baax si diina la ñëpp la nuy woye si diina la ñëpp la nuy woye si diina la ñëpp la nuy woye si diina la Madou Bamba baax si diina la murid jogale jaayo si diina la murid jogale jaayo si diina la Bamba jar noonu si diina la Bamba deewul jëru si diina la buñ ni ci yoru siniin a la depuis taqus yoru siniin a la mudaaxal tuubam yoru siniin a la ma perla sànni ko siniin a la bismi ilaahi yoru siniin a la yannoo la haa yoru siniin a la billaa maanaa yoru siniin a la wala diha yoru siniin سنين لبب سيد إبراهيم نور سنين إبراهيم باب الموري نور سنين لبب إبراهيم تكون يولا سنين لبب الدوكر نور سنين لبب وان ما يالا نور سنين لبب ما دف نور سنين لبب لا إله إلا الله نور سنين لبب لا إله إلا الله نور سنين لبب ودي لن كون لن خام سنين لا كون بيجا بار سنين لبب يمكن دي كون سنين لبب تاري يالا سنين الله يالا سنين Gondo by Zaire Kebe Magare Rayu Dina Sidina Ilaha Illallah Sidina Yujulin Dagala Maka Sidina Gondo by Zaire Kebe Sidina Magare Rayu Dina Sidina Ilaha Illallah Sidina Yujulin Dagala Maka Sidina Gondo by Zaire Kebe Sidina Magare Rayu Dina Sidina أتاكان مسرور من خالق المسنون الكمال بن مسجود الكمال سيدنا محمد كمال بن مسجود الكمال لي مجد يوت الكمال وانا قدك يوت الكمال لي مجد يوت الكمال وانا قدك يوت الكمال كيدا تندر بيدنا ذاك الكمال الفسقم ببدال كان ما دون بها كلامي يقال ومقولا كما كان مقتولا بلا لغم ak fiiru sliman biasmi sabo ñoom màkk yaa leen gën ak leen def nii nu màggal xayrul xalqi ak fiiru sliman biasmi sabo mu ne yonent yàlla Muhammad ba muy judd ca màkkatal mukarrama ak fiiru mu ne garab yi sax ci kaw suuf te ñu ngi déclaré juddu gi a fi rusliman bi asmi sabu jol ma kaalir ga a leen def li lu màggal yonent bi ak fi rusliman bi sabu jol ma kaalir ga bi yonent bi di judd ca màkkatal mu karam garab yi géej géej suuf ceeg asamaan si déclaré nañ juddug yonent bi ñu ne Maodo waxal mu ne faxdaratil arda wal asjaara fa summiyal ama ama fati wa rafami ànd leen def ni nu màggal xayru rusli yonent yàlla Muhammad at miñ ko ëmb ci biiru ndeyam na ñëpp déglu ña dëj ñëpp déglu ñu dikkaat yàlla ci boppam ma yàlla moo doy waar ñoo ëmb yonent yàlla Muhammad mboolem jigéen boo xam ne ëmb na ci màkkatal mu karam góor la ëmb góor góor Cheikh Ibrahima ma ne xilaas su fekkoon Maulana Cheikh Seyd Omar Kébbe jàngale waatut ko xilaas du leer waa asina لرحمن حمل سكور شا كلام إكراما لمحترم na ñëpp def nii nu magal xayrul xalq eh yéen jigéen ñi def leen nii nu magal yonent bi ma wax امير سليمان باسم سبو دنا خيارا ادمي يونت يالا محمد جدو ca makkatal mu karam mboolem jigéen bu ëmb góor la ëmb góor امير سليمان باسم سبو دنا خيارا وحسنا لرحماني حمل سكور ساك العام اغراما لمغترم ànd leen def nii lu màggal xayrul eh, ñi tarbiya ci Mawlana Cheikh Seyd Omar Kébé xam yàlla xam nañ jigéen ji nga xam ne mu ëmb te ëmb góor affaire Slimane bi hasibi sabo jol ma ko yaleen ko jigéen jëmb temb góor ñi tarbiya ñu àgg ci yàlla xam nañ ñoom loolu lan la na jangan def nii lu màggal yonent bi affaire Slimane bi hasibi mu ne tatabaa bikal usuru wa tasmu bika aliyaw bada aliyaw afiru sliman bi asimi sago jon makka yaa yàlla dogal ne bi ñu mbéy yenent bi jigéen ñi kenn juddu wut ndax góor ñu ñoo juddu waaye déglu li xewaat ci gi afiru sliman bi asimi wa ma tadiqun min niswaani min asafin أربنا ساكا من القواني لا تكمي لا تكمي افيرو سليمان بأسلي سابو يوم قيام أه كون كن دالغني فيالها ليلة القراء قد نكتت في الكنائس والأصنام من رقم توتي كونون سرير كل ملوك سعر متكسا بلا خلاف ورب الكعبة الحرم افيرو سليمان بأسلي سابو يوم قيام أنا لنبني نماغل ينتبي أيوه أيوه أيوه, أيوه. école wa ma tadiixun min niswaani min asafin aram na saaka min alkuwaani laa takki mi am na góor ñoo xam ne am na jigéen ñoo xam ne faatu ne ñaata jigéen la neel ñaat téeméeri jigéen afirus eh, liman taxa de juddug yeneen ci bi parce que wa ma tadiixun gis nga xaaf xaaf تيمير لا دات جرم نين فكولا يا حديث لا كون وما تديقون من نسواني من اسفن ارمنا ساكا من الكواني لا تكمي افير سليمان بهاس لي سمو يلما كي على القم لان مو قمل جيجن ني نجرو ني يونت يالله محمد واي نك لان مو قمل غور ني نجرو ني رسول الله افير سليمان بهاس لي سمو يلما كي على القم جيجن ني محمد لا ني جور واي غور ني ني جور رسول الله waa ana soppe Maulana Cheikh Sey nii na ñëpp def lii nu màggal. dama ne la jigéen ñi ñooy jur Muhammad waaye góor ñi Rasulullah la ñuy jur. mu ne kon wa ma tadiqun min niswaani min asafin arab na saaka min alqurani kon na déglul fa yàlla ha laylatal xarraa qad nukisat في الكنائس والأصنام من رحم mu ne guddi xayrul xalqi juddu guddi goo xam ne guddi gu leer naññ la ñu ne leeraay bi lan la lan moo tax mu leer yàlla dafa bàyyi yonent yàlla Muhammad ba du jaa zulami mu soog yónni afirus liman bi def ni nu magal xayru alamina afirus liman moo tax bim ne ñaar jigéen faatu na waaye ci juddug rasul ci juddug muhammad waaye ci juddug rasulaay ñaata góor dee moo tax ibrahima bu siri ne tatabaa bikal wa tasmu bika aliya bada aliyaw kon waxal wa bada afiru Souleymane Daas bi sabo yoon maa koy xaalal bi afiru Souleymane Daas bi sabo yoon maa koy xaalal ngëm balaa suuf di am amu yonent bi la asamaan di am amu yonent bi la ngelaw di am amu yonent bi la géej gi am amu yonent bi la moo tax mu wa bada li wujudi min ka karimin min karimin aba wo kurama waay nasabu e kon waxal ne nasabun تحسب الأولى بولاو وهي قلدت النجوم الجوشاو garaat yooyu lan moo tax yonent yàlla Muhammad ràngoo ko dafa xam kan mooy yàlla lan moo tax yonent yàlla Muhammad xam kan mooy yàlla yàlla moo wax wax ji wa kadhalika awayna إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلنا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا كنت جنب لن يقام يلا na ñëpp def dinu màggal moo tax wa badaali wujudi li lépp luy am ci tàmbali ga mu ngi amee ci yonent yàlla Muhammad yonent boobu bi muy jutu ca Màkka ñii dañ ne guddi la Maodo ne déedéet mat wi mu ngi tàmbali ci guddi gi waaye bi fajar gi xar ci la rasulaay judd nabiyun karimun wa ilayata sarafo ñal ma xeyalen gëm ànd leen def ni lu Muhammad ma xeyalen gëm moo tax bu siri mu ne laylatul mawlidi lati kaana ah, li diini sururun bi yawmi واستعاو نبي كريم وإلى يتصرف يوم قيادة مجل جدوك يننتي بي أكودك يننتي بي جدو أقام جدوك يننتي بي دو بن نبي كريم وإلى يتصرف يوم قيادة نيت كو باخ من ناي ماغال جدوك يننتي بي واي كي ييب جدوك يننتي بي سي بوبام كوك ريك راغني جدوك يننتي بي نبي كريم وإلى يتصرف moo tax juddu yonent bi ku ko bëgg a dégg pire da ngay delluwaat ci alquran yàlla nee na yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha wabtaqu ilayhi alwasila ku la jokkaleeg sa bopp ci sa borom nabiyul karimun ku la jokkaleeg sa bopp ci sa borom ci nga mën a gindeeku xam kan mooy yàlla subhanahu wa taala nabiyul karimun wa ilaya tasarrafo ànd leen li nu màggal yonent yàlla Muhammad شيخ إبراهيم نسب تخسب الولاد الله خلدت عن نجوم الجوساء ويدقل الحبسة إغد سعدد وفقعر أنت في يتيمة الأسماء ما تواجي قول ينتبه قول كوكب يلي منك ومحيا كسمسي منك ملون أسفرت عنه ليلة الغراء ويجد ليلة المولد kaana li diini sururun bi yow mi aw wasdi aw def leen nii nu màggal yonent bi e leelatul mawlidi guddik juddik yonent bi su doom aadama di am wërsëg juddug yonent bi la suy am xam-xam juddug yonent bi la suy am mbaax juddug yonent bi la moo tax mu ne sururun bi yow mi aw na ñëpp def nii nu màggal waaye ndeke bi yonent bi juddu am na ay aatif yuy jokkale ci kaw di yëgle juddu yonent bi moo tax ne wata wallat busral awaatifi an qad walida al mustafa wa haqal anaaw أفيرس لمن باسمي سمو يرمى قيال القلب أنا اللي نفني ماقل خير الخلق أفيرس لمن باسمي سمو يرمى قيال القلب بطري وغيكوني مودو وغيكوني مودو نتنبه قاي يولن أن نور القدم ليلكم قد على في قيمة من أعلى القيم أفيرس لمن باسمي سمو يرمى قيال القلب بطرنا وتولد بطر العواتب أن قد ولد المصطفى وعقلناه mu ne gaa yi màggal leen juddu gi gan juddu la ñuy màggal Mawlana Cheikh Seyd Omar Kébé nee na yàlla ci jëme boppam suñ la ko waxalee nga yëkku ci ruu gi sa noppi day dégg yàlla eh sa noppi day dégg yàlla sa bët yi gis yàlla alquran mu ne wa in min shay'in illaa yusabbihu bi hamdihi walakin la tafqahuna tasbihu ñu ne alquran waxalaat yàlla ne wayin min sayin ila indana qadailuhu waaye wa ma nunazil illa bi qadrin maalum yàlla nee na sëy boo gis moom ci jëm boppam mu ngi nekk ci moom ay magasin moo tax lu doy waar la magasin yi nopp am na waaye magasin yi dégg am na waaye magasin yi dégg dégg dégg dégg nit a ko moom wala xat karam naa bani aadama وايا وعملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وايا وفضلناهم على كثير ممن خلنا تفضيلا افيروس لمن باسمي سبو يلا ما كيارين قل انا لنبني نو ما قال خير ورا افيروس لمن باسمي سبو يلا ما كيارين قل انا لنبني نو ما قال يونت يالله محمد بيموي جودو غاي نين ما يونت بي بيموي جودو موم سي بوبام tusngal ko yóbbu ko baaxu góor mu soog a judd ban baax la ci góor nit bu róom gi setee wecc def na baaxu góor ci digganteem ak boromam ar rijaalu na ala nisaay waaye bi maa faddala ngeneel googa أفير سليمان بأسمين سبو يلما قيالنغم أنا لا نبني نماغ الخير ورا أفير سليمان بأسمين سبو يلما قيالنغم ينتي يالا محمد عليه الصلاة والسلام من وقتاني مون نيو بوك تانتي بي مصطفى تي جيم بوبام دوي دي أفير سليمان بأسمين سبو يلما قيالنغم مدا إمام علي ني ورو فيك واجعة أوديتها سترد برحمي ruu gi dénkaane bi yàlla la ci jëmmi doomu aadama ah, waaw sigal waaw illallah la ilaha illa allah Abdullah way walay ana sabnay yon ak jabul jaa way wallaay ku ma soppal yonent ba yow ci Muhammadu la way wallaay ana ñu bëgg yonent ba yow ci Muhammadu la naylu bi ana ñu bëgg yonent ba yow ci Muhammadu la wo wo wo ku ma soppal yonent ba yow ci Muhammadu la yónneen jógal jaar yow si Mamadu Lamin ay walay ku ma soppal yónneen jógal jaar yow si Mamadu Lamin ay walay ana jordag yónneen jógal jaar yow si Mamadu Lamin ay walay ana ñoom ana yónneen jógal jaar yow si Mamadu Lamin ay walay ana jordag yónneen jógal jaar yow si Mamadu محمد لا مي ولايكم صلى اليمن جل جاي يا محمد لا مي ولايكم صلى اليمن جل جاي يا محمد way walay am na ñu bëgg yónni dëgg la mi jaayoo si Mamadu la way walay nabi moo bëri nga gëlu lislaam baaku naa si Mamadu la wowowo nabi moo bëri nga gëlu lislaam baaku naa si Mamadu la way walay nabi moo tax ñoo am lislaam jaayu la si Mamadu ay walay nabi yaa tax ñoo amal kañu lan jaayoo si Mamadu la ay walay nabi yaa tax ñoo amal lislaam taaku naa si Mamadu la ay walay nabi ñoo bëri gëngël lislaam taaku naa si Mamadu la ay walay tegale ay doomam def lan jaayoo si Mamadu la Mustafa ay doomam jóg leen jaayu si Mamadou Lamine Moustapha te mu leen ay doomam jóg leen jaayu si Mamadou Lamine doomi yonent rabbi ya taala jóg leen jaayu si Mamadou Lamine way walay am kan sumu taala jóg leen jaayu si Mamadou Lamine way walay faate faataala jóg leen jaayu si Mamadou Lamine way walay Fatima Thiam. jërëjëf jaajëf si Mamadou la. wowowoo Seydou Thiam. jërëjëf jaajëf si Mamadou la. ay walaay Abdoulaye Thiam. jërëjëf jaajëf si Mamadou la. wowowoo Fatima Thiam. jërëjëf jaajëf si Mamadou la. wowowoo Rodaya Thiam. jërëjëf jaajëf si Mamadou la. ay abdou na taala jogel jaar yo ci Mamadu la wo qasim ko taala jogel jaar yo ci Mamadu la way walay Ibrahim taala jogel jaar yo ci Mamadu la Mustafa Abdoulaye mooy baayam jogel jaar na tay yaayam benn jaar ñoo ci Mamadou la Moustapha ay ñoo nay yaayam benn jaar ñoo ci Mamadou la woo woo dañu leen ay maamam benn jaar ñoo ci Mamadou la xanaa yow nga ko may nga dellu lislaam baaku naa ci Mamadou la ay Ousmane nabi moo may nga dellu lislaam baaku naa ci Mamadou la بركان الإسلام باكنا محمد لا سخدر مدن بركان الإسلام باكنا محمد لا والله كما سمبل يون كان جاي يو محمد لا مصطفى دمر يمكي مام تولد جاي يو محمد لا مامي يون سيدا كجالا دمر جاي يو محمد لا والله أكما نفجالا yàlla jóg leen jaay si Mamadou la way wallahi ma ne ma sem kaala jóg leen jaay si Mamadou la way wallahi moom caala jëmle bi jaay si Mamadu Lamin wo wo man ni la dara caala jëmle bi jaay si Mamadu Lamin man yon na la caala caala jëmle bi jaay si Mamadu Lamin man yon na la yoon caala jëmle bi jaay si Mamadu Lamin wo wo man yon na caala jëmle bi jaay si Mamadu Lamin ya dal ma la caala jëmle bi Yo, Simon. Ahmadu la way walay kebe moo tax ñu xam jëf ngeen jaay loo si Ahmadu la way walay góor gi moo tax ñu xam jëf ngeen jaay loo si Ahmadu la way walay kebe moo tax ñu xam jëf ngeen jaay loo si Ahmadu la way walay kebe moo tax ñu xam jëf ngeen jaay loo si Ahmadu la wo wo kebe man ni na do jëf ngeen jaay loo si Ahmadu la way walay kebe sa dal na daanu jóg leen jaal yoo si Mamadu la way wallaay sagal nga xel daanu jóg leen jaal yoo si Mamadu la way wallaay bu ñu xaamal leeru Seexu Tijaan Sëriñ si Mamadu la wo wo bu ñu xaamal leeru Seexu Tijaan Sëriñ si Mamadu la way sayit bu ñu xaamal leeru Seexu Tijaan Sëriñ si Mamadu la góor gi la yaa ñu xaamal leeru Seexu Tijaan Sëriñ si Mamadu way wallaay manu jàngal leeru seexu tiijaan sëriñ mamadu la way saxiir yoonu xawsal leeru seexu tiijaan sëriñ mamadu la way saxiir seexu lim ay doomam jóg leen jaay yow si mamadu la way e wallaay jënu ñembe caalam jóg leen jaay yow si mamadu la way wallaay jënu ñembe caalam e jóg leen jaay yow si mamadu la jatu kembe jala jawel jaay yow way bawa way walay jatu kembe jala jawel jaay yow si mamadou la gëna dal setu kese jala jawel jaay yow Mamadu la way walay sa mo saw caala jëgal jaay yow si Mamadu la way walay sa jëgal caala jëgal jaay yow si Mamadu la way walay sa jëgal caala jëgal jaay yow si la ilaha illa Allah la ilaha لا إله إلا الله لا إله يا جنان لا إله إلا الله لفيتك القلب يا جنان لا إله إلا الله لفيتك القلب يا جنان لا إله إلا الله بكتك جند يا جنان لا إله إلا الله أسعدك جند لا إله إلا الله ملك جبنا لا إله إلا الله عسيك جنك يا جنان لا إله إلا الله عسيك جنك يا جنان لا إله إلا الله عسيك جنك يا جنان لا إله إلا الله عسيك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

wane na ñun ñëpp suñu sëriñ ñëw na ñu am nañ bëgg leen doomu adama yi mais Baba Aliou Baba Aliou Baba Aliou mi dem siyaaru tayi sawi waaw kebe moo ñam ay doy fay doon mi dem siyaaru tayi sawi kebe moo ñam ay doy fay doon

Hey, hey, hey, hey. bay say pexe ñu gën a bind bay say pexe ñu gën a bind bay say pexe ñu gën a bind bay say pexe day dëkk bind bay say pexe day dëkk bind bay say pexe day dëkk bind bay say pexe bind bay say pexe bind bay say pexe bind bay say pexe bay say kese mun a gindi bay say kese mun a gindi bay say kese mun a gindi bay say kebe kebe ñaanal aajo yi faajo kebe ñaanal aajo yi faajo kebe ñaanal aajo yi faajo kebe ñaanal aajo yi faajo kebe gindi paisa enkebe bidindi paisa enkebe bidindi paisa enkebe amdi am paisa enkebe amdu am paisa enkebe bidindi paisa enkebe kunakundal paisa enkebe kunakundal paisa enkebe kunakundal paisa enkebe ñu nandal bay say pelle ku ñu nandal bay say pelle ku ñu nandal bay say pelle ku ñu gindi bay say pelle ku ñu gindi bay say pelle ku ñu gindi bay say pelle ku ñu gindi bay say pelle Allah Allah la ni dawe Allah Allah la ni dawe Allah Allah la ni dawe

gàmmu bi xaaj bi ci boppam ñëw na su ko defee dafa am soppaliku boo xam ne day am ci biir gàmmu gi te ci boppam léegi gàmmu ci loxoom la nekk waaye nag waaw su fekkee mu ne xale bi ci waroon a jàng alquran ñu ne wóolu nañ ko yunu sa bëri Cheikh Mouhamadul Kabir bëri mu ngi fi moom itam te dafay jàng alquran su ko defee su fekkee xale bi ñëw na ñu jox ko mu jàng alquran su ko defee ñu continuer ci programme bi oh ñu jox yunu sa parce que xale bi ci boppam waxtu dafa rombo woo nañ ko waaye fekk boobu Oustaz Diop xaw ma programme ne ko o programme gu mu ne xale bi ñëw na Abdoulaye Gueye nekk ci daara ji ñu ne su fekkee xale bi nga indi ko mu jàng alquran Mamadou Fati Mamadou Fati ñu ne nga ñëw fii nga jàng alquran Mamadou Fati ci daara bi la nekk di jàng alxuraan woowoon nañ ko waaye dafa fekkoon booba moom ci boppam nekku fi woon dinañ ko jox mu jàng alxuraan ci daara ji la nekk te xale la loolu liñ koy defee du dara pour feeñalal gaa yi nga xam ne ñu ngi jàng alxuraan te nekk ci daara ji seen liggéey nit ñi gis ko ñu xàmme ko waaye nag bala may sori Oustaz Daouda Thiam wax na ne gàmmu xaatam gi wala sant baay seet bu muy def ci Bañaaka ci bisu tey bi bu dellu mu nee dinañ ko def ca Bañaaka bëgg na taalibe yépp tànje ma naan Bañaaka man bu xasee dugg Bañaaka Bañaaka rek lay wax mu ne dinañ ko def ca tànje bisu tey bi su dellu see ci la ñuy guddi boobu nga xam ne gàmmu la ñu tuddee ko baay seet bay seen nag wax dëgg yàlla bantanding la juddoo yaroon dugu kebbe waaye juddu haatam weli ngara waala la cheikh mouhamadoul kabir la juddu haat boobu nag moom la cheikh daawuda caam tuddee sant bay seet bu wutee ak bi ibu kebbe daan def su ko defee ñu defee ko ca bañaaka ñu tuddee ko ngénte rasulullahi sallallahu Alaihi Wasallam. sallam ku juddu wut ñu su ko defee xale bi mu alquran ñu ne a Daouda Thiam samedi bii ñëw bi ci tegee mooy nekk sant Baye Seydou bi ca Tànje samedi bii ñëw bu bu bu deemu see mooy sant Baye Seydou ca Tànje na ko ñëpp de bëgg nañ ñëpp teew fa bëgg nañ mu xumb. lépp loo xam ne raté nañ ko ci gàmmoog daaw yi bëgg nañ ci gàmmoog ren yi nga ne njëkk na mu ñu fayeeku ko parce que wax dëgg yàlla lépp fay ku lépp lay nañ la fay kon bëgg nañ ñëpp ñëw ci gàmmu ga ci ndigalu Seex Seydou Omar Keppe Kabir Bari ndigalu Seex Jamal Bari parce que góor gi deful dara loo xam ne ni pour boppam la pour waawe li nga laa rek ñoo kon xale bi te kuy jàng alxuraan ku nekk lu waay am man nga koy jël nga indi ko tegal ko ko fii su ko defee moom itam mu béggee ko moom ak sëriñam ak mbokki daaraam yi kon Cheikh Omar Fati bisimilah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 ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهوا لمن فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم ما تسبق من أمة نجلا وما يستاقرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في سيع الأولين ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به فقد خلت سنة الأولين ولو لقالوا إنما سكرت أبصارهم بل لعن قوم مسؤول صدق الله العظيم الشيخ عمر فاي نون لدي Fati Mamadou Fati jëlal mbuus gi nga dem ñu ñaanal ko rek yal na yàlla barkeel ko te barkeel am njàngam ñu barkeel ñaan yàlla def ci daara ji barke te daara Cheikh Sayid kenn du ko ñaanal barke parce que moom ci boppam xalaatoon na daara Sayidiyya dana am muy lépp loo xam ne toomaa la ci moom danañ toog ba am daara boo xam ne daara Sayidiyya lay doon ak fu mu mën a nekk kon su ko defee dañuy dawalaat programme bi tuuti dama doon wax ne xaaj bu njëkk bi jeex na xaaju ñaareel bila la te sëñ bi ci boppam am na ñoo xam ne ñëw nañ ñii ay mbokk lañ ñii ay soppe ñii xaritam lañ ñii dëkku sëriñam lañ ñii ay jigéenam lañ ñëpp ñëw nañ ak taalibe yi ak mbokki dëkkandoor yi ñi nga xam ne at bu jot baañaaka la ñuy gàmmoo si ñëpp ñëw nañ pour gàmmoo si su ko defee liñ bëgg a dégg rek mooy yàlla waaye programme dafa am fu muy toll dañuy dog waxtaanu yàlla wa wala ñu dog waneen waxtaan ba ñu jox ki nga xam ne moo moom programme bi mu waxtaan ak nit ñi waaye xale bi nga xam ne moo nekk ci daara ji jàng na alquran am na koo xam ne moo baaxoo woon di ñu jàngal alquran muy seex yunusa mu seex muhammadul kabir bari saahibul fuyoodaat rabbaniya te kooku mooy léppi léppi sëñ bi amul leneen dañ koy jox mu ñëw taxaw fii mu jàng alquran xale bi doon jàng baat bi mu doon jàng ci alquran baati lan la bu soose la doon jàng du alquran yi soose de defe naa jàngur alquran yi olof de parce que alxuraani olof liñ ci gën a ñàng faana faana bi ba muy jàng alxuraan dañ ko topp naan wan mu nu mujjee wa juq juq jee juqoorun moom fa toog fa jàppu njàmburam mu niirun wa nii nii nii wa nii nii nii wa nii nii loolu rek la doon alxuraan alxuraan jooju neexut tajwid bi baaxut ko defee ñu ñëwoon ak tey fii nu mu nu ma amut seex yu nu sa bari ñu jox ko mu jàng alxuraan nañ ko daan defee ñu defee ko ko dana danañu jàngal alquran ci wiit boo xam ne tukulóor yi rek lañ mii a dégg ñuy jàngee boobu insa mu ne alquran ji jeex na moo tax jolaa yi ñu ne sànke ne ko bamban su ko defee seex yu na sa na nga ñëw fii nga taxaw jël rajo bi jàngal ñu alquran moom nag ñëw na ca ngoon démb ba léegi ko ba mu ñëwee Vélingara woo na ma ne ma dikk naa indi naa alquran yoo xam ne ju neex la xama nag dafa utee ak jum ñi daan jàngal wala déet fekk na ma fa ma dalit ne ma indi indihaale na alquran ju neex waaye daal xam naa ne bala maa jox rajo bi war ngaa def na nga daan def ndax wax dëgg yàlla yëf yi xaw a xoom tuuti li ma wax rek lay wax kon nag yëf yi pour mu xoom Yunusa mu ngi ko teg ci yéen dañ dem feli garawaalo mu xool mbooloo mi ne ma xam naa fii de dinaa fi war a mën am benn siyaara la woon dinaa fi am tuuti xaalis de ma ne ko ah lu ma ci xam bu doon jotaay yi nay lu daa dey ma ne danga fi bëri xaalis waay jotaay bii dey ah ma yoo ci am mu dem jàng alquran <laughs> ñëw toog ne ma ah seen seen seen col yi nii rafet nañ waaye maye wuñ xaalis dix mille rek laa fa am kon nag waa nay lu daa doomi Cheikh Mouhamadoul Kabir la moo Cheikh Mouhamadoul Kabir ngeen génnee ko indi jegal ko ko fii mu xoom lool nga xam ne lu mu yaakaaree ba at bu jot mu ñëw gàmmoo si ñu defal ko ko nit ku nekk nag dafa am lu miin waxtu wu sëñ bi demee Wélingara moom ci boppam dina ñëw seet si ko te wax dëgg yàlla bëgg naa fii mu om lool ba la mu waxoon ci yoonam mu njëkk ba mu waxaat ko fekk mu ngi ngoro ba mu àggee dafa wax Cheikh Mouhamadul Kabir xaalis dëgg laa indi foog ma dem ci wàkku nguna rek ma yéey ci ganaar te bii bëgg naa bu ñibbee itam bu mën a yéey ganaar bu baax a baax kon Cheikh Yunusa bismillah ma seet ban alquran nga bi ñu jàngaloon weli ngaraa ci ngóom mi soxla ma boobu bi nga ci siyaare colonel soxla ma boobu alxuraan bu neex bu ees bi nga indi boobu laa bëgg a dégg jërëjëf أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاها فليس عليهن جناه أن يدعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على العمي حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله كذلك يبين الله لكم لآياته لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعد شأنهم فازا لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعدكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امرهم ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم وكاي كون باخنا شيخ شيخ يوسفي مون دو جانغال القران دي moom ci boppam nag alxuraan la ba pare mu taxaw di القران alxuraan moo tax nit lu mu doon moo tax doomi olof am na waaye doomi pëlit am na ca nàmp gala te yàgg ci ñoom te ko waxee su ko te fay du ko kon alquran daa fekk mu alquran moo mu alquran ñu continuer programme bi ki nga xam ne nii lay war jox mu sànni ay ku bëgg Cheikh doomu bokk turandoor ñoom ñaar ñëpp seet kumba kebbe ñoom ñëpp seet kumba kebbe mooy seen maam ñoom ñëpp seet kumba kebbe lañ leen tuddee seet kumba kebbe moo sanci ndungu kebbe kooku nag mooy Baye Sayid bi nga xam ne ni usmaan Baas mooy baayam moom moo toog nii nekk rakki Cheikh Sayid xam naa moom ak sëriñ bi eh, yaram bee naqadi waaye Baye seet pire ba koy xam góor gu rafet la woon te moo dàqoon baayam baayam ko gënoon a yeewu nag daanu daan na def tool yu rëy te du dem tool jàpp ay surga xale yi ci dëkk bi ku tooñ mu far ak yow bu nawet jotee gune yi bay tool bi <laughs> pël bi dafa ñëw ci dëkk bi war a dem dal laajte kër borom dëkk bi ba pare <laughs> soo mbokki pël yi baala leen ma ba pare ah gune yi ñëw ci guddi ci pénc mi jël xaalis sàcc bi ba pare daw ak moom mu xëy xàmmi ci kenn yóbbu ko kër borom gune yi yëpp xale bi jàpp mu lim ñi nga xam ne ñoom la bokkatoon jël xaalis bi moo ko bu ñoom ñu ne gune yii ñoom a sos démb jël suma xaalis bi ñu ne lu mu mu ne man na cinquante mille CFA fukki junne ñu ne ko a ah, xaalis boobu de xaw naa bëri ñu bëgg cee sonal gune yi maam ne ko bëri na ko yow sax fu la gune yi fekk bëri la duma <laughs> mu ne ñu ma fekk ci daj ji nga xam ne mu ngi ci boori ci kaw mango gi mu ne ko dëkkoo ci dëkk bi mu ne ko déedéet gan laa mu ne ko lu tax laajte wuloo kër borom dëkk pour fanaan fa luñ la def yaa ko def sa bopp aca doxal gu ne dem leen ñi bi su ko defee kookooy maam bi jot ñëpp dem bay toolam moo jur Sayr Omar mi maam Ousmane Baas mii mu bokk ak Sayr Omar Kebbe baay parce que seen baay ñoo bokk baay ñoom ñëpp ñoo bokk menn maam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 muy alaaji Sayid Omar Kébé ak Sayid Jamal bari mii nga xam ne moo toog ci borom a ah, kontaanati nañ de daan nañ kontaan waaye gën nañoo kontaan xam naa ne dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg daal yàlla mooy maye ta maye na madinatul anwar gii cosaanam mooy ndungu Kébé waaye tey jii géej Mbambalaan la goo xam ne ku romb soo bëggu da naan sax di nga naan soo bëggu da sangu di nga sangu soo bëggu da sëlmu di nga sëlmu te lépp loo fi laal mu barke kon dëkk bi fa tabaarakallaahu tooma jërëjëf liggéeyal nga jullit yi yëpp géej la goo xam ne mu ngee yol te kenn xamut app waayam waaye daal ku eba xam ne dañ ci naan te lépp njëriñ la gannaaw bu loolu yóbbee ñu ngi ko siyaare bu baax di góor gi ah ñoo bokk de waaye yàlla kiy cëral cëral na ko te li tax ma di ko wax tey dañ séq maag moom loo xam ne ah góor yàlla yi bari nañ waaye nag duñ benn ndax bés dafa xew am lu xew lu jaaxal ñépp metti lool lu ne xajoon ci def nañ pexe bu ne mun te sotti la fa sës ma ne ma oo ko yëgal ko ko fekk mu ngi bàyyi ñàkka fii ba ma ko ooyee wax ko lépp ba pare mu ne ma loolu rek la ma ne ko waaw mu ne ma li ngaa def maa la koo jox nga defal ko sa bopp man duma ko def de waaye nag yàlla ca mayam nga defal li ma la wax mu defal ñu liñ bëgg léegi ba ma ko waxee ama ci ñaari xel ma jóg def ko pare gu ma ma koolaat ko ne ah dara sa tiwut de kere wax na ma waxin woo xam ne tiit naa ba ma ne toomaa ba yuuxuma dama tiit mu ne ma defal li ma la wax yàlla defal ñu liñ bugg lii la ma wax te ba ma ko defee matut fukki minute ak juróom yàlla sottal lépp jarul wax lépp waaye daal li wér ba wér mooy yàlla kiy maye cëral na ko ba lum ñaan yàlla jox ko ko te man de xam naa ci dara ndax seq nañ ko maak moom boor bu ne lu loo xam ne sax daf maa defal de dama wane demal def nangam nangam ak nangam sotti lii mooy suma soxla mu ne ma demal def nangam ak nangam nangam sotti kon na góor gi yàlla ki nga xam ne moo yore lépp di ko joxe joxe na joxe na joxe na waaye yal na yàgg yal na neex yal na gën a yaatu yal na gën a neex suñ mbokki ñoomi yépp ñaari ñoom yi jooka ak su ma eboone ñombaato ñëpp a ngee nuyu sëñ bi ñëpp a ngee siyaare di siyaare waay jaaga waa Baay ñàkk ndax ñoo ñu dalal ba yëf yi yaatu nii kon nag waa Baay Ñàkka ñun ak suñuy bokk yëpp ñu ngi leen a wax jëri géen jëf jëri gën jëf seen liggéey ci sëriñ bi yàlla nangu na ko barkeel na ko gannaaw loolu mbokki taalibe yi nga xam ni ñoo fi bokk ne yéen itam jëri géen jëf ñëpp ñëw nañ te yoon yi foo jaar dooyee Serekunda ba fii yoon yi yëpp moto yi yëpp a ngay ñëw te ñëpp fii lañ dem si ci góor bi am na ñoo xam ne sax xamuñ ko dañ dégg rek ñëw waaye incha allahu képp ku fi teg sa tànk géej jàngi mbaamulaan kenn ku ne say soxla dina faju incha allah ah gannaaw bu loolu la ñuy nuyu suñ suñuy jigéen yi bopp suñuy yaayi bopp muy ña bayee koo ndungu kebe ñi bayee koo ñoomi ñi bayee koo jookaa ñëpp ñëw nañ fekkee li si ñu duñu wax ne fekkee li si sëriñ bi fekkee li si ñun góor gi nag kon say bokk yëpp ñëw nañ say bi yëpp ñëw nañ waa ñoom yëpp ñëw nañ mu ñu bayee ko kër alkaali ñu bàyyee ko kër euh, borom dëkk ñu bàyyee ko ca kër imam ba ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñëpp ñëw nañ xam nañ ne béréb bi ñoo ko moom li fi ne ñoo ko moom yàlla jox nañu ko ñu ànd ci ak yow te ku ñëw di da ngaa tardé rek waa yàlla joxe na ba pare te du te dellu gannaaw kon nag sant yàlla bu baax gërëm mbokki jullit yi gërëm taalibe yi gërëm ñëpp sang bi ñu ngi laa gërëm bu baax sang bi ñu ngi laa jotal nuyoo waa ñoom yëpp sang bi ñu ngi laa jotal nuyoo say bokk yëpp say bokk yëpp ak say mbokki ndakaaru yi nga xam ne jàpp nañ rek te duñ bàyyi mukk ndax gis nañ li ko jara ko jar lu ko jarul jaru ko kon nag li ko jar bi mu ko jaree alhamdulillah yal na ñu yàlla boole rafetalal yëpp yal na yàgg yal na neex say bokk yëpp ñu ngi fi nuyu nañ la siyaare nañ la kon nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillah sëñ bi Cissé kon baax na maam seet Ousmane Baas moom mi sant kebbe moo wax loolu ci góor gi ku baax la du moom kenn moo dëkk ndungu kebbe ña dëkk ndungu kebbe bari nañ waaye bu teewee teewal waa ndungu kebbe yépp te waa Ndungu kebbe yi ñëw nañ ak doole te ñoom ñëpp ñu ngi ci gannaaw ànd ak waa Looheen ci njiitalu Ousmane Lo su ko defee ñu bàyyi xel daayira yëpp ñëw nañ daayira Naylul Huda from Ndombo wan amul kenn ku des te ñëpp ñëpp dañ ñëw ak doole su ko defee lii mooy gàmmo màggal juddu yónnant bi la te wax dëgg yàlla ku woote ñu uyu la amoo dara looy def lu dul mbégte te góor gi bég na li mu ootee yàlla ak yonant bi la soo seetee tànt bi li fi ne ñu réeree seen borom bariwut nit du réeree boromam boppam laay réeree waaye ku xeew mbaam ci kër ga kay bët bu set nga gis yàlla su ko defee ñu jox góor gi seex nduur mu jógee Dakar da xarit ci sëñ bi da soppe da lépp rawate na Bakka mbay mi nga xam ne moo nekk porte-parole ci kër sëriñ bi foo gis sëñ bi gis fa Bakka Bakka moomu jokkoo ak Cheikh nduur ci jamono bu jox kooku noonu moo teew te moom lañ bëgg a jox kàddu moom ci boppam mu représenté mbooleem koo xam ne danga nga jógee te fekk Baye Ousmane Traoré mu ngi fi Baye Kane mu ngi fi ñoom seex mbay waaye ñëpp ñu jox seex Ndour Cheikh Ndour nag ku ko wax ne nduureen nduureen nga nag Youssou Ndour waaye ku baax taxawee ko ci saayiran wa baatinan su ko defee ñu bàyyi xel ci bu baax a baax eh, ci ñi ñuy woy si su ko defee ñu bàyyi xel bu baax a baax ñun taalibe Nayl Huda buñ génnee ca yar ba ca teggi yéen ba maam seet soxla bu faju ci yow sëriñ bi daf la xaasal waaye caalit moo tax nga wax ko ñun ñu ngay dund ci moom da naan ci moom da tëdd ci moom da lekk ci moom ci bu ñu gisee ci bu ñu gisul lu ñu am mooma kon loo wax da ngay caalit waaye fekk yow yaa moom yëf yi buñ ko gisu doon xëllëgit te tàllal la loxo wallaahi la ca moom nga def ko ci ñun parce que bëgg na la sopp na la ci mbooleem ku sant kebbe nu mu la soppee bu ko soppi woon kebbe kebbe yëpp ñëpp dem aljana waaye ñu néew danañ dem aljana ca magi kebbe ya am na mag mu fa dee bu yàggul li <laughs> wax dëgg yàlla dana dem aljana sax dana dana maam maam ji dana demal parce que yonent bi alayhi salaam waa Quraysin ku ci dugg aljana yonent baa tax waaye jëfuñ ko lu day ni loola bisimilah Cheikh Nour ñu jox la nga waxtaan ak mbooloo mi bu ñuul bi dox euh, asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant waaw jii nag sama teewaay fii teewaayu gërëm gërëm gërëmaate rek la di gërëm sëñ Kébé mi nga xam ne mii ñu yabal ma Dakar ma ñëw fii pour représenter Youssou Ndour Youssou Ndour nag am na ñu mu nekkal ñoom Maram Dieng Madi kooku Bakka xam ci parce que man ak Bakka ñooy liggéey lu bëri. Hmm? naka ah waaw ma ni <coughs> baax ma ni gërëm ak sant rek moo ma fi indi tey jii nii waaw parce que ndaw bu ñu yebal la Youssou Ndour moo yebal parce que gis naa cër gi mu jox Sëñ Kébé ñoom ñaar toog nañu waxtaan nañu tëju nañu ak sama xarit bi toog sama wet waaw mbay juuf toog nañu tëju nañu waxtaan nañ ci lu bari te depuis boobu léegi Youssou Ndour xéwal rek la ci gis moo tax ñu yebal ma fii tey jii ci Banjul ma ñëw waaw ñëw bi nag di gërëm gërëm sëriñ bi bu baax a baax a baax a baax gërëm bu amul àpp ak ñi nga xam ne ñii ñoo koy doxal ay euh, Bakka Ibrahima euh, Bachir bàyyiwuma kenn euh, ñi nga xam ne nag ñoom la àndal ñuy muxaddam yi nii toog sama wet tonton Ousmane Traoré

defe naa loolu na de. Ah. bu ñu yéexee. Hmm. duñ ko jël. jël nañ ko dégg nga de ñu ñoom jël nañ ba pare. kon nag xëccoo bi dina metti bu yóbboo ngeen gën a góorgóorlu te xam ni yëf yi fii la ñun dañ ñëw di taataan si waaw te liñ fi gis doy nañu sëg ñu ngi gërëm nag waa Banjul yëpp bàyyiwuñu kenn kilifa diine kilifa aada ndaw yi gis nañ seen cawarte waaw defe naa yéen a ngi ci yoon bu baax jigéen ñi gis nañ seen taxawaay. waaw seen taxawaay rafet na liggéey bi vraiment fii dafa mel na que ni euh, camp militaire. parce que gis naa jigéen ñi xale yi mag ñi ndaw ñi kenn toogul ñëpp a ngi liggéey sëñ bi ñu ngi kontaan ci yow sama wax du bëri lu dul mbégte di kontaan. waaw Youssou Ndour nag mu ngi leen di gërëm di leen sant nee na bu mënul ñëw day ñëw sëñ bi xam nag ñu ngi kontaan di jërëm gëm ñëpp di sant ñëpp jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Wow, jërëjëf waaw kay waaw kooku mooy Cheikh Ndour Cheikh Ndour nag ku ko tudd da ngay tudd Cheikh Babacar Diouf bi nga xam ne def conférence at bu jot ca Wakaam te moo toog nii diggante Youssou Ndour ak Cheikh buñ demee ba jokkoo diggante Youssou ak bi ak Cheikh Cheikh Mbaye Diouf dox ba am waaye nag du sëriñ bi la bëggaloon tiranga de Youssou Ndour la bëggaloon tiranga ba mu jokkoo dégg ngeen li mu wax bi ñu jokkoo ba léegi amul dara lu ñuy réccu sëriñ bi daf da nit koo xam ne nii la mu am yàlla ko ko jox jaarale ko ci seex loxol Cheikh Mouhamadoul Kabir ba mu ko jotee ba léegi soxlawut yëfi jàmbur nu muy def rek dafa am lum soxla ci nit ñi muy seen ruux yi moom lay jël mu delloo ko yàlla nit ku nekk moom boppam dem doxi am liggéeyali boppam amul dara lu nit mën a def lu koy yokk amul lu nit mën a def lu koy wàññi la muy am am na ko ba pare fu ne li ci des ñi topp ci kawam ak ñu ñëw ci gàmmu gi dafa am luy soxla te ci moom lañ ko soxlaa te li ngeen soxla ku ko ci bëgg ba ñëw fii billaahi wal kitaab bi danga ko am ku parewut sa aajo doo teg sa tànk ci dëkk bi su ko defee ñu jox seex abdullahi bari doomi saayibul fuyoo daati rabbaaniya muy seex muhammadul kabir si Cheikh Mouhamadoul Kabir tànt bii moo ko taxawal wax say say ne ko gàmmo gi mawluud taxawal ko te ba koy taxawal booba dara waajut ko dara amu doon ku dégg ne Cheikh Say day def gàmmo nga naan Cheikh Omar Kébé lan la am bay def gàmmo ñu dooree ca xarma ca kër Welingara ca kër Cheikh Paate tant ca mbedd ma taw bi taw tasaare tànt tànt ba yëpp ñu yëkkatiwaat ko dal di ko taxawaat gàmmu googa mooy dox ba agsi fii baa ñaaka ku fi ñëw xam ne dëkk bu ruq la waaye lan moo fi indi nit ñi te yoon amut su ko defee ñu jox Cheikh Abdoulaye Bari moom itam mu rotal ay kàddum comme ni ñi jiitu waxee su ko defee moom nag doomi Cheikh Mouhamadoul Kabir la sëriñ bi nag melentaan way dox ca kër Cheikh Mouhamadoul Kabir wala ca biir wéri la jox na ko xorma góor googu nag doomam moo toog nii ñu jox ko mu waxtaan ak mbooloo mi moom itam mu yem yebbi kàddum waaye bala ma koy jox nit ñi dañ doy waar trop ñu ne dañuy dem ba ci kanam ñu ne waaw lu tax góor ñi ñëpp toog ñu jël benn jigéen bi teg ko ci kanamam te jigéen ñi toogee boor bii jigéen ji toog nii kookoy kan soppe sëriñ bila la mën naa wax ne taalibe la mën naa wax ne doom la mën naa wax ne lépp la mu nekk soxna si Mamoud Diop ki nga xam ne moo nekk ay jii police si nekk ci gàmbia moo leen ilif soxnaam moo toog nii da doom ci sëñ bi di taalibi ci sëñ bi di xarit ci sëñ bi te nu mu mel ci sëñ bi noonu la jëkkëram mel ci sëñ bi looloo tax ñu tegee nii waaye nekkul ne yéen jigéen ñi seen jëmm yi paase na jigéen seen ruux yi paase na góor rijaal ngeen ca yàlla rijaal ci baay seet rijaal ci tànt bi nii ñu jox Cheikh Abdoulaye Bari bisimilah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنيم أجر العاملين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم لي ñu وقتي موي داني واخ dañuy شيخ امام كبير Imam شيخ امام كبير Imam شيخ امام كبير Imam Cheikh Jamal Abdourahmane bari nga xam ne mooy xalifaam nga xam ne ci li feeñ ci zahir ndaw la waaye ñu ngi koy ñaanal mu dundi ay téeméeri téeméeri at ki ñu jox kàddu gi nii ne ko Cheikh Aliou Cissé wax waxee mooy Cheikh Abdoulaye Bari di rakk bi nga xam ne moo sës ci Cheikh Jamal Abdourahmane Bari fële ca kër ga ndax Cheikh Nouha moo ci topp waaye Cheikh Noyel dafa àtte mu ngi toog fii ci Kombo même ci jumaa ja tey gannaaw Cheikh Jamal Cheikh Abdourahmane Cheikh Bari mii moo yore jumaa ji mooy doxal ci kër gi lépp loo xam ne ñu ngi ko fay doxal gannaaw seex Jamal moom moo fi teew tey Cheikh Nouha ñëwoon na fi barki démb ci ngoon nekkoon na fi ba léegi ci ngoon ci guddi yàggu dara mu daal di dellu mën nañu comme ko yéen ngi fii na ngeen doxal gisante na ak sëriñ bi ñaanelante nañ ndokkale naa ko Cheikh Abdoulaye Bari mu fi fi ma waroon a taxawee dina ko taxawe li ma waroon a wax dina ko wax mook ay rakkam loolu mooy li nga xam ne moo tax Cheikh Abdoulaye Bari toog fii kon jox ko kàddu gi mu nuyu mbooloo mi incha allah Cheikh Abdoulaye Bari nee na alhamdulilahi rabil alhamdulillahi alladi hadana li hada wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadana allah mu ne mu ngi sant yàlla mi nga xamante ni moo ñu xiir ci lislaam nekkuñ suñu njàmbaarte yàlla ak coobarem moo dogalee noona ñu koy sante ci loolu bu baax baax mu ne balaa mooy wax dara mu ne loo gis rek dafa am sabab sabab bi mooy Mawlana Cheikh Sayid Omar Kébé moo waral jotaay bii ak fu mu mën a baaxee koo nag waa jotaay bii nii mooy sabab bi mu ne mu ngi koy xaasal nu yóbbu baax mu ngi koy wax ne mu ngi koy ñaanal yàlla bu baax ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax yàlla may ko wér yàlla may ko gudd fan ba mission islam bi mu man ko àggale fu ko bëgg a àggale loolu suñ ñaanee day am ñaanu bu ñu ñaanut day am waaye rafetal moo tax ñuy waxee nii mu ne ñu ngi koy gërëm di sant yàlla bu baax a baax mu ne ñëw na fii ci ndigal Cheikh Jamaal mu ne Cheikh Jamaal mu ngi jotu nuyoo jëm ci ñëpp ñëw nañ fii ànd ak ay rakkam ay rakk yu góor ay rakk yu jigéen ak waa Wélingara yëpp ñëpp ñëw nañ fii nii fekk si leen fii ci jotaay bu tedd bii fii nag ñëweewuñ fii ngir yëkkati benn laaya wala kiti benn hadis ñëw fii rek toog ak yéen bokk ak yéen loo xamante ni yàlla moo dogal mu boole ñu ci lii muy judd ban judd Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ni lépp lu am ci moom la amee juddoom la ñuy màggal mu ne sëriñ bi loolu mooñu fi indi kontaan bu baax baax mu ne kontaan mu ne sant na gërëm na kontaan na bu baax mu ne lii rek la bëggoon a wax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu kon baax na lii mooy gàmmu lii mooy màggal guddig yonent bi lii mooy màggal guddik Cheikh Mamadou Kabir Bari su ko defee ñu def ko niñ ko daan defee programme bi nit ñaa ngi ne tekk waaye kenn la wut dañu wéele programme bi nag waxkat yiñ bëggoon ñu wax ñëpp waxuñ de waaye suñ toppee kenn ku ne ak kàddum danañ topp affaire bi di ko waxtaane ba bër set te ministre bi itam wax nañ ne mu ngi ñëw ak seegul waaye su agsee ñu am yar ak teggiin may ko yoon ba mun a agsi ci jotaay bi parce que baax nañ fi ñi ñëw ba Banyanka ñu xool ko ñu xam ne fii li courant yi commencé na di daw pool yi taxaw nañ waaye li ñu gën a yitteel mooy yoon wu ñu jaar ba mën a agsi fii loolu moom Banyanka bëgg nañ ko lool Banyanka bëgg nañ ko lool pom bii nga xam ne moo nekk xur bii ci yoon bi bëgg nañ ko ko liggéey lool te wax dëgg yàlla sëriñ ak buur ñoom ñaar ñooy ànd téye réew mbooloo mii wax dëgg yàlla bu fekkoon mitini nguur la ah su paasee nii itam day ndënd yaa ngee tëgg lépp a ngee jolli te fekk ñu mel nii ñoo fay nekk kon sëriñ daal ci réew day dooleel buur buur nag su bëggee mbooloo war naa mën a dem jege ji sëriñ xam li sëriñ bëgg mu jàppale ko sëriñ man koo jàppale moom itam ci lam bëgg parce que ku falu dañ la fal su ko defee gis ngeen ko soxna si fi ñëw muy soxna si Cheikh Mahmoud Diop baax na moom itam mu xool ko bu baax a baax a baax yéen itam ngeen bàyyi ko bu baax a baax a baax yéen dawal ko ci oto yi police ci kaw yoon wi ngeen jox leen xorma bu ngeen amee fifty jox leen te xam ne ñoom ci seen bopp lu ngeen leen di dimbalee ah wax dëgg yàlla yéen a cee dimbale seen bopp parce que ñoom itam ay gor lañ ku séq ak ñoom trianga ñu séq ak yow trianga li ñu seex sayit ànd ak moom te mu ñu ko jàngal mu ne benn check boo jub mu ne la taxawal ñoo ñooñu fi nekkal ba dara jotuñu waaye ñoom itam nañ leen fi nekkal ñoom itam ba bu leen dara jot ñu mën a defar seen liggéey looloo fi indi soxna si su ko defee ci ndigalu jëkkëram ñu jox Cheikh Saïd mu waxtaan tuuti ak mbooloo mi du waxtaanu waare de moom nag xamul la lu dul yàlla yàlla dong la xam boo ko waxtaan looy ci diggantey bokk lam koy deferee mooy yàlla boo ko waxtaan loo ci sëy yàlla la lay wax fa àgg ci yàlla moo tax yàlla lay wax ñi jox ko ñi gan ñi nga xam ne jógee nañ fu sori nekk ay notable toog fi moom rek moo am sañ-sañ pour présenter leen ñam ñu waxoon ñu jox leen kàddu jox nañ leen kàddu ñu jox ko kàddu moom ca nañ ko daan defee mu sant mbooloo mu gërëm leen tatagal leen wan leen mbégteem ci ñëw bi fi ñëw su paree ca loola ñu continuer programme bi su boobaa nag gan ñooña képp koo xam ne ne bëgg naa yeeweeku mu mën a dem yeeweeku fekk dégg na kàddu sëriñ bi ñaanal na leen programme bi wéy ba waxtu woo xam ne nii góor gi wal naa jël kàddu mu jël kàddu waxtaat ak mbooloo mi su ko defee lii moom lañ taataanee gum ci programme bi ñu wéyale programme bi su ko defee góor gi ci boppam moom la ñuy jox waxtu waareewut mu tatagal ay mbooloo xam tatagal ay ganam mbégte am ci ñoom ñëpp mu ñaanal leen ku mën a yeeweeku yeeweeku ku bëgg tok toog déglu waxtaan déglu waxtaan ba ila akhir fa programme ba jéxé suñu démé nak ba nga xamné fajar mu ngey jot ci bëgg nañ goor gi mu jël radio bi mu wax nit ñi yalla su ba jé fajar ba ñëw mu def nam daan def ci walu jikko yi gannaaw Cheikh mamadou Kabir moko ko ko santoon te lu ko sant du ko ba waye dé bëgg nañ dé mu waxal ñi yalla pire nak gannaaw buñ paré ci lolu Basir Kebe dina jël rajo mu waxtaan ak mbolo mi ci abdir su paré ci lolu boori cinq heures maanaam cinq heures demi bëgguñ mu yéex sëñ bi jël rajo mu wax ak nit ñi ci yàlla mbooloo mi am lu ñibbee ñu am mbégte ba déwén parce que looloo ñu fi indi te ñu baree baree bari bari ak koo mën a wax koo mën a doon waxi sëriñ bi ci boppam moom ngay déglu moom ngay bëggee yi ci des dañ leen dugal pour noppal leen te xam ne temps bi dafa gudd te mag la te war nañ koo sakkanal waaye bëgg nañ mu wax nit ñi yàlla ba nga xam ne moom la daan wax xol yi bëgg ñu dem ñibbi da bëggee gàmmu gi ba déwén moom ci boppam ñu jox ko kàddu mu sant mbooloo gërëm mbooloo su ko defee ñu door a continuer moom ci boppam ci programme bi sala aleyka laaw yaa labal xudaa ma xannamu taxuni la maswaaka يا زين الكرادي جيتك خاسدا أرجو رداك وكبي معك يا ولا يا خير الخلائق إنني قلبا مسوقا لا يروم سواك وبحق جايك إنني لك مريم ولا يعلم أنني أهواك يا أنت الذي لولا كما قل خمره كلا ولا قل قل ورا لولاك أنت الذي min noorika badruktusa anta lasi lamaaru fitay la sama anta lasi fiina saalta safaatun anta lasi nadaka rabuka marhaban anta lasi lama tawa salatama min talatin bika fa sawa wa baaka yaay muhammadun sayyidul kawnayni wa saqalay nin wa fariqayni min arbin wa min ajamin nabiyuna labiru nay fala ahadun abar fi qawli la minhu wala naymi وابي والتي تردى تبعده لكل خول من الاهوال متيم يودا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل خير منفسم فاق نبينا في قلق وفي قلق ولم يدانه في حلم ولا كرم صلى الله عليه وسلم مصطفى مصطفى كبير Gracias.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 xam naa danañ sant ñi ñëw ci gàmmu gi waaye danañ sant ñi tànt tànt bi tànt bu mel ni yombul de foogu ma ne boo jigee tànt bi danga fekk fenn fuñ ko tànt ji Gàmbi tànt bu tool nii amu fi kon ñi ko tànt njaay ak sa tirib jërë ngeen jëf waaye xale yi nga xam ne ñoo góorgóorlu sànnante loxo jël seen warsak ba man leen a fay ngeen tant si ko ñoom xale nay lu daa yëpp jërë ngeen jëf takku nañ lool te fat lu lool su fekkoon dañ takku te fatlu xem ci déedéet dañ ko booleek bugguma lool ba tax na lu may yëngatu ci lu bëri parce que lu ma dugg rek dañ ma ca fekk boo sàgg na ñu def ci sax ba def si lu ma buggul moo tax ma bàyyee ñëpp seen bopp ma ken waxuma ken dara buñ jógee ma jogal suma bop classe Moustapha Gueye bakka maa leen man yag na andi tukki way xamna na ne ma ak ñom duñ ben xamna nak ma magal ma am béjja waaye suma béjjaaw be man seen kawar yu ñuul yi loolu yalla dogal li tax may jël rajo bi suma waxtu wax jotagul waye comme jami yalla yi dañ fi ñew ay kilifaang fi tok ñoo tax ñuy maa jox rajo bi waxtu wi ma am kàddu yi ma ci sànni looloo tax su fekkee ne ñëpp ñëw nañ ak seen kontante man miñ fi fekk ma gën leen a kontaan waxuma dara waxuma kenn jërëjëf kon manqué naa loolu laay bañ maa ngay njëkkee nag ci suma kër sëriñ Cheikh Ablaye Cheikh Yunusa Moussa kamara ak ñi ngeen ànd ñëpp bàyyi ko bi da a góor ak jigéen ñu ngi leen a gërëm kontaan lool ci ñëw bi suñ ko mënoon wéri nga a kenn du fa des ñëpp dañoo ñëw ndax jëg liggéey bu ne dafa war a am seede nga fekkee liggéey ba xam ne nii la demee daf caa baax kenn du la nettali soo fekkee liggéey ba kenn du la nettali kii nettali benn mu xiir yokk wala xol bi bañ mu wàññi ñaar yooyu rek am ci nettali nga xiir yokk wax la ëpp wala xool bi bañ nga xaw ko wàññi waaye ki fekkee moom loolu du ko ci fekk kon jërë ngeen jëf ñu ngi leen sant leen wax bisimilah seen jotaay la seen bàyyi ma ko santoon ci lan dafa wax ñetti yoon ma bañ mu ne ma sa yoon nekku ci maa la ko sant boo koo commencé leen yàgg sa benn jabar sa benn doom commencé ko ma commencé bañ fa demee mu laaj ma ni mu demee ma wax ko ba mu passé ma dem seeti ko mu laaj ma ma wax ko mu ne ma sa maam alaaji Malick ba muy commencé xamu doon mbooloo ma xem noonu Cheikh Omar ma ne naa mu ne ma bële mooy bii oto yi danañ wëññeeku moo ko waxoon de waaye foog naa dañut waa féeri bi daaw jéeg ñu ngi laajte ma lu xew ndax li nekkoon Gambie dafa texu Sénégal am lan ndax dafa taw ni dekkoon Sénégal dafa taw si Gambie parce que oto yëpp a ngi ñëw di fii day ñëw maa ne ban déedéet dama ko téyel di li maa wax ñu ngi koo dégg déedéet bu leen yàq li ma wax maa ngi wax toog leen rek ngeen déglu ma kaatim bismillah seetal leen ko fu mu toog Touré bismillah su ko defee su jotaay boobu jotee de màgg de màgg ba tollu nii ci àll bi fëlee ci biir Bandiaka ñu ne ruuy fa rey ñu ne rey nañ fa fanweeri nag ci biir àll bi su gàmmu gi tasee nga ñëw Bandiaka ci àll bi danga laajte fan lañu reyoon nag yi waaye bu sa tànk dëgg ci ci baye bi rek boo dofut xam dara moom gàmmu la du gàmmu waxtu boo mën a ñëw bàññaaka booy taxaw ci bay bi soo doful dana am loo xam fu ñoo liggéeyalee yàlla neex naa xam du lëndam mukk du lëndam mukk su ko defee nag gannaaw buy leen gërëmee yéen ñi nga xam ne seen papa moo sampoon lii man it ma dajeeg moom mu gënal ma suma bakkan bi xadd bi yëpp xam nañ loolu xam na ne Cheikh bi reemale wu ma koo dara mënu ma waxtaan sax ci wàllu yàlla te tudd ma ko kon nag noonu la yàlla doxalee mbiram su ko defee tooma lii soo ko ubbiwul kenn du ko ubbi ma taxoon ba ma ñëwee ci kër may la ñëwal yaa ko ubbi su ma rakk nga te yàlla boole ñu lool ñun ñaar ñu seet la xat ma ma ko njëkka njëkka def maa ngi ci kër tubaab bi di liggéey am ku ma laaj ne ma dégg naa gàmmu gu ñëw yëbaat ne yow la wala seet Fatou Kumba ma ne ko seet Fatou Kumba la wallaahi ca gàmmu ko njëkk ma ne ko kiimoo ko moom mu dem ba mu yàgg mu ne ma ah waaye foog naa ñu ne jàll lañu ma ma de man la mu yow doo dara ma ne ko déedéet da ma bëgg a jaxaseeg moom waaye benn la du ñaar rek jox ko gannaaw am keneen ku ma ko laaj su ma doon ñu ne da ngaa gàmm ma ne ko waaw waxuma ko de Cheikh ko wax tey yow sax da ñëw bu la neexee boo naqaree mu man ma ne ko waa baax na ñaar ñett mu ñëw waxuma ko dara ñeenti mu ñëw ma ne ko loo waxoon mu ne ma yow mbong nga ma ne ko du ma mbong dama xam ne liñ ma wax ki ma ko wax du dof du wax lu amul Thomas Baye Burama nit la daf ne ma daf ne Duudu Fana kaay nga ànd ak mbay ngeen ngeen demal ma wéli nga la seen doom bu buy romb di dem di ànd ak mbooloo seeti leen fa moo dem waaye bu leen toog xool ko wallaay gars dem ñëw bay Duudu ma ba mu ñëwee wax naa wax a wax ba xamul lu ma wax beneen yoon bay Omar mu ndaw yéen dem bay saasu na yéen dem ba ma dellu see da seet suma sëriñ mu ne ma a ah, seet Omar mu ne man de sant naa yàlla ma ne ko ah, mu ne ma comme sa mbokk yi teel nañoo nangu ñëw suñ bañee ëllëg neex na xarit danañ ñëw topp si la parce que xamuñ li nga xam ne ndokk biñ ko nangoo teel man de maa ngi kontaan ma sant yàlla kon su fekkee ñoom ñoo ñu nekkul fi nga nekk fi su ma la joxul suñ fi nekkoon du ma leen jox walla fonk naa diw njobootamam fi fonk naa diw gis nga mbokkam toppatoo ko fonkoo ko amul Aliou Cissé li mu wax la de waxuma wéli nga da waaye dëkk yi leen wër sax damaa moytu ku ma gis teral yonte bi dafa am addis bu mu wax mu ne bi ngaa sàmm sa gàtt yi bu mu jege pegg tool buur bi mën naa am ñu ci dugg ci biir tool bi nga tooñ waaye su ñuy soree pegg tool buur bi doo jotee buur bi dara moo tax ma ne la wër wéli ngara su ma leen de toppatoo kon wéli ngara du des su ma kër sëriñ moo tax ñu sant yàlla lool Cheikh Ousmane Traoré jërëjëf Cheikh Mbaye Diouf jërë ngeen jëf Cheikh Babacar jërë ngeen jëf Cheikh Nour jërëjëf wax nga dëgg itti rekk la fi indi kër mbay Diouf lañ gisee woon maak euh, ministre boobu Youssou Nour ak yow waaye wax nga dëgg ñun ñaar rek tëju woon nañ ba tey it waxuma kenn lañ doon wax Mbaw Diop yéen waa Koungheul yëpp Babacar naka la eh, kii Diop Magay Diop ak ñi nga àndal yëpp ba waa cax tafsir bi yéen bi te mu nga bàyyi ko boori Diourbel cax te mu ngi fa yore mbooloo mu rëy ñu ngi nuyu suñ mbokki boppu Ndungu Kebe jigéen ñaa ngi fi góor ñaa fi xale yaa ngi fi mag ñaa fi ñëpp a fi maa ngi leen di dalal ci xol ak xel ak place bii yëpp mag yi na ci yam mbooleem fu waay bàyyi ko muy boori Fuladu la muy yoonu Kawur la muy dakaar la muy Fatick la muy Mbuur muy Thiès muy biir Dakar boor bu ne nit ñaa ngi fi ku ci ne ñu ngi laa dalal dala wax bismillah dala yaatal na gis nañ leen te kontaan nañ sant nañ pate xool la yaag nga jiite yëpp ñu ngi laa dalal ak sa mbooloo ak sa yar bu rafet bi la yàlla sédd bu rafet yar benn yëngatu amul ci njabootam gi lu jafe xam nga toomaa yi gën a jafe def yàlla ci xale yëngatuwul dafa të nit ñi xam na ñoo xam ne buñ defee yàlla ci xale yëngatu ba kenn du la ko wax waaye su ma sëriñ xool na ma bés bu yàgg ma ne ma góor nga ma ne ko ah lu tax mu ne ma li ma def ci yow soo ko doxee woon àddina bi kenn du fi xaj ma noppi waaye it dangaa bàyyi xel ki la yar nga de ko xool soo xoolee ba sa bët mànd ci moom nga teg sa xel ba sa xel naa mànd ci moom doo def la uuteeg lam soxla dangaa ngaa jéem nam doon defee rek nga defee ko boo ko mënut it jéem ko ah, góor gi jàlloo bismillah mbir kaama eh, naka la ñu yoree toog yi yim da ngaa nelaw yim jóob yaa ngee nelaw waaw ah, jéel wutale góor googu place da nga mën a tooñ moo tax may fayu su ko defee li tax ñu jox ma rajo bi mooy ñi maa tudd nii ma dalal lay nuyu leen si àdduna mbooleem ku ne suma gannaaw toj bopp moo du Cissé yi dèjà Touré yi yéen ñëpp ñu ne a wax bisimilaay ñeneen ñi ma féetee gannaaw te gisuma leen itam bisimilaay ñi sori it ma leen a xàmmee bisimilaay waye ku doon def tante boo xam ni ëtt bi la nga dem ba tante bi xamu la ñaata mètre la fimne mu xam ne doy waar de soo jëlee fii fa tante ba xemi dana ko a jafe tante yu ko yam xam ya ko yem du do bit du do bit gam bi biir gàm bi mo ñu gam mo man nga leena dogal ay gàmmu ci biir gam tante bi te loolu la yalla dogal waye lama daan wax lay wax maa ngay ñaan fu waye de mo yel na la yalla nangul coolee bëri kenn du nangul sa moroom kenn du nangul sax sa bopp yàllaa laa nangul kon bu du wax ci jaamu yàlla keneen dara maandu ca nga noppi ca ñaanal ko jàmm amul kenn koo xam ne sa jaamu yàlla gi mën ngaa signé li ñee dinañ ko nangu kon bu jàmbur doo ca dara nañ ci maandu lii dox ci jamono ku wéet de xas mag ñi de wax lu ne ñii xas mag ñi de wax wax yu ñaaw ñooy enu toono rek ak musiba waaye moom moo fekk mu liggéeyal yàlla ba yàlla gërëm ko mu dem nga topp ci kaw liggéeyam defoo fi dara taalifoo benn téere defoo dara kooku taalif ay tir yoo xam ne mën naa jegal at bi nga topp ci ne moom ngaa xas ku am fula du la hoyu ku am fula laa wax du la hoyu te kat li ci gën a ñaaw mooy ñi la jàngal yar la ba nga mën a làkk nga dem réewu arab jàng ba pare ñëw ne ñooñu duñ dara yow yaa duwu dara yaag arab ya nga demoon yow yaa duwu dara asadu kufran wa nifaqan lañ leen waxoon ñoom asadu kufran wa nifaqan man nag ma saam fu ma teg suma bopp comme dama gis yonent bi ne bàyyee naa leen suma sunna ak alquran kon ku maa déglooti gannaaw jàng naa sunna jàng naa alquran keneen ku maa déglu maa bay xamul fuñ bind ci téere na compagnie islam bu tudd nii réewu islam bu tudd nii arab bu tudd nii amul yonent bi waxut ñu topp maaka waxut ñu topp arab yi bindu ko fen fen bindu ko fa leen rek la wax mooy bàyyee naa leen suma sunna ak alxuraan jàng sunna xam nga alxuraan koo toppati bu la réerale yaa ko tey waaw su ko defee ñu góorgóorlu ñun ñëpp rek ku ne xam nga la laa jëriñ nga góorgóorlu ca xam nga dañuy wax ne koo wax ne xamula sa bopp mu mer waaye alxuraan daf noonu balil insaan basira ala nafsi soo ko fiyee ne moo xam boppam de da ngaa wax ne moo war a xam boppam doomu adama bu ne moo war a xam boppam waaye kuñ ne xamoo sa bopp nga mer waaye boo duggee gars yi ba duggee ne génn ba nga génn mel ni àddina bi dañ ko jaaral bi ci ngaa door a xam ne yaa ngi door a xam sa bopp bu buñ duggee yow ci yàlla bëggee rek dootoo xàmmee àddina bi genn góor ca Dakar noonu ma sëñ Kébé fan yi sama bopp bi laay doxee ma ne ko déet waaye góor gi ke bopp kenn du ko doxee mu ne ma déet ma xamatuma fu maa jaar noonu yontu bi bañ ko xenoon lañ ko xenoon nu mu def génnul ci xund bi da coow benn waaye ñëw fekk ma Dakar ànd ak xale Omar Joobe Patakoli ñëw ne man laa dialogué mu ne waa xale yi de man maa leen jëndal rajo waaye nag ngeen nga wax leen ndax ñoom li ñoo wax nit ñi dafa ëpp ma delu ko ma wax ba pare ma ne ko jëf rajo bi nga doon jënd pour yoon woo ak accès ci man kalaame xale yi moo la fi indi pour nga boole xale yi moo la indi waaye rajo bi jëndoo ko ngir yàlla doo ci am yàlla mun naa si nga mën ne ko déedéet xale yee tax nga ñëw pour nga boole leen déglul ma waxal la xale yi nekk fii ku ci am fanweer mu ne kenn a ne ko yonte bi ñeent fukk la amoon ñu xeen ko lañ ko xeen mu tëb dof de wëndelu ba xërijëtu de ko wax naan dalal dalal ñu ne su xadijatu muuree muuree bopp bi malaaka yi dem kañ la xadijatu xam ne malaaka du gis bopp te dina amagul maa ngi ko laajte àddina dafa lëj de kañ la xam ne malaaka bëggul bopp neen te diina amagul ah ki war a samp si islam moo ñëw lan moo ko ko jàngal léegi coow li daay bëri rek waaye léegi am ci yoo xam ne leneen la waaw su ko defee nag suñ ñëwee ba jamono ma ne ko ñu ñëw tey xale yi ñaar fukki at ñi ñaar fukki at ak juróom ñu xen lañ lañ xenoon yonent bi nga ne dañoo def tekk yaa leen laal soo leen laal loolu duñ la wax dara xale yëpp yuuxoo ne ma moo ñoo tooñ ma ne ko tooñ yi tooñu leen dafa bëgg a seen ndax mën naa weddi li ngeen xam ngeen daane ko mu mer sey doom lañ yàlla xiwal na leen leeru yàlla baleen ngeen dem te leer gi duñ ko mën a bañ de su fekkee alquran a ko indi looloo xam waaw téere leer a ko jiitu parce que téere yonti bee nett li ñu bind ko waaye ba njëkk bi ñu ko daa nett sax dañ ko mokkal waaye amuñu woon bind gannaaw gi lañ fexe bind ko ci yax yeek ay yu kenn xamul imaam Saafi li moo mën a jàng yëpp dëkk xasata ca fële moo moo yaayam dañ néew doole bu ñu jaayee commerce weer jàng weer commerce weer jàng ci yàq yeeg bant yi la daan bind kayit amul kayit gu ñuy binde Égypte ko njëkk am ci réew arab tubaab yi Égypte ko njëkk am ko njëkk am tubaab gannaaw gi la door a tasaaroo noonu la àddina doxalee mbiram su ko defee eh, mbooleem ku fi ñëw googi baawu jàng ca kër mboyoo na ngeen def ñu ngi siyaar dëkk ba ak waa kanamu mboyoo nag ñëpp bàyyiwuñ kenn loolu rek a tax ma jël rajo bi waaye jëlaguma ko pour war a waadanteeg nit ñi kii gàmmo mu ngee ñëw gàmmo dafa am lu maa wax nit ñi nag ñu bàyyi ko xel ëlliw yaa ngi ne ma wax nit ñi yàlla piir yaa ngi maa dégg su Ablaye Diobine gàmmo kenn gàmmo ngeen coow coow ba pare ma ñëw dóor ci lu tàng li ngeen liggéeyoon far kon dimbaliwuma leen tuuti laay wax ndax li ngeen wax feeñ nit ñi man ko yóbbaale moo tax ngeen gis léegi du may gàmmu waaw li ngeenaa wax na ko nit ñi taatal waaw ku ci wax da nga wax ci li ma doon wax ak la la yàlla xamal nga yokk ko ca mu wéy noonu la waaye su ngeen gàmmoo ba pare ma coow tàng witt ku jog dootul xam li ngeen waxoon danaa ko effacé te bëgguma def loolu soo gisee ma di leen gàmm bàyyi ngeen di gàmm su fekkee jamono bu ne seen kanam laa taxaw ñëpp naan sëñ Kébé sëñ Kébé kañ la leen nit ñi de xam yéen kañaan laa ko tuddee naa jóg si seen kanam toog déglu leen suma sëriñ bu ma daan wax mu ngi toog dama daan wax ba nga yëg ne kontaan na te mu ngi toog waaye daanu ma def ni Ablaye Guèye dem jékki ba mu yàgg ma caat jàdd ci ruq bi du ma dee jàdd waaye li maa wax moom ki koo déglu dana ko xam mu leer ko naññi waaye ki ci xamu dara mënu koo xam loolu nag yàlla moo ñu ko defal taxaw ci mbedd mi wax ci ak de ko gàmmoo maa ko njëkk a def ci Gàmbi ak man maa ngi taxaw ci mbedd mi da wax ak yow mi ko dégg doo ko mën a jël te ko mën a weddi te ki ci xam dara dina am lu ci for soo bokkul ci kër gi ñu réer la ci beneen koñ loolu la yàlla dogal yàlla moo ni moo dogalee mbiram Cheikh Ahmad Tidiane dem leen ci jaayru maa ne ngeen yër ko nee na faydu bu mujjee ñëw wax ci alxuraan lu kenn mos ta wax moo tax Gambie fii dañ daan wax naan damaa soppi alquran damaa am diina ju yees waaye bi mu demee ba xam ne ku ma ci dajeet boo dóoree ma dóor alquran nga gëlëm ci lañ noppi waxatuñ waxatu su ko defee ñu ngi wax ñëpp jërë ngeen jëf ñi fi nekk ci ay kilifa bari nañ ah, soxna Khady Diallo mi ngaa wax dafa waxoon ne daf ma seet si ñëw na seet si ma ñu waxtaan mu kool jëkkëram ñu waxtaan mu ne ma dinaa ñëw ci gàmmu gi waaye dina defar fii indi aale ko Assane cooy na ko suma kër ngaa dal ma ne ko Assane xanaa finde bee tax nga boo ko dalal sa kër mu ne mu ne ma déedéet ma ne ko ah déedéet léegi wóorul waaye alhamdulilah la waxoon def na ko defar na finde bi bëri def ca lu ne indi ko bi xam bi Assane ñëwee maa ngi waxtaan ak jaami yàlla yi du pour man pour jaami yàlla yi la joxe ko ñëpp ndax ñu ñaanal ko loo tax li Aliou wax dëgg la loo tax ñu may ko ma toog foofu waaye du ngeen di seen benn jigéen di dugg ci suñu tànk gis leen nañ ko xaajee fii ba fële jigéen nekku fii góor ñë jigéen ñaa ngi ci boor góor gaa góor ñaa ngi ci boor alhamdulilah rabbil alamin Aliou ñu ngi leen di gërëm jël leen rajo bi ngeen continuer ngeen waxtaan ci Ablaye Diop nga góor góorgóorlu dafa mel ni nag dinaa leen wax li ma daan wax woykat yi wooyeeguñ gàmmokat yi gàmmooguñ dara defagu leen ko léegi nag jokkalante fii laa fëy la jeex na direct rek wax leen wax leen bu baax ba nit ñi seen xol yi kontaan. looloo leen fi tax a ñëw du ñam yi ngeen togg kenn ku ne këram am na reer ak ndekkee café loolu indiwu fi nit ñi yàlla lañ bëgg a déglu wax leen yónent bee moom bés bi bu kenn dem ba mu yàgg nga neen sëriñ Kebe déedéet booy dugg ci man may la wëññeekul boo duggoo ci kenn Cheikh Tidiane sax doo ci wax waxal ci yónent bi moo ëlif ñëpp lu waay am ci moom nga ko amee nu waay mel noonu ci moom nga ko melee maa wax démb waxaat ko tey ma ne sa sëriñ boo ko toppee nangam yaat laa xam yónent bi yàgg moom mbaa foog nga ne xam na ko xam nga lu xew Ablaye mané nit ñi ñu na ma muhammad kenn manul fexe ba sol mbaxana te dimbalé dimbaliwul la kenn manul fexe ba sol mbubb te dimbalé dimbaliwul la manul la nelaw wëcci ko manul mënulaa yeew wëcci ko manul mënulaa dugg oto wëcci ko koku nim la jegee nonu sa sëriñ ko xamul way neex naa xamle gëna sa sëriñ xamul ko na bu mu la wax na ni na nangam nangam de de ba lay ay lay gënal la ci dé lolu doxul lolu doxul lu xew waaw waaw beneen man sax na su ko defee rek ngeen jël maay bi ngeen góorgóorlu Abdoulaye yaa ngi maa dégg coow li bëri na de wax naa ne xaqiqa dana yóbbu safara ñaar ki ko weddi piir du mucc kii wax ne daf ko xam-xam lu ba da ci dugal boppam moo it mooy jiitu parce que yàlla duñ ko fenal mbir la moo xam ne moo ko moom daf ne yuuti ikk mataman yasa ومن يؤتي حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ينتي على من عليه الحكمة دالة المؤمن أن وجد أقصى حكمة موم رير جل بي موم لاود فوكو فك غاول جيل كو كيكو غيس نك دكو ويدي داف تي بوكول بوكو واخ دا موم رك لا جولي ده هود آه. واو آه. فونا ابراهيم كبيل واخنا نه doomu papa Alaaji Bachir Kër Seydi Gueye ñëw na نيو ñu ko Ablaye Gueye ñu xamee woon ko ci Ablaye Sarr ñu ngi laa wax jërëjëf ci ñëw bi waaw incha allah fii mooy place boo xam ne ñëpp a ko bokk waaye na xam ne lu ma déggoon kenn wax de xaama na kumdo toma mu wax benn waaye mu ne moom dana ñëw seet si ma waaye dafa dégg ne man daay wax ne daay xoor bu ñëwee ci man ndax bu mu fi lekk bu mu fi naan ndax ku fi lekk wala nga naan fi rek doo fi jógee waaw wax nañ loolu di ma ree rek noppi ma ne su ma ko mënoon àddina bi yëpp ma noob leen ci yàlla wallahi laasim su fekkoon xam naa loolu dinaa ko def adduna bi yëpp nekk jam yàlla pire waaye manta am yàlla am na fulla ku xëy sa ngaa utali dund yàlla it moo samp adduna bi ci biir adduna bi ci lim samp ci laa utal ñi ko gëm dund doo ca xam dara kenn bokkul mooy naan boppam dundee boppam te doo ci man dara doo xam nag ni mu koo defee soo dajewul sekk bi da la réer suñ la mosale itam du tax nga xam ko dee lu bëri ku la wax ne yàlla dañ ko xam nga ne nag xam naa yàlla nga ne mu li fi nekk yëpp ne ko déedéet détaillé ko yow amula boo boolente jëmi yëpp Ablaye Diop la waaye amul ay loxo baaraam baaraam yi am wee am ay rëdd tànk yi noonu ba ci bopp bi kawar gi lu ne loolu bokk ci Ablaye kon yàlla moom naka la comme neex rek nga ne ah, yàlla li loo fi loo fi gis yàlla du wax koo dara waaw ñu la laajee yàlla nga wax sa sëriñ ñu laaj la yontu bi nga wax sa sëriñ déedéet waxal yàlla fiir ah bismillah ah Baye Malick bii de bokk la ba nga <laughs> bismillah acca nga ne lii yëpp déedéet <laughs> baax na toogal toogal baax bi baax daal baax daal ok baax ji bismillah bismillah aha jéem a seen liggéey bi toogu yi ñooy ñi nga xam ne ñoo la fi président bi yónni woon ñu ñëwoon fi seet si ñu ñu defee ñoo waxtaan wu rafet ministre bi noonu dana dellu si ànd ak ay nitam mooy toog noonu mooy Bakary Badji mooy ministre bi xam ne seen boot moo ko amee ñii ñëpp da ay xaritam Malick nag moom de suba xaritu bopp waaye dafa lëj nag Malick si dafa lëj trop pas Malick waaw na bisimilah ana ana ana suma ji nag góor gi amadu ana Amadou Sané waaw kay sant yàlla kon Aliou foog naa ñii ñoo desoon ci ñi ma waroon a présenté kon danaa leen baxee maay bi ngeen waxtaan toona ñoo ñu toog boor kenn ki ñuy wax Alaaji Kebe loxo ndey jooru Adama Baro la li fi xew yëpp bokk na ci ñu ko sabab moom jim ak Baka Mbaye Baka xamante moom ñu nekkoon génn kër bakka dama ku baax la ah, waaw waa baax na Mbacke dama kii de ku baax la ñoo bokkoon ne ma ne ah, kon de yàlla fay na ko gannaaw moo sof si si Adama Baro kon yàlla fay na ko mbaaxam xamoon nañu mos naa dajeeg ñu ci dajeeg naa ñun feneen yaakaar naa ne bu ko moyee moom mooy mari ñi ci des ñëpp dañ ma fekkoon ma toog rek waaye ku ñëw fii tey doo foog ne mbooloo mu nekk ni mu ngi ci gannaaw sekkee bi doo ko foo déedéet xaw ma ban réew waaye réewu Gambie ku ma fi tolloon mbooloo nekku fi boo demee Sénégal it danga da ngaa foote foofu laa dëkk dégg ngeen lii su kii nag seen Ndour wax mu ne su ngeen xawee caaxaan tuuti Sénégal nangu leen nangu ma Mister Ndour eh, Cheikh Tidiane nda Cheikh Ndour jërëjëf dafa am loo xam ne su ko nit am neexatul moom mooy doylu li ma doon wul moo doon yàlla am naa ko yëgatuma daraja yëgatuma xaalis yëgatuma kër gi rafet du leneen moo tax kenn mënu maa teg fente newul ma lu ngeen ma dimbale dimbale neexal ma def lu ne su ngeen gestoo fekk dawaan naa maa ngi gaal bi waaw nit ku nekk nag fi mu doon dundee ba am lim am ba def bokk koog yeneen jaami yàlla na fonk jaami yàlla waaye bu mu fàtte fi mu ko amee moo tax jërë ngeen jëf wax yi kontaan nañ Cheikh Mbaye Diouf xam naa suñ demee ba ci kanam dañ la jox nga sànni keneen ku bëgg a sànni kàddu it moo fa léegi nag euh, ministre Badji comme dangay toog ba ca kanam yaa gaay xaar ñu bàyyi gaay yi ñu gàmmu tuuti ñu door leen a jox ngeen sànni seeni kàddu incha allah ñoom léegi lañ fi bàyyi koo baax rek dellu si waaye noonu la boo nee dara danga ci bokk danga caa boole sa bopp ñu xàmmee la bu ëllëgee lépp yomb monsieur Badji naa la wax benn wax gis nga tànt bii fu ma jëm fa lañ jëm de fu ma jox gannaaw amuñ ci yow soxla kenn mënu ci dara nag fu ma ne fii la rek foofu la su ma ne déedéet rek ñoom ñëpp ne nañ déedéet benn wenente amu ci dafa am lu ñu seq loo xam ne du ci jëmm du ci xool du ci poos Seydina Ababacar dañ ne taggeewuñ ko naafile yu bëri wala jàng alquran bu bëri wala julli bu bëri ñu ne nuñ ko tëddee ñu ne sëy un waqara fi sadri yi que bañ defoon ci dënn ba moo taxoon Ababacar ñu da ko tagg da ko coow te loolu laa def ci gars yi li Ababacar amee ñoom ñoo gën a leer le Ababacar ndax jamono bii ñu toll la téere doon jàngale Ababacar gisu ko fekkewu ko ñoom gis nañ ko moo dañ ko rawee loolu lañ leen rawee ñoo Thomas ka ba mu ko ko ñaanal lool léegi na xam ne bi daj naa courant ana Ababacar ana Mouhamad ana Ousmane ana Ali ana Omar ku ci fekkee courant kenn ku ci fekkee oto yi avion yi kenn kon jiitu nañ leen waaye ndax mbaa du ñoo ci nekk di duggaat du ñooy duggaat ci avion yooyu oto yi <laughs> ah, baax na kon bismillah ah, Kébé bismillah Malick bismillah yéen ñëpp ki nga àndal noonu moo tudd naka Malick si Pa Malick ki nga yoo xam ne naa la këy laay wax keneen ki ah, waa Mohamed Amine Ndiang waa ba tey ñëwoon nga jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf Aliou microphone baa ngi ba ca kanam mbokk yi dañ doon nañu mbokk yi suñ demee nag ba guddi ngeen wax ba pare ma jekki la ca si ñëw ci jikkoy jàmm yàlla yi. ok Ibrahima. gaaw ma nag diggante wéyee wax na góor gi pare na te waxam kenn ci teg baat loolu la nit ñi doon xaar xanaa li ñaam wax rek mooy gàmm gi soppale ko bu mu am ministre boo xam ne gàmm bi la dëkk te liggéey bi gàmm bi te biñ ko falee ministre gàmm yi ñëw kontaan nañ xale yi kontaan nañ kooku ma teew ci gàmm mu teewal président Adama Ba bég nañ balaa ñëw a gàmm gi déwén dana am soppale loolu rek lay soxla ci yéen su ko defee Ibrahima sikar laa soxla ni sikar ma ni sikar ma ni sikar ma ni sikar yonent bi laa soxla day baal da ko def neen dem ziare Baye Seye wala nga seetlu la neex wallaay ndeysaan parce que ñu ziare ko mu ñaan te loolu la gars yi soxla ku bëgg a yeewee ku yeewee bàyyi naa leen ba ëllëg indi boobu indi koy la kii bi da ko indi naaj bi indi naaj bi bay Saïd Kébé amul morom te réew mi ñu màggal ko jëfal na yàlla sa borom wax ci yow mi ngi ñëpp yéem tanti tàggal yi jël nga ko ma ne bay Saïd Kébé amul morom te ñu màggal ko ca yàlla sa borom wax ci yeneen lu ñëpp yéem góor gi tamti tàggal mi jëlu nga moo tax war a naan jërëjëfee say jeebe boo mu ñam gi yaa ko yaa leeral tariqa bi te be yaay borom nga neel mag ne ay say doxal te be anglais di ko way he is the one God has sent he is the one God give everything in the world he has the knowledge not know one have ever got français di ko way naan xanaa sa bëgg way سيدك بسليك آه إلى لا سنتر كجا آدم توزكي نالا من بلايكي مين كبا باي سيدك بالله مم مين كبا Sénégal bi billahi kii mooy nit ku baax su mbax doo romb mbaax kebbe romb na ko ndax mooy géejëm mbaax tànk miisu ko billaay kebbe daal amul moroom ndax am na kum na ko si pël yi du si naar yi du billaay kembe daal amul morom ndax sis bu nga toog ñaar bu ñu fa toog ndax yaay fard bi kenn mii mu ko san wa demoon moo del si waat ba Isaa di dem daf ne Ahmadu ñëw kaa ñi dal bi xaar xam yooyu ko ba imaam yëlee hittatu la wax gaa ñi di daw ku nekk naa na waaye ba say demee dellu nii ko imaam waxoon na say xama mooy sama xel te mooy sama xol te imaam waxam kun ak dëgg la ma gën a jëm moo tax bañu demee sa paas la ànd ak imaam ba fas wolof keroog la fa teew kenn muy mu ko ma dem naa sama kër waay te li ma mel la xamul ko jëm te ko ko ko wala naa sax soo amal kebe jël ba ca des te ko ci rabu si amal kebe yi te noonu ko say amal kii kenn du ko xam tam tolluwaayam ñëw ba ci rajo bi di ko waxal lu amul waaye man lay seedeel ne man sax ma ne ko kër gi lu ma am yëpp kii moo ma ko jox te xam naa ne yow say amal gerte bu boolu lëndëm danga tënk lu leer moo tax ma lay seetee ne man lay waatal ne kii lu ma am yëpp moo ma ko jox waaye man lay waatal ne man sax ma ne ko kër gi lu ma sañ ci kër yi at yi bés ni ki tey sañ nga lu ko raw man sax ma ne ko kër gi yow alaaji say amal gerte ku ma may yëngal neexul la jëlal buusam kuma lijaasaam neexoon la dogal lijaasaam mu ne ko foo fekk tur yàlla moo xam dam ko fa moo xam mu jàmbur la mu ne ko tur yàlla yëpp dagal na la foo ko fekk ci loolu dem am na ndigal ci lépp sama góor gi yàlla di tàng mu ne salaat seen biir ges ga danaan gaañi ana seetatillaa Ana Allah waaye diiga bi de li muy def li mu def lay tàggoo de. waaye moom day dugg na ci ñu ne xaaral ñu woon lu leer ndax ëllëg ñëwul koo wane bu am caméra yi ñëw journaliste yi ñëw ku nekk ku la ko waaye dama ko mu nekk laa woon ne dama def benn taxaw gars yi doon ko am ko mi ma doon doon billahi bi amuloo ba mu ma seede benn mbir rek balaa may woon Afrique ay di di di nga xam ne laa leen loo ko alif yow bu njëkk a ñëw bàyyi naa ka yónni seen journaliste yi ñëw ba ba ba jàngal ko jumaa ji ñëw na def ko seet si bëgg a waxtaan ak moom si jumaa ji ak lu ko bàyyi naa ko ku ne xam na ne amul si yàlla Pape Kébé mu ngi fi gaa yi ñëw di filmé suñ Pape Kébé wax Cheikh Basir wax suñ Amadou wax ñu jox ko mooy suñ Pape Kébé commencé def ay kàddu gërëm borom caméra gaawa nga wax booy laa soxla soo ko defee jeex na mu ngi def ren léegi mu ngi signal fay na kon gaawa ndax dañ soxla kàddu góor gi mais sax fàtte daan dañ daan ay kàddu dul leen rek borom caméra bi ne man nekk ma am waxi góor gi ndax tey soo ko defee jeex na waaye xamul ne góor gi mooy courant xamul ne góor gi mooy saal bi xamul ne góor gi mooy internet xamul ne góor gi mooy whatsapp amun ne ko ti mo e ho da mo to me ko ku li ke amu to ko e ho no no no whatsapp de mo no no no ah facebook de mo no no no ya ta mo ko da ke eh, ni ma da ai se ko ma ke ke eh. lu ni def ni wa amerique ni ko setan wa france ni ko setan dëgg yàlla la waaye ñu xam ne moo doon liggéey di liggéey di liggéey famille ko ci yàlla yëpp baay naa ka kon waa Gambia yéen a am saas waaye bu ñu dox tànkee waaye billahi bu ñu dox tànk ñoom yàlla dana ko jël te ne kii du ko sànnee daa ne màggal fay borom caméra bi nga kon nag caméra bi si kàddu bu neex si kàddu bu daal mooy lan auzu billaahi mina seytaani rajiim bët bi fees teg waaw kii ne bëyit mu ne ko nee film waaye di film di film ba mbir mi daanu mu ne tëral si suuf lu ko sëñ bi man maa ñàkk koy wax yàgg naa ci lii waaye mosu maa gis ba mu jeex ma teg ko jëmu doomu aadama ma laaj si waaye dëgg lu làmba tontu mu ne ko yàlla mu bindoo xoyantaan amul fii amul bëtëre amul pétrole amul gasoil amul essence mii naaw di tàkk yàlla moom moo yor courant te courant bi mën na ko jëlee fu ne ay magasin góor yi waay. sama ne. nañu la doon xool daal bu الله أنا صاحب كبه يوم القيم عند لا يتعمل يوي صاحب كبه بسمي الله الحمد لله góor gi leeral na ko bay saytete mooy jàngal kaa ñu rawoon si diina ji léeloote mooy jàngal kaa ñu rawoon si diina ji léeloote mooy jàngal kaa ñu rawoon si diina ji ñëw leen si moom mooy yaram amul xaybu léeloote ñaan leen sa jàngal ba wane na ko lu sees ya màgga wane na ko cëpp ma lay leen tiiral garam yi xanaa saaxid kembe lay ma leen yëpp waral yi xanaa saaxid kembe lii tiiral garam yi xanaa saaxid kembe lii tiiral garam yi xanaa saaxid kembe

Kër Baye Sahel Kébé kër bay sahil kebe ñu bañ maare ku ñu nandal le xana sahil kebe ñu bañ maare ku ñu nandal le xana sahil kebe ñu bañ maare ku ñu nandal le xana sahil kebe ma wax ci sahil kebe door a nataal nag la sàmm ci am dóoraat caméra bi suñ dàll yi sax dafa génn te fi ñu taxawoon rek lañ taxaw waaye bi mu ko njëkk def kees gi génnul man génnu ma yëgu ma bi ma génnee taxaw tolloog imaam sàmm ci am fi mu taxawoon jógut fi mu nataal kees gi yëpp génn ak suñ dàll yi imaam moom caméra bi man xaw ma ca dara ba ñëwee Dakar bañ ko sottee moo ma ne seetal carte yi ma seet ko mel ni gisuma ko mu rocc ko ne ma séral carte bi dafa doog ma ne ko waaw rek delluwaat ko ci carte yi ba ñëwee wi li nga moo ko nettali nit ñi man waxuma ko ba ñëwee wi li nga moom imam moo ko nettali nit ñi man waxuma ko léeg-léeg am na kàddu yoo xam ne suñ ko nettalee nan demee fekkee woo ko sa xol bi du ko àttan man ngaa weddi ma la nga am ci leneen waaye cheikh imam ba àddina tukki duma ko waxal lu xamul defuma ko waaye li nga wax noonu ba maa jox li jaase alpha an deewut mu ngi dund mu ne ma lu Cheikh sañ ci tariqa bi sañ nga ko ci ku ma jox li jaasa su la neexul xottil ku ma jox wi da su la neexi àggil ku ma jox wi da su la neexul nangul kurusam waxuma kenn dara mosuma wax kenn dara mosuma ko nettali su ngeen ko laajee alfaan dana leen ko nettali ba léegi fu ñu taxaw mu ne ma ñun lañ joxoon wax li jaasa waaye yaay suma sëriñ ndax lañ la wax waxuñ ma ko noonu la demee waaye may bëgg ñu bàyyi kees gi ak maro dama bëgg ñu bàyyi ko dana lor nit ñi dana am ku ci wax lu ko neex fekk la ma wax du dëgg moo def loxo ndeyjooram nii ci kaw boppu Cheikh jël càmmoñam teg ko ci suma mbagg mi Cheikh Omar ma naa ma ne kii kenn du ko xam de ko waxal lu xamut lim ma xamee moo ma ko jox lim ma joxoon laa la jox moo ko waxal boppam ba léegi ba ma ñëwee nettali ko moo ko nettali nit ñi benn lu ñoo wax kat Cheikh Mamadou Kabir kum neex weddi waaye du may wax de du may wax moom mooy waxal boppam su ko defee nag ngeen góorgóorlu bor boobu ngeen bàyyi daay indi leneen waaye yàlla na bu séddee ba pare mën na too ci dara waaw te Cheikh Imam moo ma jàngal na nit la moom moo ko jëlal boppam kon la ma jël man maa ko moom liggéey naa ko piir ñàkk ko piir jand ko piir ku ci bëgg tool ni ma toll demal nga jënd jëmaalan ko waaye dutu Cheikh Ahmed Kabir nga ko jëlee boobu paase ñu bàyyi ci xel. asalaamaaleykum lu leeral baax na waaw leeral baax na waaw booy wax bu nit ñi toog lu ñoo wax maa ngi koo xam am asalaamaaleykum wa waaw Ibrahima Ibrahima lim lay tere da ko def parce que jëlee njëriñ te gis nga lim lay tere waxtu wuñ toogee ba gisatuñ ko. ku ko nettali sañ nañ laa weddi ci jamono bi di toogee boo ko wéyee mu wax ci lu leer nit ñi dégg ko ba ëllëg soo ko waxee ñu xam ne li nga wax dëgg la ci kanamam la ñuy nettali taarix bi mu dund ñun dund ak ñun ñu dem bàyyi ko fi wala ñeneen ñëw mu nekk fi ak ñoom moom mu dem bàyyi fa ñooña ñooñu nettili taarix bi ci kanamam kon niñ ko nettalee baax na jëlee nañ ci leneen luñ xamu doon bu la ko teree nag wax nga ko nag message bi jàll na moom ci boppam dëggal na ko fu ne bu la neexee nga bàyyi ko pour nga topp ndigal su ko defee góor gi mama mama ñëw na woy bi Ibou doon di woy tàngal na yaramam ba jëlaat na rajo bi munoon na ko nuyu ci jamono booba waaye ku dul waxee sa sago ndax yàlla ngaa waxee te yàlla du sago nga fàtte waaye mama ñëw na ci mbooloo mi ànd ak délégation bu am solo moom itam yàgg na ko def tànt bi tàntam la e, gàmmoo gi nag diggante waareeg wax la Basir Kébé mu ngi fi te dafa war a jël kàddu waaye itam dafa am loo xam ne soo ko organisé ba ñëpp si la am na ci loo xam ne nag yow yaa ko moomal sa bopp lii ñuy wax taabul ji moo eh, taalibe yi ñoo ko moomal seen bopp nañu góor gi may bu dee tatti minute la rek ñu liggéey liggéey boobu mu am fu ñu faree su ko defee loolu dariñu jëriñ ëllëg taalibe dafay baax siyaare ngeen sëriñ bi neyu ngeen ko def ngeen lu ne ñëw ngeen ci gàmmu gi li ci des nag mooy hàddiya waxuma bu Seex Sayid de hàddiya bu nga xam ne nii jumaa ji lañ ko doon laajal ci had bu jot daan ko lalal kaala tey nag lalaluñ kaala jumaa ji dafa am lu ñuy lalal kaala lan la ñuy lalal kaala mooy groupe boobu guni yi ubbi ñu ne naylul huda ca kanam ñu sas seen bopp bépp taalibe bu tarbiyee ci sëñ bi bu tarbiyewul ci sëñ bi tarbiyee ci ko tarbiyee ci sëñ bi weer wu jot lañ lay laaj mooy benn téeméeri dërëm nga dugal ko ci kees gi mu nekk ndimbali naylul huda du ma wax ne ndimbalu exécutif ndimbalu naylul huda exécutif naylul huda leen fi teg pour ñu nekk ci kanam mbooloo moo gis am na ñu nekk ci kanam kanamaay xabal kaala lalal ma ko fii ma laaj li ma war a laaj ci naylu hudaa ca kanam taalibe ko bokk mu xadam xamut leneen amut jubluwaay bi mooy liggéey lu am ñu def ko ci kër gi ci wàllu góor gi ci wàllu daara ci wàllu jumaa ci wàllu lépp loo xam ne ni dafa laaj ci kër gi te naylu hudaa war koo def ci kër gi soxlu ma weccat képp koo xam ne da sëgg di jël weccat baalal ma ngir yàlla waxtu bu ma ko mosee góor ñi ñooy am jigéen ñi ñooy am ndam tey nag ma gis góor ñi faxor faxor ji nag sottalu ko ma xàllal leen ma yoon bële su ko defee jigéen ñi mën a si góor ñi faree fii na góor ñi ñëpp dee seen poos yi li ci nekk bëriwul ay five ten rek ngeen jigéen ñi indi leen ma fifty yéen laa soxla hundred soxlawuma lu ndaw président Jim Diom ñëw na sànni fi kàddum soxlawuma la neen de wallaahi bu ngeen ma fi contrôler fukki junne ñaar fukk juróom fukk juróom benn fukk am naa gàcce dund indil leen ma téeméeri junne ak lu teg loolu laa soxla na kaala gi ñëw dund doomu aadama ba nga naanee yàlla kenn mënatul laa tere dund na ñëw ci kaala gi ma ne ku sànni sa xaalis balaa ngaa dem si gil nga xool seex Sayid soxla boo fi indi mu faju billaahi képp ku fi indi soxla te xool góor gi dem ñibi wallaahi sa soxla dana faju def leen ci yàlla def ci yonant bi liggéeyi kër gi la xaalis laa soxla de bu fi kenn sëgg di jël weccat bugguma weccat noo weccat eh bàyyil ma fi ku la yónneeti ne ko soxlawuma weccat waaw kay na affaire bi ñëw ma ne góor ñi ñëw leen woykat yi ana ngeen li leen jox ci taabul ji sànni leen ma ko fii parce que yéen la ñu liggéeyal. ko mu jël maay mu jël maay bu ko wóoy. dama yàq liggéey daf ma yàq liggéey bàyyi ma liggéeyal sama bopp wallaay ndeysaan bu wéy yi jógee rek ma noppi te wéy sottalu ko ma ne na ñëw Ibrahima widdal ma poos bi affaire bi ah waaye yokkal ba neen yokk rek am la rek. na ñëw góor ak jigéen gis nga li ma doon wax góor ñi yambari yambari gaaw ñëw na xaalis bi ñëw góor ñi nag góor ngeen tey wallaay ndeysaan yokk ba yëg ko bala ngaa ñibbi lu ko ëpp yàlla na dugg ci poos bi na ñëw soxlawuma lu ndaw de lu bëri laa soxla de bu leen ma teglal sa kaw sa kanam naylul hudaa ca kaw ca kanam ñëw leen kees la goo xam ne ni fu waay mën a ne ñëwal soo demee ci ngénte laaj ko Nayli Wouda ci kanam gàmmo laaj leen Nayli Wouda ci kanam ku ci jël jabar sax laajal Nayli Wouda ci kanam bugguma lu ndaw na ñëw te soxluma weccet de kanay laaj weccet waay ku bëgg weccet soxlawuma ko baa buggee fëqal sëqal Omar Kébé Omar Touré Baye Seet Kébé mu ndaw Omar Touré Baye Seet Kébé mu ndaw ñëw leen fii Omar Touré Baye Seet Kébé mu ndaw ñëw leen fii su ko defee ngeen seetal ma xaalis bi moom nga for mu ne 1000 francs la fi borom dëgg est-ce que CFA am na sëggal nga seetal ma waaye ñëw leen waaye gisaguma ni ñi de mbedd mu ngeen ñëw dem jël leen beneen rekk ngeen dem may leen ma diir bu gàtt rek ma yelwaan laajal nit ñi seen bopp def joxe yokku la li ci waay joxe da nga ko yokku de ñëw leen jërëjëf Ada Kébé Kébé salaamaaleykum Kébé waaye na ñëw li ci waay def danga ko am waaw joxe yokku la soxla wu ma lu ndaw de bu fi kenn sëgg dima indil weccet ci yéen waa Gambie yi Sénégalais yi moom képp ku ci indi 5000 na weccet la bëgg wecci leen ko parce que yoon bi dafa sori te dañuy ñibbi. salaamaaleykum Sow jërë ngeen jëf continué Diallo Diallo Diallo Diallo jërëjëf waaye nuyul ma waa Yundum jërëjëf ma ne na ñëw ana jigéen ji am na ñu ma gisagul de xoolal ruq bi moom xale yi ñëpp ngi toog waaye yéen bu ngeen ñëw rek joxe leen ko ci mbaxana mi mu agsi lépp dana ñëw xaalis piir laa bëgg soxla ma juróom fukki junne de dafa tuuti téeméeri junne laa bëgg na fi tegee xam ngeen ko man ngeen ko def leen ko lu fi waaye def sa bopp ngaay defal waaw yalwaankat ba doon na ko lu waaye am taatan góor jigéen ngir yàlla yónnante bi kii kan la Sayid bu Malick Ndama Sayid Malick Ndama ñu ne Sayid Gana waaw kay ah jërëjëf jafe ñu ma tuuti rek waaw su ko defee li ma bëgg ci xaalis doyagu de waaye doy na nag seet seet Gana kaay wuyu fii Jim Diop wa li ñew bu accès rek ngeen delu ta tok gamu gi doyna na ñew bu accès ñi jokkatu rek jokk man ngeen a jog waaye mun ngeen a ñàkk jog itam ku ci mën yobante nga yobante euh, heure bi dem na lañ soxla Omar Touré ban la Omar Touré ñew leen fi ngeen jël xaaliss bi ngeen yóbbu waaye feeg nit ñaa ñew may leen ma tuti rek gàmmu gi wallaay ndeysaan jere ngeen jëf na bari bu fi kenn seug daw yeen wa gambi soxla wu mako waaw kay baax na jëri ngeen jëf ñu jot a ñëw ñu ñëw ba agsi dëpp leen ngeen dellu ñu ñëwagul ngeen may leen ñu agsi ñu jogagul jéggal naa leen gàmmu gi laa bëgg mu continuer parce que guddi na dimbale leen ma lillaahi wa rasool walla wallaay ndeysaan nit ñi baax ngeen de baax ngeen yal na yàlla fay leen yal na yàlla fay leen lu fi waaye de bàyyi seeta ngoog dëkkam la madinatul anwaar Cheikh Mouhamadoul Kabir moo ko tuddee dëkk bi ba pare ba ñëm foq mu jox ko Cheikh Saïd mu sul ko dëkk bi kon jàmm rek moo fi am xaalis nag dana fi ball ba nit ñi foog ne xaalis dootu fi ñëw wallaay ndeysaan dëkk bii lu fi waay bëgg ëllëg dan ko am lu fi waay bëggul ëllëg it da nga ko am parce que loolu rek fi ne parce que ku bëgg du dikk wallaay ndeysaan lalal leen ma kaala gi ceen waaw ah, baax naa jërë ngeen jëf wallaay doyal naa xaalis doyal naa de doyal naa de parce que téeméeri junne ak ñaar fukk laa bëggoon te ne am naa lu jege téeméer doyal naa de wallaay ndeysaan <laughs> oh waay waay gi dimbali leen ma góor ñaa ngeen ko ñi hawla wala quwwata illa billah jere ngeen jëf wallaay ndeysaan maama gi lo jere ngeen jëf kontaan nañ waa kay baax na leen te wallaay ndeysaan jërëjëf maa ngi sant yàlla bu baax wallaay siyaare nañ siyaare nañ waaye kontaan nañ manatu manatuma wàññi nit ñi sëriñ bi waa ana Basir kaay dimbale ma ci gàmmo gi su ko defee nga jël rajo bi ñu continuer gàmmo gi jéggal naa ñëpp yéen ñëpp seen aajo dana faju yàlla am na lum sañ am na lum sañut fii yàlla sañut fee ñàkk a faj benn aajo bu fi nekkut parce que li leen fi tax ñëw nañ xam nañ ko xol bu set la wa baxna delu len oh oh gàmmu <laughs> gi oh yene iya ngi bëgg yaq yàq suma gàmmu gi ci kala gi wallahi ndeysaan jërëjëf kontaan nañ yal yalla yàlla saxal len ci tranga way doom yi nañ barke way dekk bi nak ku fi tek sa tànk sax boo xambu doon da nga xambu ta bo xambee da nga jut wax deug yalla walli yu waaw mbaa ministre mbaa président ñëw leen fii la waa jërë ngeen jëf kontaan de waye nak doyna doy na de am naa xaalis ba doyal ay doyal naa jërëjëf ngeen jëf ah te xaalis bi yëpp nit ñi la kontaan naa bég naa jërë ngeen jëf may leen ma tuuti rek soxna si sengaar yi bala ngeen di yàq gàmm gi wallaay ndeysaan na ñëw rek na ñëw jërë ngeen jëf bég naa de kontaan nañ ñaan nañ sëriñ bi kontaan na de bég nañ de lii dafa am lu ko waral nay li wu daa ca kanam ku bokk ak ku bokkut waaye li ci waay def sa bopp nga ko doon defal jërë ngeen jëf dellu leen ca gàmm ga Ibrahima Kébé waa Ibrahima Kébé Cheikh Mouhamadoul Basir Kébé moo war a dugg si ci tànt bi léegi jigéen ñi indi nañ seen hàddiya góor gi yëf yaa ngoog gaa yaa ngi ko dukkat ñu ngi ko yóbbu law bu ngeen ko compté na man ñaar téeméeri junne bu ko matul yéen ko doon compté yéen a koy mottali <laughs> am nag koo xam ne musóoram daa wadd koo xam ne musóor gu bula la dafa wadd mu ngi fii ak fu waay mën a nekk mu ne numéro yi mu ngi nii ci bi eh, plateau bi képp koo xam ne bëgg ngaa def ci naylu bi te wax dëgg yàlla amaguloo ci sa poos wala li nga yor dafa tuuti wallaay man nga koo def waaye lu mu mën a doon nag bu dee téeméeri junne saaku ceeb bëgg nañ téeméeri junne saaku sima bëgg nañ bu dee weñit bëgg nañ lu mën a doon nay lu daa ca kanam liggéey kër gi la loolu lañ doon def Ibou Kébé may ma sikar tuuti ba mu gàtt ma jox seex Basir mu dugg ñun ci gàmmo gi ba waxtu woo xamee ne ni góor gi war naa jël kàddu su ko defee mu kàddu ñuy dem Cheikh Mamadou Basir may ma tuuti Ibrahima Kébé mosal ma tuuti ci woy mu bégalee ko nit ñi nga xam ne indi nañ seen xaalis ci tànt bi bisimilah Ibrahima Kébé Sayyiduna ومحمد نور الهدى بدر المتامى وما للحبيب سوى محمد خير الرسل متاح المقام وبه سيدنا وعد نور الهدى بدر المتامى وبه سيدنا محمد قيل سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد قيل سيدنا محمد متعمد سيدنا محمد سيدنا محمد ميلاد سيدنا محمد نبي أم القرى بلد محمد وي أم القرى بلد محمد وي أهل سماء وزمان يا من وي أهل سماء وزمان يا من وي جبريل قال له مؤادا بسم الله بسم الله بسم الله way sëriñ seet ne sang bi sëriñ seet sang bi sëriñ sang be sëriñ sunu xol sëriñ Seck sëriñ ba mu kat sëriñ Seck di ko malakut sëriñ sa mu xam la xew jabarut sëriñ sa tajëfal sahi dafa war sëriñ sa tajëfal sahi dafa war sëriñ sa yéen a gëm sëriñ sëy yéen a gëm sëriñ sëy yéen a gëm sëriñ sëy yéen a gëm sëriñ sëy yéen a gëm sëriñ sëy laay yéen a gëm sëriñ sëy di ko laaj sëriñ de ko laaj mo wax lu ko raw sëriñ de xam-xamam du gis lu ko yéem sëriñ de sëriñ Kebe mooy sang bi sëriñ de wala neex na xam ni ko ñun sëriñ de wala neex na xam ni ko ñun sëriñ de ñu xam la fa xew sëriñ de xam la fa xew sëriñ de wala na sëriñ de والمثري زين يا النبي نجمع يا ليل الطريق بالواو قبل النجم كبار اسمه من Danga baye kundungu ebele rana gambeya Elke betal ler ler zambe Ay wallahi kebele rana قبل قبل لا الجموي فبارز بمن لير ولا كلا قامي كبت على لير توي ولا يوي سيد باي لو كنت يون يا يوم دون سيد باي كندو جبل رانا لا كامبيا تاين كما تولنا لرول لام بدو تكو بنيو نخنا آملا تالي سرين بيا تسي خلا جلال سيا كمام غالار مام أي للام باي بصير يا نمام زنو ممل يا عبارة يا كفجل سيا خي كبتا لنا لرن لم بدو تفاي جرجين والله نيسان واو يلا الله فلت مولا جو اي مبولو غنليو kon su ko defee continuer gàmmo gi kan la ñuy jox rajo bi ab Ablaye Diop waxtaan na waxtaan na diir bu yàgg lu mat waxtu Ibou Kébé jàppale na ko ci liggéey ba mu doon di def soxlawaat nañ ko ci kanam parce que baat bi dafa dee góor gi ne ko boo waxee baat bi dee waaye gannaaw Cheikh Basir mu ngi fi dañ koy jox mu dox moom itam tuuti ñu jox Abdoulaye Diop mu yëngal tuuti gannaaw baat bi dafa def sa sëñ bi soxla na pour déglu ko su ko defee mu door a si waat ñu bàyyi xel itam ziyaare itam. ku mel ni Pathé Xoll jógee Dakar mu ngi fi te daan na taxaw fii ci tànt bi yëngal ba ñëpp yëg ko mu ngi fi wax dëgg yàlla bu jotee rajo bi fan am amdu soxla woon nañ mu wax bu fekkee jot rajo bi itam fan laay amdu ñu xam ne programme moo demee noonu ba Basirou Kébé Ibnu Sayr Omar Kébé moom la ñuy jox rajo bi mu waxtaan ak mbooloo mi gàmmu gi nag gàmmoom la dañuy wax ne ñaay buy mbabas doom yaa tax kon mu ngi sëriñ bi dafa am benn contrat ba muy tabax mu jël contrat ba yóbbu ma fa man ci suma bopp ma nekk fa di tabax Baba Kanté moo ko ko joxoon néeg ba Badara Diouf moo ko moom ñu tabax néeg bi ba néeg bi pare Badara Diouf moomu moo nekk higher education tey ministre ba ñu liggéey néeg bi ba mu pare mu ne ma léegi néeg baa ngoog waxal ak moom ci raax bi nga jël ko contract ma ne ko doo jël le contrat bi ba agsi fii man may jëlaat contrat mu ne mu ne ma alliw boo gisee may jël li yéen a tax waaye man ci suma bopp taxul la maa am am naa ko ba pare duut ma soog mi maa yéene kooku mooy bàyyi say mooy bàyyi say Omar Kébé moo jur Cheikh Mouhamadou Fadil moo jur Cheikh Basir Cheikh Basir nag ca xale bàyyam yóbbu ko mu jàng jàngi na ci ban dëkk dëkk bu ñuy wax ndu ngu caareen kana ko doon jàngal Badra xaritu sëriñ bi waaye ba mu fa bàyyi ko sàkku ji na xam-xam ca ba mu jógee ca moo ñëwaat fii sukk ci ron baayam xam xàqatul ilaahiya dëggal ko mu nekk ci dënnam bi muy wax ñépp di ko bégee rojo bu mu wax ku sopp Basiir dégg nga ne xam-xam ngay wax ku sopp Basiir xam nga ne xam-xam laay wax kooku mooy Cheikh Mouhamadul Basiir moom la ñuy jox rojo bi guddi ki guddim la moo koy taxawee tey moo ko taxawee ëllëg moo ko taxawee gannaaw ëllëg su ko defee kooku la ñuy jox rajo bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax te xam ne doomu nay Nayloul Houda la te nit la koo xam ne am na lu ko yàlla defal baayam wax na ko ne bi ngeen ñëwee ngeen tokk suma ron tarbiya xam seen borom ñi ngeen ma fekkee woon démb du ma leen fàtte mukk ba jël leen yéen teg leen ci kaw ñooñu ko am xormaa koo wax ko amul xorma doo ko wax waaye yàlla may na ko teggiin ba ñi fekkoon muy ànd ak baayam amul kenn kum ceewoo mu sàll la papa diw rek laay kooku mooy Cheikh Mouhamadul Basir borom xam-xam borom yar bi koo xam ne nii xalifaa ko jur xalifa booba xalifa Cheikh Mouhamadul Kabir mu gëm nag li nga xam ne moom la baayam gëmoon muy Cheikh Jamal Abdourahman Bari Basir ni mel ci Jamal kenn melul ko ci Jamal na baayam meloon ci Cheikh Mouhamadul Kabir loolu la ko yàlla defal ci Jamal waaye nag ndaw la ndaw la baayam ak Cheikh ba la woon jëflante nañ mu rafet Cheikh Mouhamadul Kabir dëddu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 gannaaw bu ñu musloo yàlla ci seytaan suñ ko bugg a farafànce nag dina jël waxtu lu ñu war a def ci fukki waxtu moom lañ ñu jox ñu war koo def ci benn waxtu seytaane boobu nag duut bi gaa di wax bi nabil Moustapha waxoon kilifa gu tedd gii di Maulana Cheikh Alhaaji Saïd Omar Kébé xamal ñu ko ñu xam ne loola mooy loolu ñu gëm ne loolu mooy loolu dafay daw ci doomu aadama comme ni deret di dawee ci nit noonu la Nabil Moustapha wax kon lan mooy seytaane balaa ñoo dem bi nga meree wax toj toj seytaane nga bi nga ko defee seytaane nga leeral na ko ci ay kàddu yu bare bari wolof ñu baal ma su ma waxee am na lu muy niru wolof dafa nekk làkk boo xam ne bu yomb lool la tuuti ko noonu ñu tuddee ko jàq jaar waaye dafa bari ay xikma yu nekk ci biir nekkul ne liñ nekk wolof rek de ñun suñ cosaan sax du wolof saraxulli la waaye dafa am yu bari yu ñuy wax yoo xam ne soo ko bàyyee xel léeg-léeg mu gën a fasaa alquran alquran su waxee ne a amila saalihan fa li nafsihi wa man asaa fa wolof ñëw boole ko yépp mu nekk benn kàddu mu ne lu waay def boppam lépp ca dugg lii la yàlla dogal waaye doomu aadama su fekkee ne ñaar nekk nañu xarit bés am lu dox seen diggante coow commencé di jóg mag ñi li ñuy wax dox leen seen diggante balaa seytaane di am kon xuloo ba ndeke wuutu nañu iblis bu mbëkkante amee nag lu ñuy waxaat mooy ah ñii dee xarit lañ woon seytaane moo dox seen diggante rek ndeke waxtu wu toj toj amee rek seytaane ngóog ñu bàyyi ko fa dem gannaawit bu ñu santee yàlla di ko ñaan mu nangul te am nañ yaakaar ne tey moom amut lu yàlla di delloo di julli ci nabil mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ñu taxa tant bi tay ñukoy sop sop ku wér diko soppé ci Maulana Cheikh El Hadji Saïd nit munta bugg lu mu xamut nit munta bugg lu mu xamut kon suñu ñëwé di waxtané nabil mustafa ak guddim juddum dañ ko xam motax suñ ko xamutoon duñu jaral kenn di yàq nelawam du ñu jaral ñu yàq ay hundred hundred of thousand di ko dugal ci biir guddik Nabil Moustapha wuute naag ñi nga xam ni nag dañu jël gàmm def ko ñetti pàcc ñii ne dañu ko sib ñu sax woy woyofal nañ ñii ne dafa xaraam ñooñu moom wax dëgg yàlla su ma bañu doon wax lu ëpp damay ne ñoom ba ñu koy ŋaang balaa koy wax ci lañ xaraam ñoom Nabil Moustapha ku yàlla màggal ba ñépp gis ko ku jàng alxuraan gis nga ko koo xam ne yi tamit ñu tolloo woon ak moom jamono màggal nañu ko li ñuy def ni góor gi yàgg na ko jàngale ana kan la nabil Moustapha njëkk yëkkati mbubb bu jox ko ci tàgg gum ko doon tàgg muy kaab ñi jàng xam nañu ko ñi jàngul dégg nañu ko balaa ñoo dugg ci guddi gi nag dinañu xaasal nuyo ki nga xam ne tey suñu bañu te wax lu ëpp ñu wax ko te suñu ko waxee segg ko dinañ xam ne li ñu wax ëpput ki fi toogal yàlla tey ci jamono ji fii ci ron tant bi muy Maolana Cheikh Al Hadji Saïd ñun ci gannaawam lañ bootu waaye moom mu jël nag léppam muy kër imaam Mouhamadul Kabir Bari saaxibul fiidaati rabbaani ñu jël suñu xalifatul am teg ko ca kaw su paase woon wurus ñu mun koo misaal dañuy wax ne paase na wurus waaye doomu aadama dafay misaal nit ci loo xam ne yéem na ko te la ko yéem noonu nit a ko gën a foor waaye fokk rek maa laa budda laa budd noonu rek nga koy mun a misaale kon di ziyara khalifatul am muy cheikh Jamal Imam Bari togal ko fi ci ron tante bi muy Mawlana cheikh abdullah Imam Bari andon fi nak ak magam ju tedd muy seex nu xaabari ñépp ñu ngi len di magal niko khalifa gi di waxe keur cheikh imam Mouhamadul Kabir Bari ku tuti nekul fa waye nak dafa am lo xamne tabi'i la fokk ñu ne diw mo mag diw mo mag diw mo fete xale waaye ñi mag tey ñi nekk xale ñoo leen magoon démb noonu rekk la ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp du nuyu nag kilifa yu tedd yi nga xam ne teew nañ ci jotaay bi gannaaw bu ñu nuyoo Maulana Cheikh Al Hadji Saïd Omar Kébé waa Dakar bàyyiwuñu kenn danañu tënk suñu nuyoo ci ñoom muy kilifa gu tedd gii muy suñu papa Ousmane Tarawale nekkoon di liggéey ci government bi bari taaya kilifa gi waxoon na ko kon ñépp ñu ngi leen di boot ci gannaawam di leen ziyaara di leen dalal ci gàmm gi suñu dellu see biir gàmm bi nag am nañu loo xam ne gis nga yàlla su lay may fii mayagut la loo xam ne bugguloo ko mayagut la parce que yàlla li mu bugg moom la lay may dina la may loo xam ne ci sa gis-gis bugguloo ko waaye mu ngi defar ci sa biir foog mu may la ba may la loo xam ne danga naan su ma yëgoon du ma may nangam ndeke am na lu muy defar kon ñu ngi koy sant yàlla bu baax gis nañu fii honorable Badji mi nga xam ne moo fi wuutu président aadama Barrow nekk ministre boo xam ne moom la ñuy tuddee ministre of youth and sport kon ñu ngi koy sant bu baax waaye di ko lënkaale nag ak youths of Bayside su ko defee pamali Malick xam naa dinañ def pexe pour ñoom ñu mun a gisee parce que ministre of youth and sport wax dëgg yàlla youth of Bayside war nañoo jaxasoo ak moom di wax sang bi mala na Cheikh Alhaji Saïd ne ko tey la yàlla doora a dogal président bi yónnee fii wax dëgg yàlla lu jotut du mën a nekk kon tey la ko yàlla dogal ñu ngi koy sante yàlla ci ministre bi nga xam ne ñëw na toog fii ànd ak délégation ñu jàll nag di nuyu tamit kilifa goo xam ne gu tedd la yàgg na ak Maulana Cheikh El Hadji Omar Kébé muy honorable Kandé muy Mama Kandé yàgg naa jaxasoo ak kilifa gi def na fi lu baree bari teewee na tëj burde teewee na yeneen ak yeneen waye momit jamono bu ko yalla dogal ci la yalla dogal mu ñew tew si lepp dañ ko sante yalla maulana Cheikh Alhaji said njabot gi yep sa njabot la njabot nga ci president bi waye president bi njabot la ci yow lele na nga gis njabot go xamne dañuy yéex am gis-gis leg leg am njabot go xamne ne dañuy tela am gis-gis waye yalla su dogalee dogal na dogal na te tew ngeen lol nañ lol bi ñu yégee loolu dañ kontaan te it wax leen ne daje ngeen fi nga xam ne mooy xaxar xaxarul umuur fi nga xam ne tey mountain yi suñu wóoroon àddina bi am benn pax boo xam ne mountain yi su yàlla ji tawee ndox mi foofu lay wàcc tey yegsi ngeen ci place bi daje ngeen fi daje ngeen fi kon mbooleem opposition bu nekk biir bi ñu ngi lay nuyu di la taragal di wax ne ñépp ñu ngi ci ron président bi ñépp njaboot lañu ci biir dëkk bi kenn ku ci nekk lu baax rek nga bugg waaye ki gën ci réew mi yàlla nañu ko yàlla tànnal ki gën ci réew mi yàlla nañu ko yàlla tànnal ki gën ci mi yàlla nañu ko yàlla tànnal yéen ñépp ñu baax ngeen defar rek moo leen fi indi kon ñu ngi leen di xaasal nuyu ci boor boobu naam naam di nuyu di ziyaar ba léegi xam naa ñu dugal ko balaa ñoo def leneen waaye suñu waajur ni mu ko présenté woon gis nga li ñu waxoon ci bëccëg yére soo ko fóotee ba mu set nga paase ko ba mu tàlli nga jël spray def ci nga jëlaat beneen def ci jëlaat beneen def ci day gën a neex rek waaye du ko yàq kon suñu papa الحاج Saïd عثمان باس ñu لي نيو ديلا زيار ديلا واخني di nga ci bir hadara bi caq yi jigen ñi di tak digele bi nga xamne moy gëna rafetal jotay bi wala moy gëna rafetal ceen bi lolu mom nga toge ci bir jotay bi gannaaw nag boo xamee ne ab khalifa bi ñono teew ci bir jotay bi muy cheikh abdul ilahi bari mito ñu koy ziar bu baax waaye kilifa yi fi daje yépp su ñu leen bugg a compte benn benn benn danañ dem ba fajar waaye fook ñu lim ñenn am na kilifa gu tedd goo xam ne mu ngi fii moom lañ doon wax muy suñu anti xadi nekk goo xam ne esoo la fii ci bourse bi moo nekk nii toog ku baax la waaye tamit duñu fàtte suñu papa waaw foofu laa doon jëm suñu papa buubu jàllo mi nga xam ne tey mënuñoo lim te dugaluñ ko benn ñu njëkkee ko wala ñu mujjee ko ñu def ko ci digg bi ki njëkk a gas teen fii ci baañaaka muy teen bii cheikh kilifa gu tedd gi muy Mama Kande gas na teen keneen gas na muy boxool ñeneen gas nañ ci waaye moom moo njëkk gas pour Maulana Cheikh Alhaji Saïd Omar Kebe ñu ngi lay sant bu baax gis nga kilifa gi mooy wax ne daf ñu ko daan wax bu yàgg nit su jëlee boolib maalo ba mu fees mu tibb ci benn tibb jox la sant ko ngir lim la defal parce que lu rëy ñu ngi leen di sant bu baax gis nañu fi fii GRTS kontaan nañ ci seen ñëw su neexutoon borom réew mi duñu fi toog ndaxte su ko naqari woon suñ leen fi gisee tey ëllëg ñu wàccee leen wala ñu teg leen place kon sant nañ leen bu baax gis nañ fi tamit suñu mbokk yoo xam ne yàgg nañoo ànd muy Eye Africa TV di génnee programme yi Gambie du ma ne bu neylil huda waaye programme gàmbi Gambie yëpp dañ leen di génnee ñi nekk ci biir réew mi di ko gis ñi nekk ci biir tamit di gis lii xew ci seen biir réew ñoom it ñu ngi ci biir jotaay bi di ko génne ñu ngi leen di sant bu baax gis nañ fi tamit Star TV ñoom it am na ñu leen fi teewal ñoom sëriñ bi gis na leen ñu ngi leen di sant kontaan ci ñoom bu baax waaye tamit am na beneen TV online bu fi nekk moom it ñu koy tuddee Sunrise TV moom it mu ngi ci biir jotaay bi seeni nit ñi leen fi toogal ñu ngi leen di sant di leen gërëm gannaaw loolu it gis nañ fi King FM ñu ngi fi di jël programme bi live gis nañ fi tamit xam naa boobu jarul sa présenté muy Neelul Huda Media ñu ngi fi waaye gis nañ fi tamit ñeneen ñu ñuy tuddee Taxi FM ñii ñu ngi fi ak ñeneen ñoo xam ne xamuñu leen wala suñu leen xamee fàtte nañ leen ñu jéggal ñu ne doomu aadama doomu aadama la yàlla bañ na ko be ni mu tuddee nit mooy insaan mooy fàttekat bi noonu la tuddee doom aadama gis nga li tax mu tuddee nit nit góor gi am na lu ñu ciy nettali mu bàyyi ko ci làmmiñu cheikh imam mouhamadul kabir bari sahibul fidaati rabbaani mu ne li gën a neex ci àddina mooy fàtte li gën a neex ci àddina mooy fàtte du fàtte fii nag ñu yónni la comme man ma mel léeg ñu jox ma bàttali mu war a dem ci góor gi ma teg ko palaas boo xam ne dama koy bañ a fàtte ndeke su ma ko fa tegee kere laa koy gën a fàtte waaye nag mu ngi wax bi nga xamee ne ñi jàng gis nañ ci téere yi ne am na juróom-ñeenti mbir yoo xam ne duñu dee dee lu mu garaaw garaaw garaaw du leen laal ruuxu bokkoon na ci kon ruuxu gi dippi ci aadama bi ñu tegee benn balance bi yàlla bind ñi muy bind defal leen seeni jëmm jël ñeneen ñi def leen ci yeneen place ruuxu yooyu fa ñuy jaar di fa jaar di fa jaar ba yegg si fii sëñ bi am na koo xam ne defoon na tuuqiduuna boo xam ne dugal nañ ko ci place boo xam ne tey mu ngi nekk doomu aadama gisaat na ne defaat na nangam léegi su xamoon ne moson naa jaar place sàngam te tuuqiduuna bii moo fa dugaloon ñu wan ko ni ko lii nga defoon mu xool gis ne lim defoon démb ba dugg place defaat na ko tey kon addinam tukki alquran ne ñu laatas mbaa génnu ma ci biti laa tasalu an asyaa in tubda lakum tasukum bu leen di laajte mbir yoo xam ne suñ leen ko leeralee mu naqadi leen bari na ñu toog ñoo xam ne su leen yàlla wanoon fi seen ruuxu jaar seen silsila ba ñu toog fi seen àddina tukki ñu joxe ci lu gàtt tey kuñ fi atte ba magistrat bi jooj ko ñu ne ko ëllëg dangay dem tey dañ la war a rey ndég yàlla tere ndax kooku Cheikh Ibrahim soo ko tegalee benn ci dana ko saf addinaam tukki na dee na ba pare lii la yàlla bañ mu bàyyi ñu nag ci lëndëm gi ñuy tañax tañaxi ba bañ a dajeeg liñ soxla gis nga ku nekk ci bëccëg yaa ngi ci guddi ku nekk ci guddi yaa ngi ci bëccëg waaye am na ñoo xam ne tey bi ñu jóg koo ci Maulana Cheikh Alhaji Saïd ba kooku nga xam ne moo jokkoo ci Cheikh Imam Mouhamadul Kabir Bari seen guddi bëccëg la seen bëccëg. tamit bëccëg la mu ngi noonu doomu aadama benn fan lay dund ci àddina waxuma nag fanu zahir alquran moo ne inda yawman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'uddun benn fan ci yàlla dafa mel ni junney at ci ñun yi ñuy compter waaye yàlla ku yeewu la li gi di wax mu ne xamut yàlla pël la wala pël mooy yàlla waaye nag yàlla ku yeewu la nga gis ne yonent yàlla nuux dugal nañ ko ci alxuraan ne dund na junne at yu manqué juróomi téeméer am na ñu ne ëpp na ko waaye gis nga liñ doon wax ci balaa ñuy tëj burda bi pour jàngale moo xam ne mu wajjas la mooy bu gàtt góor gi yàgg na ko jàngale ne na teenub yonent yàlla yuusuf ba jàngale na ko nga demaat ñu jàngal la safaraaw ibrahima alayhi salaam jàngal na la ko nga demaat ñu jàngal la gaalug yonent yàlla nuux ga gis nga suñ la koy jàngal yépp benn la ci gàttal yépp benn la gis nga moo tax gaal googa ba mu teeree ña ca wàcce woon ñun ñii ca lañ jóge ca gaal ga képp ku toog ci ron tànt bii wallahi la azim gaal googa moo la wàcce su la wàcce wutoon kenn du la konte ñu dem taarix dafay jàngale ne yonent yàlla nuux bi mu déparé ak gaalam gi ak coow yu bari ya ñu ne nit ñi ñoom lañu jëloon teg leen ci escalier bi gën a kawe ci kaw comme soo demee ci féeri bi deg bu mujj bi ci kaw nit ñi foofa la ñu nekkoon bàyyi ma yi dëkk ak doomu aadama ñoo topp ci seconde bi waaye nag rabi àll yi ñoo dëkk ci taat bi dégg ngeen ma de moo tax soo demee ci lu ñuy tuddee naxwu anglais yi di ko tuddee grammar french di ko tuddee grammaire dama ne su ma bañutoon a wax lu ëpp dama ne amul benn xaraf boo xamee ne réer nañu ci Mawlana Cheikh Alhaji saa jàngal nañu ko waxuma ñu jàngale ko fële ci arab ci biti de jàngale ko ci nit soo demee da nga fa fekk xaraf wala boobu masque bu ñuy tuddee rafoo boobu moom naka jekk doomu aadama moo ko moom da fa fekk lu ñuy tuddee nasab génnee ko ci nit da nga fekk lu ñuy tuddee jar génne ko ci nit da nga fekk lu ñuy tuddee jasam yal na ñu yàlla musal ci jasam waaye soo ko indi indiwaatee doomu aadama yi bokkaat nañu ko tey fi mu nekk nii suñu duggee biir Gàmbi ci aada ak diina kan moo fi rafoo tey muy His Excellency président Adama Barrow moom la yàlla jël teg ko ci kaw waaye nag bi ko jëlee teg ko ci kaw it His Excellency président Adama Barrow mu ngi ci ron Maulana Cheikh Alhaji Saïd ñu indi ixtiraan naka la yàlla daan doxale bugguñu tooñ doomu aadama ndax Mawlana Cheikh El Hadj Saïd soxlawut ko bugguñu tuutil nit bugguñu ko ñu indi exemple ci yonent yàlla Daawud naka jekk yàlla su daan yónni buur su ko daan fal daf koy jaarale ci yonent daf daan boole yonent ak buur yonent bi moom mooy fal buur bi buur bi mooy amee kàttan gi ci yëngatu bi muy xaraka bi waaye dogal bi ci loxo yonent bi lay nekk mbir mi jot na nag yi yàgg nañoo dund ci yëngatu yàgg nañoo dund ci natt boo xam ne ñoo ko teg suñu bopp doonte ñenn ñi ñoo ko def waaye yàlla suy wàccee natt ñépp la koy maasale bi nga xamee ne yonent yàlla daawuda tànnloo nañ ko ku ñuy tudde taaluut moom moo ko tànn moo tax xawma ñi toog ci diine ji toogal fi diine ji ca kaw xawma ñoo tànn seen bopp xawma ñun ñoo leen tànn waaye de su fekkee Mawlana Cheikh Alhaji Sall la bokkut ci ñi leen tànn xawma nag ñen ñoo leen tànn waaye ñu waroon nañ di toog ak président di ko wax diina naka la war a àndee ak aada gis nga tey diine mosuta bañ nitu diine jaxasoo ak nitu politique ñoo war a ànd te it nitu politique lu mu war a dugg war naa ñëw ci kilifa ñaan lu ñu ne ko defal lii moytu lii lii la yàlla ma sa dogal yonent yàlla daawut yàlla tànnloo ko jaaluta mu jël ko fal ko ci biir nit ñi ñuy doxal lañuy doxal bépp yonent bu ma ñëw buur falu ci jamonoom ñoom ñaar ñooy ànd liggéey kon mbir yi dafa mel ni yàlla dafa bugg a dimbale Gambia ñuy dégg kilifa gi war a ñëw dajee ak moom fi mu nekk nii mburu mi indi nañ ko ci pegg soow mi sukur si indi nañ ko ci pegg soomi ñu koy commencé di jaxase muut rek mo ci dess kon Gambie dana neex ci kanam dana neex ci kanam de mo wax len nak dana bari tiranga ci kanam waye dana bari ay dof de Gambia dana bari tiranga ci kanam waye dana bari ay dof ci kanam ya nuñ ci yalla musal ya nuñ ci yalla musal jamono bi numuy muy rek non la mbiri di yaatoo ci nabil mustafa lañuy waxtaan waye mënuñu ko genn lepp luñu wax ci biram lañuy ñuy dama xamut nag dañuy dem ca reeni garab ba wala dañuy dem ci taat bi wala dañuy dem ci banqaas yi wala dañuy dem ci cariya su fekkee na ca cosaan ba la dem danañ raam ci aadama alayhi salaam ñu ngi woon ci yonent yàlla nuux ak gaalam gi bi mu déparé ak gaal gi gaal gi am na ci biir ndox mi juróom benn weer sharia am lum jàngale mu ne soo takkee soxna nga am benn weer ñaari weer ñetti weer ba juróom benn mu teg fukki fan su soxna si amee doom sharia ne moom wa xamluhu wa fisaaluhu salaasuuna shahran waaye nag alquran ne na di naat nampal seeni doom xawlayni kaamilayn liman araada an yutimma rada kon doomu aadama bi fi ñu ko ëmbee ak fi ñu ko feralee loolu dafay nekk fanweeri weer ñu ne na génnee ci ñaari at yi nga xam ne moom lañ la ne na ko xale bi nàmp soo ko génnee ñaata moo ciy des juróom-benn weer moo tax sharia dëggaat ci ne nit su takkee su amee juróom-benn weer doomam la su ko bañee na dem ci xaad yi ñu waat ñu tas diggante bi waaye nag xëy su ngeen waatee ba diggante boobu tàqali ko àllaaxira ci ngoon sax malaaka du ko takk diggante boobu jeex na soo fa gisee doom ju barke nga bugg a ñëw taxaw ne yaa ko jur dañuy fudd sa lu ñu jéggal ma ci kàddu gi moo tax sharia nun la gis nga sharia maa ngi waat ci alquran ni kuy dund ci sharia nga dee dugg àjjana yàllaa yërëm sharia léeg-léeg mu saxal loo xam ne danañ la jàpp def la liñ lay def mu door koo rocciwaat ne moomu loo ko su nit ndeg yàlla tere su nit jógee fii ndaw si ñëw ne diw moo ko ëmbal sharia ñëw laaj ko mu ne waaw nu ñu def su takkutee jabar dañuy wax ne dañu koy caw lu tax ñu koy caw nangu nañ ne moom moo su paree ñu ne doom ji nekkul sa doom sharia li mu def doy na waar de mu ne doom ji yaa moom ci kaw moom ko moo tax ñu caw la mu pare mu ne doom ji moomu loo yéeme na gis nga ko amul ci xaqiqa tuuti dana yéeme de soo paree nit ki ñu jël ko fii di ko dem suuli ñu jël ko war koo jullee nga ñëw doo sëgg doo rukkoo doo sëpp sa jabi ci suuf lu ko waral ñi jàng sharia ñu ngi leen koy laaj gis nga moo tax toujours ñuy ñaan sharia bi dafa am ñoo xam ne soo waxee tëb rek dem ci xaqiqa loo wax duñ ko gëm waaye toppal ak ñoom sharia bi ba waaso bi jeex tool bi jeex nga dugg beneen tool danañ la gëm de sooy waxtaana nit ki ci li xam ba jeex nga dugg ci leneen di nga dina xam ne li nga xam lim xam-xam nga ko te leneen loo ci doole dina xam ne lii danga ko ko ëppale doomu aadama nun la ko yàlla bindee waaye bàyyeeguñ gaal gi de gaal gi bi mu dawee ba am juróom benn weer ci biir ndox mi ñu ne bi nga xamee ne foofu nag xam naa góor gi su yegsee dina am lu mu fay leeral man damay maasale rek jàll bi mu yegsee ci doj boobu ñuy tuddee juut yi moom su yegsee foofu waasoom la waaye bi ñu taxawalee gaal gi balaa ñu war a wàcc ci suuf yàlla dafa yenkebal yonent yàlla nu wax wax yu ko yootal ko ne ko da ngay yónni ci sa daaba yi ñenn ñu dem ci biti seetala ndax ndox mi fer na wala déet parce que balaa muy départ ñi ko gëm daf leen dugal ci biir gaal gi képp koo xam ne gëmul ko yàlla daf ko jox ndigal ne ko asamaan saa ngi noonu suuf saa ngi nii asamaan si di taw suuf si di ball asamaan si di taw suuf si di ball ba juróom ñaari fan ñaari ndox yi daje ci àddina bi àddina bi yëpp raataloo ci li ñenn ñi bind waaye ndeka suñ la koy jàngal dangay ngay arrière tuuti delluwaat ci doom aadama bu ñu xoolee ci ko asamaan si li ñu sang bi jàngal yàlla lim ñuy wax mooy wafi sama rizqukum wa ma yàlla nekkul fa malaaka nekkul fa yonenti nekkul fa ci kaw seen wërsëg ma fa nekk mooy ndox mi su ngeen bëggee lu leen yéem wa fil ardi ayatun lil muqinin xool leen ci suuf si da ngeen gis lu leen yéem su ngeen xoolee ci suuf si jibiti xamu leen dem leen ci doom aadama mooy suuf su piire si moo tax nag muy indi taqribul maana taqribul maana mooy lan demal baañaaka ci kër Mawlana si xalaaji saay foofu mooy fan rombal dëkk bu ñuy tuddee Madiana soo yeggee wàcceel su conteneur bi soo yeggee demal si jumaa ji foofu mooy kër ga nii leen la waxee ba nga egsi waaye ñu ne mu yónni lu ñuy tuddee baa xooñ ne ko demal ma seetal ma suuf si ndax ndox mi wane na suuf si kon gannaaw boo xam ne yàlla ji taw na ba ñaari ndox yooyu daje ñu ne juróom-ñaari fan ndeke juróom-ñaari fan boobu yàlla indi na ko roof ko ci jëmmi doomu aadama juróom-ñaar yooyu si la yàlla di sose bépp doomu aadama waaye nam koy sose na fa nga sukk ci ron góor gi moo tax ñaar yii moom la jël sànni ko Cheikh Ablaye Diop yeneen ñaar gis nga benn juróom-ñaar bi moom la sànni ci mbooleem góor ajal leen ko nag ca kaw asamaan si mooy asamaan jël yeneen juróom-ñaar yi sànni ko góor jigéen dénk leen ko yàlla ñëw yeewu yeewu ba jël ko dugal ko ci biir na nabil Moustapha ba muy naafila ba tànk yi di néewi mu yonko ko yonent bi yàlla ne ko déedéet tàllal tànk bi taaha ma anzalna alayka alqurana li tashqa dëggal tànk bi tàllal ko gis nga taa haa soo ko kontee fukk la ak ñeneent ñaari juróom-ñaar yuñ boole la moo tax alif bi mooy wàccee juróom-ñaar bi dugal ko ci biir saat bi waaye bu ñu sampee alif bi ci kaw saat bi dafay mujj nekk taa yàlla nag di jàngale jàngale mu réy ñu delluwaat ci suñu mag suñu maam jigéen yi ñu ne jigéen su ëmbee ba jege dañu koy bugg di liggéeyloo waaye liggéeyloo bi ñu koy liggéeyloo alquran ne taaha dëggal say tànk nga waaxu yaram bi tànk maa anzalna aleyka alquraan tashqa gis nga lu ñu def ci sa jëmb ji moo fi uuti yàlla su ma ñeme woon ne moo fi yàlla waaye nag duma ko wax duma ko wax de su ma ko waxee ñu ne wax naa lu ëpp yàlla dafa jël aadama ne ko jël naa la nga wuutal ma ci kaw suuf si tay president bi mu waree ñëw baa ñàkk a munta ñëw dafa yónni honorable Badji mu ko su kan mooy ñëw du president mooy ñëw président bi bi mu ñëwutee kàddu yu dafaragal depas jox du yoo mufarto ko jox Adam na yàlla moo waroon a dafa ragal dépasse bu bari bi ko ñi di mu far Adama Adama di dang dangi rek ko ne aadama mu ne ah ne ko dugal naa la biir aljanna waaye bàyyi sa xel de nguur gi dafa neex gis nga su ndaw si naan jox ma jox ma jox ma ba nga jox ko loo xam ne waruloo ko koo jox su boobaa di ngeen génn aljanna te su boobaa nag di nga mujj toskare waaw laa yaxrajannakumaa min aljannati fa tashqaa waxul leen fa tashqawaa de fexe leen ba seytaane bu leen génnee biir aljana su leen génne yow nga toskare parce que su boobaa martabaam bi dinañ ko wàccee delloo ko ci suuf su amee sens dëgg mu jël palaasi Hawa su amul sax ñu sànni ko ci biir àll bi yàlla ñu ci àll musal gaalug nuux gi di daw di daw ba bi mu teeree baa xoñ na bi ñu ko yónnee moom dafa dem gis meddi yaa nga bari demul doxal yonent bi de mu continuer ci meddi yi rek mu yàgg lool yonent yàlla nuux móolu ko mu mujj yónni pitax mu dem bi mu demee dal ci suuf bi mu jógee ñëw yonent yàlla nuux xool ko gis ne dëgg dëgg dëgg suuf si feri na mu door a wax na nag nañ départ léegi gars yi di wàcc ba ñuy wàcc ñu ne juróom-ñetti nit la ñu ñu tuddee seen dëkk ba sama samaanin waaye liñ ci soxla mooy bi ñu wàccee ñu ne yàgg bi ñu yàgg ci biir ndox mi moo tax mënatuñoo gis ñu jël ismit muy pimpi ñu koy tuddee tusngal ñu def ko ci seen seeni bët moo tax bisu tam xarit ñenn ñi di ko def yenn yi na bokku ci yenn yi bokku ci gis nga Yazid ibnu Muawiya bés bi nga xamee ne rey na ci xasan bés bi mu rey xasan yan nañu yàlla musal ci reyin ba soxnaay xasan la neexal dig ko xaalis bu bari dig ko mu nekk soxna mu ne ko dama bëgg nga posoneel ma ko ci guddi gi toggal ko togg yu neex jox ko ko mu jox ko ko mu lekk ko ci guddi googu dee léegi nag moom bés boobu nga xam ne ci la rey xasan mu kontaan ci kontaan goo xam ne mu ne bépp képp ku nekk biir Kuufa na nga bég ci loolu ñu togg ay reer di ko tasaare di saraxol la ci biti lii moo indi tam xarit lii moo indi tam xarit waaye nekkut loo xam ne maaruuf la fi soo ko defee na nga xam cosaan yi lekkal sa cere naanal nga ñaanal ña ko ña ko defoon waaw nga ñaanal ña ko defoon rek mu jeex kon yonent yàlla nuux bi ñu wàccee ñu def loolu tey ñu delluwaat li may laajte mooy ndax xale bu yàlla xaasalut xam naa ci jamono jii lu mel ni Cheikh Imam Mouhamadul Kabir Bari saahibul fidaati rabbaani kooku moom loolu dara pour ko ci koo xam ne mun naa nettali ni mu tëddee woon ci biir waajuram leneen réeru ko kooku mun naa xam li may bëgg a wax nii tey ban xale mooy judd rek bés bu mu judd mu gis xam nga lu tax du gis dafa yàgg ci biir ndox mi dafa yàgg ci biir ndox waa dina ci baax de upp baax na ci laax bu tàng ndeke maa ngi ñàq sax Cheikh Ibrahim ñu ne nga nganam nganam tuuti ñu ngi <laughs> waaye <laughs> <laughs> Ibrahim bismillah dañ fa benn ngi ni teew fekk na si

ñoo ngi jiital ci nuyoo bi suñu sëriñ Mawlana Sayyid sëriñ Saxid Tamar Kébé ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara di la ñaan yàlla taw fii ñu tey siir di ñaan yàlla defal defal mu gudd ak bu ànd ak wér ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu sëriñ Bachir mi doon wax nga xam ne suñu wóor la suñu xarit la macha allah nga xam ne bokk naag moom nekk fii ci kër gi yuuxu woy ma di ko dog dafa am si mbokk yi ama yi fi nekk ñu am si mbokk yoo xam ne ñoom ngi dañ feebar mu bokk ci xale yi nga xam ne lii bokk nañ ci ñi koy taxawal taxawee gàmmu gi sol yére yi ñu am ñaari xale yu bokk ci ñoom te feebar si mbokk Abdoulaye Ndiaye dëkk ak si mbokk ama su ko defee ñoom bàcc fay limaan bub ak fu waay mën a nekk rek lu am kàttan ñu defal leen su ko defee ñu jox leen ko parce que ñun ak ñoom ñoo daan nekk fii te ñaari xale bokk ci organisé kii dafa amee loxo kii dafa tëdd su ko defee ñu dimbale leen keneen ki Abdoulaye Ndiaye ñu kër benn mbokk la taalibe la ci daal bi la bokk ak ñi nga xam ne dañuy ñëw fekkale si Moussa ngi nii ci table yi su ko defee bisimilah sëriñ bi continué. jërëjëf sang bi comme ni ko ni ma ko waxee rek Bachir ñoo lay nuyu bu baax nekk na ñoom moom foog naa ñaari weer ci kër gi fii mu doon sunu wëllëri di ziar. إبراهيم كابي ميغا خامل موسو وولر التي يفي ناخ دون نكو باخ كو ياتو كو مونا ياتان بنيار يالا ريك يالا نكو تيوي أبي بري تبارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحسن دوائما مدح محبت يا شمي تنال الذي تبغي من الفتح واليسر واحسن دواما مدح نقطة هاشم تنال الذي تبغي من الفتح واليسر بي فاشتغل يا ما دمت قادرا فمدح رسول الله من أعظم الظهر به نال مانا رجال مراتبا من الملك على مجلد عن العصر فمت رسول الله أحمد عدتي جل محمد محبته في القلب كنفس في الصدر أي من الخيرات يا سيد الورى وخاتم رسل يا ذوي القدر كبك زي زي كبد فني فنحن عند البادي يا سيد الورى بجايكم نرجو الشفاعة في العصر أكرمه من سيد الحنول عبد البرايا والد البتول أكرم بليلة خير من عنف الشهر هي سلام كلها للفجر ذا كله لما بدون النكر أكرم من أمره الإله لنشر دينه لن يتناو كما أتى في سورة الأخول على لسانه به محمود قد قصه الله به مولانا مراتبا فوق من سوانا كوكو سيد رسل قاتم الأنبياء مصطفى الله شفوة العصفياء مفدع الناس عند يوم افتهامي وشفيع ساعة يوم الجزاء فاقبلوني محبتي يا سماني وملاذي في شدة ورقاء ومن لي بالوجود الأيلمي سيكون تجعل موي شيقي أبي الأبا في بحر الحكم وأنا صبي شيخ تجاني وي مني هذا العبد أن تميت على طريق شيقه أدخلته لازم لازم حتى نال من ربه ما ناله نوى مميت كل أولياء الله من فيده دورا فيا الله كما كشيخنا تجاري دفني أبي الفيوض لقمدتي إلى العلي وسيلتي ممد كل خطوتي من فيده من شيخ تجاري كيور كروسا yàlla day raxas tilimam may ko xilliina tegam delluwaa ci taali ko gii kurus ku xas ne ko cas soo waree dangaa xalalab bu fa guut di la fab léega lab labaale mag ba ومني سنو سرين بي دو إدي جاب فردي لده فردي مصر يالله جاو بنغال فواليكو موتخيط كيور كروسم دخل داعي بفرو من أجم أكتيا بجو من أم دوت تخلف عليلا سلسليو كرخيو فبايو جنيد كل وليه seeni xel xalaatu ko su bur yàlla soobee danaa fentu ko way di kañ Seexuna kañ ko kañ yu bi ci jël dégg naa ay pitax yi tawat nan xëtiin ab li ceeli moo ko këf mais pitax nan ko ndax mar waa ko rëy mais pitax naa ko man xaajuma wóolu maf di tax mii di way mii di jooy kurkutuk kurkutuk boo amul fatxu nag doo ca xam aw araf seeni négatif wi ci xol wi ci man moo taxit maa ngi nii maa ngi saf waaju dof bi taxi xanaa du ngeen nelaw ñu ne ñun ñun danoo safi nelaw kuy nelaw yaa ko tey fii kuy nelaw doonu saf ndax foo fekk kuy nelaw ak cofeelam daa matul su cofeelam matoon ay bëtam sax du raf sabaxtari jaalan moom Seexu Tijaan fii ma daamini sunnati وبينت أسكال الديانات أحمد ويسير تجليا في مقام خلافتي وتختيم مرسقا مراتب أحمد وكنت وليا تقدى بسيقنا فإن قيل قلت قلت أحمد وكنت وليا به محلما وآدم بينما يواتيني أحمدا فالمستوى بفيود السر قلفه كوكو فهو الخليفة في كل البريات ولاية قال نعم، مهم أخبار نوقف شيخ واي داف لي ني كي الكبير بري واي خم خم بارك ونا دوسو گيج كبير بري لبلو نوال يوسو دان ولايه گاد لا موي nongo Cheikh lool xoolal suñu baay Sayid Kebe yal na yàlla guddal fanam te aar ko ci barke Seydina Muhammad cofeel bu mu am ci Cheikhuna Tidiane baay Sayid Kebe moo toj nangu Kebe moo toj baa ñaata ji moo tasaare Gambia saxal fi laa ilaaha illallah ku bëgg Baay Seydi Kébé defal nii di màggal sunu nguur gi jar naa yee Ahmad Massayaw balgar sawayaw Ahmad Massayaw balgar فوق الناس سوياه أحمد ما سياه بل دار سوياه يا الحمد لله هذا سيط رباه كل خير الوجود الذي أله مولاه سخر بابي لا خلوة جن أصحابه أغانا تستغفر مفا يا لله من هاو سخ بهمة أو بهال هذا تربية تنعم المربي ريب الحق يا داو سخ نار الخلافة يو يو دفلني جبكي من دمي لاج ana soppay bay seet man de damay laaj ana soppay bay seet man de damay laaj ana soppay bay seet yéey def leen nii ci góor gi man de damay laaj ana soppay bay seet man de damay laaj ana soppay bay seet Ibrahima Kepe bay seet ko nandal jërëjëf sëñ Ibrahima Kébé kon bay seet ko nandal sëñ Basiru Kébé kon bay seet ko nandal waa naylul huda def leen di ci góor gi waa naylul huda def leen di ci góor gi waaw def leen di ci góor gi وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا lool kontaan lool góor gi kii ku baax la euh, nekk na ci kër gi lu tollook weer ak lu teg yàlla dafa def ñu bokkoon benn sanc doon liggéey Eh, sànce bi mu ngi fële mooy kër Papa Ali Cissé sëñ Mansour xaw nag ana marto fu mu nekk léegi waaye ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax eh, jàng terewut la ut métier góor gi daf koy jàngale gis nañu koy ci téere yi waaye na ma koy jàngalee moo gën a leer ñun suñ ko gisee dañuy wax ne doomu aadama soo bëgg a saraaxa ku la ëpp xam-xam njuumte yi day bari waaye ku baax la sëñ Mansour ku baax la waaye nag ku raglu la woon mooy ku ragal yenn yi la nag xaw ma Cheikh Ablaye Dia fu mu nekk waaw Cheikh Ablaye fu mu nekk waaye ñu ngi koy ziar bu baax sëñ Mansour day bi doon wéy kontaan nañ torop waaye nag xaj moom bokkut ci yu ma ñeme <laughs> beneen bi it mos nañu wàcc xam naa boobu mook euh, papa Ibou Guèye dañ ci xaw a jege góor gi nag mu ne mu ne may bàyyi di tooñ may papa xadara bi dafa neex lool ñoom papa Alioune Cissé ñoom papa Amane Ndour surtout papa Amane moom moom foog naa ne koñ bi ñii maam lañ ko def ñii kal ñii leneen waaye dundin bi la xam naa ñu jox ko tuuti rek muy sànni sa seex bi sëñ Mansour woyu am na solo déggul tuuti rek góor gi mosal la tuuti ci Seex Ahmad Tijaan waa déglu leen tuuti rek mu mos leen tuuti ci Seex Ahmad Tijaan bismillah su su rajo bi jógee rek Ablaye Diop. Euh, Cheikh Mansour jërëjëf sax ci Cheikh Ahmad Tidiane fi nga doon wooyee wooyee xalifa Babacar Sy bi te xam ñu bokk Tiwaawan de weddi faydu te Babacar Sy wax tarbiya fo na yaa ko bi daa xalwati yàlla tarbiya doo dugg xalwa atastaqamoo fa yàlla man mu ne naanu waaye yéem naa naanu waaye boobu ci Cheikh Ahmad Tidiane waaye lu tax nag Tiwaawan ñi ak ñi leen wër bugg a bañ ne tarbiya dafa am te xalif Babacar wax loolu dégg naa nga jàdd dugg kër Cheikh El Hadj maa ngi ko wax suma sëriñ bi dégg naa la li nga woy ci Cheikh Tidiane fële El Hadj Omar Ndao moo ko woy waaye moom mu nga wax loo xam ne ba léegi ay ay njabootam dañ ko bëgg a tey weddi moom El Hadj Omar Ndao ku doy waar ku doy waar moom laa gis muy kilifa ci biir senegal nangu ne. sirul akbar daay taxu du sax ci genn kër ñenn ñi dañ ko bëgg a saxal seen kër waaye moom mu ne day dox waaw mu ne yàlla suhóoru kal xaq la yax faaxala aadi suhóoru mulki yaa saayiru yàlla te njabootam mu ngi wej ji yàlla mu ne suhóoru kal xaq yàlla sa dëgg ni mu feeñee ci monde bi la yax faaxala aadi réerul kenn da nga ko xamul ko waaye réerul kenn suhuru mulkika seen nguur gi ni mu feeñu ne yàlla yoo rek a fi ne waaye doom yaa ngi ko ñeneen ña bokk ñaa ngi ca bëgg a weddi dégg naa ku ñëw ren ngeen sànjal ndax pa ta naka la mbaayeen dafa wax naan ku leen wax naan yàlla dañ koo gis nangam nangam nii naa loolu yonent bi moo ko wax sëriñ si waxuñ ko day toppi alxuraan daf ci am foo xam ne suñoo gàmmu ko fa àgg rek naa jël war rajo bi wax ci yow tuuti bu yàggul dafa am ñu nekk fële maam El Hadj Malick nee na tariqa bi passé na téeméer ci suba téeméer ci ngoon xam ñu doon weerante maa ngi ko yëg. borom a nga dëkk Thiès mu ne loolu bokk ci tariqa bi demal ci téere yi da nga fekk juróomi téeméer bi ñoo liggéey ci tarbiya naka lañ koo defee ñu ngi ko bind fàtte moom jàngul moom jàngul maam Alaaji lu ne wax na ko ñi ko topp ñu bëri bàyyi ñu xel li moo wax nañ woy ma xumba rek ñu fecc am xaalis te loolu yëkkatiwu doon Maodo maam Alaaji Omar yi loolu yëkkatiwul ko moo taxaw ci Sénégal ne suma euh, léegi bii ca Badar lañ ma ko jamee woon kenn ñemewu la weddi suy waxtaan nga teg rajo yoonam du la wuyu waaye doo jël dara soo nataal du portale mu ngi laa xool yoonam doo gis dara loolu la ko yàlla séddoon kenn ku ne nañ koy nangul cëram bañ wax ne suñu waa ji rekk la cëram dox déedéet coow li bëri na biir Sénégal ku ne def nañ lu ñoo yem ci kilifa yi ma xam yëpp waaye doomam jaar naa oto ci biir ndox mi maam sëñ Tuubaa lal der bi imaamulaay puus géej gi maam maas garab gi daan woon ci ko yoonu puus ko te kenn laalu ko

wala yi ci Gàmbi Sénégal ak Gàmbi yëpp taxu nañ ku ne dox na xam naa lay dox yonent yëpp dox nañ waaye moom génnul fam ne moom rek la yàlla may loolu bés bi tubaab yi yëpp d'accord ne bés boobu ci la àddina bee tukki ku nekk toog ci télé Dakar guddi googu la sekk biir faatu kon ku ne sa cër ñu laa jërëjëfal ci woy yi waaye day la bëgg won ne li nga woy kuy woy ñu ngi laa déglu loo woy maa xam ni ma xamee wolof bi ma naan incha allah jërëjëf nag way yi neex na gërëm nañ la ci ndax kumbal nga tànt bi te loolu la gàmmoo jëriñ am na koo xam ne gàmmoo wóye koo bigal am na koo xam ne waar laa digloo am na koo xam ne moom bu duggee ci biir mbooloo mi rek xol xol bi seey na yonti bee toll doon gars yi na ma ren te ren de am na ñoo xam ne te démb ba tey ñu ngee fayeeku nit ñi ci garage ba fifty dollars pour eh, naka la bàññaaka foog ne damaa wax ne dañ bon ma ne as kay yonent bee baax ñu ne ah ma ne séddale na ngeen yére yu rafet tant tant bu rafet togg ñam yu rafet ña ngi xaj yi dana ci am muus yi am ci eh, ganaar yi am ci melentaan yi am ci yàlla yi joxaale sëfoor yi ñu yokk seen pay gi yónnante bee toll noonu bu leen mere kenn féeri bi am na ko ma wax ma ne ko féeri bi foofu mu paan mu ne ma lu tax ma ne ko gaal yii daw te ñu ngi war a fay seen droit mu ngee jot ci kii ni ñu ngi ko war a fay xamuñ dara seen njaboot ak leen a xaar nooy def yàllaa tey paanal féeri bi suñu xamee la ñoo xam ñu defaraat féeri ci man

kontaan nañ lool eh, ñu ngi wax tamit ne Red Cross ñoom it ñu ngi fi ñu ngi leen sant bu baax waaye am na suma xarit boo xam ne foog ma tudd ko muy muxaddam kaatim Touré bu pase xur moom dafa sopp góor gi ba jeex ci moom tàkk mu ngi ko soppee ci kàddu Cheikh Imam Mouhamadul Kabir Bari sax bi fuy taati rabbaani mu ne bés bi mu déggee cheikh imam ne diw moy suma taaw wax dëgg yàlla suñu ko waxee dañuy natt mbir na mawlaana cheikh al islam waxoon mom daf ne amul doom bu jigéen te doomam taawam bu jigéen jur imam Hassan ñi xamul yàlla dañu koy weddi waaye li mu bugg a jàngale mooy li mawlaana cheikh alhaji saay di def mooy xamal leen yàlla ba seeni ruuxu nekk maqaama boo xam ne góor wa mariama ibnata imran alladi axtana farjaha waa kii de ñu ne xale bu jigéen bu réer la waaw su ko defee ku ci xalem réer rek mën na ñëw seet si ko fii mu ngi sol mbubb mu xonq bu ñuy tuddee bu dereti xaj xale bu jigéen la laaj nañ ko nag turam mu ne tabara la tudd mu ne tabara la tudd ne tabara la fu yaayam nekk na ñëw su fekkee dafay nelawit ku xam yaayam na ñëw seet ko fi leg leg nak xale réer fekk yaay ji da fay nelaw tabara siise ngok tabara siise yo xana da nga don topi palaat yi ba réer ab ciise ciise la euh sang bi ñu ngi lay sante bu baax fi mu déparé ci wéyam ci lañu nek nekk wa xasil dawaaman madaxa nuqbat xaasimin tanaalu lazi tabri min alfatxi wal yusri foog naa sëñ Mansour foofu la déparé foofu la mbir yi nekk foofu la mbir yi nekk moom la Cheikh Alhaaji Malick doon wax ne daayil atnaaba xul kullal baraaya anilu ma anilu min mubini mu ca noonu ya téere la nag boo xam ne yenn yenn firikat yi yabuñu ko waaye téere bu am solo la mu ne na ngay amal sa tagg ci nabil Moustapha waxasil dawaaman na ngay def jamono bu nekk ngay tag ki nga xamne tanef la ci ngirub hashimi muy nabil mustafa mune soko defé rek tanaalu ladhi tabghi min al fath wal yusri di nga am lépp lo xamne yang ko doon sàkku ci ubbeef ak lan yombal li moy fathul akbar al qur'an ne inna fatahna laka fathan mubina li yaxfira laka allah sëñ bi jàpp ci sànni ko fofu rek loxay yi dañ jàpp te lii dafa xawa sakkar وليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم مو اندي غارانتي بي وينصرك الله نصرا عزيز لولو لان لون موي خام خام بي شيخ الحاج مالك ني ولا بوك وي بي ني تنال الذي تبغي من الفتح واليسري فتح بوبو موم لا القران اندي نبي المصطفى اوبل لي بونتو بو لير لا lu tax ñu ubbil la ko ngir yàlla jéggal la sa bàkkaar yi njëkk ak yu mujj mu mottali xéewal gi mu war a def ci yow su ko defee na mu garanti la jox la ndimbal loo xam ne kenn du mun ci yow dara sang bu tedd bi muy Maolana Cheikh El Hadj kuy kuy da gannaaw boo wàccee ñaareel dina la wax kàddu yi may bugg a wax si na nga gëm xam-xam bi na ko fonk nanga nangoo liggéey fonkal sa ñaari wayjur bañ a la tooñ féeg yaa ngi sax ci loolu yàlla moo lay aaral boppam gis nga ndey jila jur wala papa jila jur su waxee ba jalgati ci xam-xam bi yàlla mooy dal ci kawam yàlla moo ko garanti Nabi Moustapha ne ko ubbil ne la bunt bu leer pour yàlla jéggale sa bàkkaar yi njëkk ak yi mujj li may laajte mooy kan moo gëm ne Nabi Moustapha am na bàkkaar alxuraan tuddut ko de alxuraan ba mu jeex benn yoon lañ ko joxoñ te joxoñ boobu du moom ñeneen ñi mel ni ñeneen ñi la <laughs> moom secteur dina ci jaar <laughs> waaw kon su koy wax aaye su daan wàcc saxaaba yi nabil Moustapha dafay sëgg ñu joxoñ saxaaba yi exemple bi mooy Cheikh Ablaye Diop mu ngi amee doomam jël na benn gaadin lu ñuy tuddee jardin defar na ko ba mu baax xale bi moo koy defar man xarit laa ci doomam suma ñëwé ci tool bi man dal dok lek dok sanni lay nekké té papa ji nak mu Cheikh Ablaye Diop man xarit la ci domam te rus dama wax dara ngir domam légui wax ji nak la ko mëna défayé bama xamné ma man yaq bi dama ko wara bay su ñëwé da fay wax domam né ko diw suma ñëwati fekk tool bi dina défanté ak yo nangam ak nangam té xamné né ne défur ko xarit domam moko def su ko défé xarit domam dana dégg wax ji xamné li mom la daf ñu dal ndar benn waajoo xam ne ndeysaan ku baax la doon business xeexante bi am ci marché bi mu am jafe-jafe ñu dog tànk ba jabar ji tamit di jóg di daanu di sonn ba taxawal kër gi xale yi su ñuy lekk mën ngaa bokk ak ñoom ñuy lekk ba pare benn doomi maalo du rot soo ñëwee nekk faggan dinañ jël torsion tegal la xam nga ndar ñoom dañ mën a teral nit waaye léeg-léeg nga gis ku ñëw di lekk sooy jóg da ngay rus parce que xale yu ndaw dañuy lekk ba jóg benn maalo du tuuru foofu na bokkut ak boor bi nga xam ne yàlla mu ngi sóoraale ñeneen ñi nga xam ne dañ bokk ci wërsëg bi ni ko sang bi waxee léegi gàmm gi ñëpp a ci bokk gis nga kuy weddi ne gàmm amut man de lenn duma dem sàkku ci ci benn télévision du ma sàkku ci benn rédio pour am keneen jotaay waaye bés bu ñu invité jotaay lii dëgg dana feeñ lii caaxaan dinañ ko xam yonent bi lu tax duñ ko màggal koo xam ne waajuram balaa moo juddu wala boog bi mu juddoo ba màgg gannaaw bu papaam ñaanee pour yàlla may ko fukki doom yu góor mu mun koo aaree boppam di fen boppam ba kenn du ko toroxalati mu ne su boobaa dina ci jël kenn def ko hadiya lillahi rendi ko pour sante ko yàlla yàlla def nag mu dem ba am fukki doom yooyu mu bugg a jëllale jamono bu nekk yàlla feeñu ko ci nelaw wan ko ne ko ah sa kóllëre gi nga faslante woon man dël bi nanga ko matal mu def ko ay yoon mu xam ne lii du caaxaan mu xëy nag ne dañuy dem mu bantele ji ko ñu dem ci gis nga sharia dañ ko dalal bum siis nitu islam dañ leen dalal buñ siis yàgg na ñoo dimbale de loolu dafa yàq jamono ñu dalal la yaatal la nga yaatu ba bugg a xatal ñeneen ñi la dalaloon nañu yaatal mbir yi Eh, nasaraan yàgg nañ ñoo dimbale bi yonent bi sallallahu alayhi wa jàqee ak saxaabaam yi tiit xat dafa yónnee ca yi ay nitam ñu dem làqu ji foofa waaye loolu xissa bu gudd la duñ ko topp bi nga xamee ni nag Abdoulaye papaam wan nañ ko loolu ñu dem bantale ji ko bi ñu demee ñu laaj leen diye yi nga xam ne moom ngeen di joxe comme su nit reyee nit ñu war a joxe diye ñaata la ñu ne fukki gëlëm mu ne leen kon dangeen di génnee bantale yoo xam ne bii da ngeen ci bii da Abdoulaye bi ngeen bind ci gëlëm yi muy diye bi waxtu woo xamee ne génne ngeen mu dal ci Abdoulaye dolli leen ñuy dolli di dolli di dolli ba téeméeri gëlëm yi mag mu door a wàcc Abdoulaye gëlëm yi nag laa bugg a wax lan lañ ci defoon tey Maulana Cheikh El Hadji Sahir su amoon junney gëlëm ak junney xar junney nag junney béy wax dëgg yàlla su ko joxee tamit tiyaabu bu réy la ci am ñu bàyyi xel de dafa am lu sharia di jàngale lu bari ñoo xam ne tey su fekkoon ne dañ toll foo xam ne ni mag ñi daan def bu njëkk la mu taara xamuy sànni wante ay masala konoon tey ñu baree bari ci biir Gàmbi danañ yeew seen gémmiñ tànnal doctorat boo xam ne moom nga gën a wóolu ñetti masala du ko passé benn du ko ci tontu te ci biir sharia lay nekk gannaaw bu ñu rendee gëléem yooyu mu ne leen su ngeen demee jël leen ku ngeen séddale li ngeen ci mën a lekk lekk leen li ngeen jox xaj yi nañ lekk bukki yi nañ lekk lépp lu lekk ndawal na lekk ci loolu gàmbu gaa ngi nii sang bi wax na ko léegi xar yeeg xaj yeeg nit ñi wuute na nag xaj yonent yàlla wax ba nag xam naa tuuti ko noonu mu bokk ci waaye gis nga am na wax boo xam ne su ko nit ki xamul soo ko waxee rek mu doy waar li dajale doomu aadama yi dafa am nit ñu nit ñu nekk ci biir nit ñi am ñoo xam ne gan lañu ci àll bi lañ jógee nitewuñu ñooñu ñuy yàq société bi dégg nga ma bu baax gars yi ñu ne nañ koy kooba kon nag nañ ko kooba masta tax na ñooñu ñooy yàq société bi waxuma gan yu jógee ba sede waxuma gine de waxuma feneen de gan yi may wax neelul daa xam nañ ko Mawlana Cheikh El Hadji Saïd moo ñu ko jàngal mu balle cobeli ngarawaal moom la bi ñu rendee gélém ya nit ñi lekk nañ ci xaj yi lekk nañ ci bukki yi lekk nañ ci kon kan lañ doon piripiyaal di ko tàntalaale di ko teralaale muy nabil Mustafa bi war a judd si parce que kooku la gënoon a bëgg ci doom yi doon ko aar jamono bu nekk li daloon Yaaqub daf ko dal loolu la moo tax jamono bu nekk ki nga gën a bëgg ci njaboot yi ñaareel tolof tolof dafay bari di lu muy dal ci kawam li may wax ñi jàng taarix xam nañ ci dara kon yonent boobu balaa moo judd moom la maamam reyal loolu pour jotee ko ki nga xam ni moo war a nekk papaam kon ñun lu ñuy xaarat ci kaab mi ñu doon wax ci gannaaw kaab moo wéy xas yonent bi wax ko wax yu ñaaw arab dañu gëmoon wéy su fekkee ne wax nga boole ci wéy nga xas leen loolu moo leen di gën a métti soo leen di tagg nga wéy daf leen di gën a neex kaab nag wéy xas yonent bi xas yoo xamee ne xas gënu koo ñaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne jamono jooju lu ñuy dund dund ci jaahil kaaba gi ku fa dugg rek sa yaram na kenn du la laalati mu ne képp koo xam ne gis nga kaab nang ko rey rendi ko nga dog bopp bi indil ma ko man nabil Mustafa gars yi commencé di ko wéy di ko wër gars yi di ko wër gis nga lii xew léeg-léeg ci yenn réew yi te yàlla na ci yàlla musal Gàmbi bi mu fi amati ba faw mooy lu ñuy tuddee coup yàlla nañu ci yàlla musal yàlla na bu mu xeñati biir Gàmbi yàlla na bu mu fi xeñati gars yi nag commencé xarit bu mu dem làqu rek ñooñu génnee ko ne dañuy ragal ñu xam ne yaa ngi fii suñ leeree ñu boole waale ñu ku nekk xam ne kuy coup d'état ba làqu ji nit ñu ko gisee danañ la téye téyewaale ko ku nekk na commencé di daw benn xaritam boo xam ne ndeysaan ku baax la comme nga léeg-léeg nga gis koo xamee ne daf lay wax ne ah, soo fi toogee benn fan ñaari fan dinañ la téye de xaaral ma dimbale la ci xaalis wala noonu gars yi yollee ko dugg biir Sénégal wala ñu dugg feneen waaye yàlla na dakk ci yoon bii ni bu mu amati biir Gàmbi Pa Malick nañ la bu baax ziar nañ la bu baax kon bi nga xamee ne loolu am na gis nga Nabil Moustapha ku ko tàntalut te nga am loo ko tàntalee leneen loo dund ci àddina bi kasaara la ci yow kaab nag xarit bii ne ko xam nga nooy def lenn moo la mun a musal suuf si lu mu yaatu yaatu yaatu yàlla nabil Moustapha la ko jox ni ngay def moo trayel nga waaxu dem ba ci moom ku bari yërmande la moo tax góor gi am lenn luñ ko doon wax benn waaye boo xam ne bu doy waar la tooñoon ko tooñ yu métti ma ne ko lenn dee góor gi maa ngi koy wax yaa fi gën a mun a yërëme nag waaye gis nga kii soo ko yërëmee tamit yar bi dana dal am na lu la yàlla may gis nga loobu bugg def nga def ko ci dara jaam tey laa koy door a wax am na loo xam ne ku koy ñaan ñaan ko ci dara jaam wallahi laazim foog mu dem ma ne ko kooku soo ko baalee soo ko baalut yarbi na dana dal ci kawam waaw alquran istaghfir lahum aw laa tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sabaina marra walan yaghfir allahu lahum loolu la yàlla waxoon nabi Mustafa su la neexee na nga jéggalu leen nga yàqal sa yàq sa ngelaw gémmiñ su la neexee nga ñàkk a soo leen jéggalu loon seventy times du ma leen jéggal kon mu ngi noonu kaab nag waaxu sumurlu mooy laxas kaala gi ci bopp bi ba bët yi di feeñ mu waaxu ñëw ba ci pegg nabil Moustapha mu toog nuyu ko sang bu tedd bi mu ne ko ah yonent bi mu ne ko naa mu ne ko gannaaw bu ma la nuyoo yow de dégg naa ñu ne danga wax ne waa ju ñuy tuddee kaab fu ñu ko gis nañ ko rey mu ne mu ne ko waaw maa ko wax de mu ne donte dafa dugg ci kaaba gi sax mu ne ko donte dafa téye si xilaafu kaaba gi mooy koddaay gi gis nga kaaba yi tamit su guddi gi yaatu woon lu rëy mu ngi ci kaaba gi su aj gi jeexee dañ koy woddaat su ñuy aj màkk dañuy génnee koddaay gi na nga aj fii ci biir Gàmbi balaa nga génn dem su dul loolu yàlla du la ko nangu gis nga suñ la ajalee fii gis nga nag suy biir Gàmbi la dañ lay ajal so pare nga adjal kenen suñ la adjalé aj gogu nonu nangu nga doora déparé fi gis nga kuñ ajalu do dem aji mag wallahi nga adjé fi ci bir gàmmi nga doora dem aji su kaaba gi su aj màkk dañuy muri malan giñ ko wor dé wor waye sooy aj màkk fii tamit fokk malan gi dana genn kaaba gi ngay dem non nga dem ci hajarul aswad sharia dafa yéeme ñaari xeer moo fa nekk xajarul aswad mu ngi fa rukkunul yamaani mu fa da ngay ñëw sooy dugg ci kaaba gi yaa ngi am ci xajarul aswad sa càmmoñ ñu ne nanga ko fóon nga wër ko nga dem ci gannaaw fekk fa rukkunul yamaan gis ngeen ko moo tax joxraafi di jàngale lu yéeme suuf si benn palaat la nekk ñaari cer yi ñoo koy dawal gis ngeen ma bu baax pare naa ci suuf si ñaari cat moo koy doxal waaye su benn cat bi dammee danañu ut dara sukkandiku ci mu dem dégg ngeen ma de moo tax sang bi dafa am lu muy jàngale lu rëy sharia lum la wax gis nga garab du jeeb bi dem ci kaw te amul reen ci suuf ku weddi xam-xamu xaqiqa weddi nga sharia te yëguloo ko moo tax mu ngi noonu kaab nag bi mu jàkkarloo ak ci bi commencé abiyaatam yu yéeme yooyu abiyaat ya bari nañu lool xajuñu fi matlaax bi mooy baanat suaadu fa qalbil yowma matbulu mutayyamun israha lam yufda makbulu wa ma suaadu gadat albayni id raxalu illa aganna gadida tarxi matxulu hayfaau muqbilatan ajzaau mudbiratan laa yushtaka qisarun minha wala tuulu ba abiyaat ya xam nga ñoom dañu gëm balaa ñuy dugg ci biir néeg dañuy koŋ-koŋ mu jël xasalam na def ko ci benn ndaw soo xam ne su rafet la su la joxee kanam da ne ah kii de kanam gi moo dax su la joxee gannaaw nga ne óola oh la ci bayti yàlla de la buur ba la waaja doon wax la nag bi ko buur bi waxee wéyal ma suma jabar mu commencé ca kaw ba ci suuf benn naa fekk ñëw ne ko buur mu naa ah, mu ne ko kii su jaarutoo na sa jabar ab ruq du xam li muy wax nii mu dem óolu ji ji mu ñëw mu ne ko yow nag li ma la tagguloo li nga wax dafa ëpp mu ne ko buur yaama ko sant di dama la fonk ngir fonk sa jabar rek bu ñu gars yi jaxase waay mu ne ko ah wax nga dëgg moo tax gis nga doomu aadama suñ la ne diw moo wax nangam wala moo def nangam nga gis ko oo ko nga laaj su waxee lu enu maanaa xam nga su wax lu enu maanaa xam nga waaye nag bi nga xamee ne kaab mu ngi wéy loolu dafa laaj yonent bi ndax xam nga kan mooy kaab yonent bi ne ko d mu ne ko sax soo ko gisee di nga ko xàmme mu ne ko déedéet waaye wax nañ ma ne daal daf ma xas am na ñu ko xam sant naa leen pour ñu rey mu ne ko ndax kaab su ñëwoon di ko di jéggalu di nga ko jéggal mu ne ah waaw waaw kaab départ nag si la door a commencé baytim yooyu di koŋ-koŋ bunti nabil moustapha di yëngal nabil moustapha di ko yëngal ba yaram bi tànk mu doora a dem nag fi muy tëjee baytim yi am na yu bari yu ci nekk yu yéeme waaye nag fi ko nabil Moustapha gàggante woon ak ni mu gàggante Mouhamadul Busayri moo tax ñaari téere yooyu dañ ne dañ safaane seen tur yi bi mu egsee ba inna rasula la sayfun yustadaau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu nabil Moustapha ne ko la la la la muhannadun min suyufillahi maslulu mu ne yonent bi de maa ngi waat ci yàlla ne yonent la boo xam ne bu yàlla jël yónni ko la waaye jaasib yàlla la boo xam ne bu ñu ñëwal la waaye bu bàyyi koo hindi la mu ne ko déedéet jaasi yàlla ji liggéey ko ñu hindi de jaasi joo xam ne ju yàlla ñëwal la mu bàyyi ko ci yàlla foofu la ko nabil Moustapha garanté mu gàgganti ko mu xam ne nag a ah, kon yaakaar am na muy wéy di wéy ba nabil Moustapha yaram bi tàng mu summi bubam bi sànni ko ko góor gi yàgg na ko ne di li ngay dégg ko mu ma demoon na ba xilaafa dañu daan jël di ko donnante su kiy jëlee sol ko su wàccee keneen jël ko sol yonent bi summi mbub moomu sànni ko léegi anay soppay yonent bi ñu ngi ci tànt bi ku ci tegalee ñaari mbubb ndax di nga toog ba mu yàgg wéykat bi di wéy ba mu yàgg nga summi benn bi sànni ko ko ndax di nga toog ba mu yàgg ñu ne ah kii mu ngi nii mu bojeetoo dara jel ko sànni ko ko Nabil Moustapha def na loolu kon suñu màggalee yonent bi war nañu suñu ko màggalut yàlla màggal na ko malaaka yi màggal nañ ko sant nañu ko gëm ñu màggal yaa ayyuha lazina amanu boobu laa ciy jël inna allaha wa malaikatuhu dem na yàlla julli na ci yonent bi mook malaakaam yi julli na ci ñun sant ñu ne képp koo xamee ne gëm na yàlla yaa ayyuha lazina amanu charte la ku gëmul bokk loo demal sa yoon xam nga li gars yi di wax ne euh, naka la nu ko gars yi di waxee ti woy wi euh, ku naan ba man di jógal tëri bul yàqal ñu naan agut waaw xam nga am na nu ko gars yi daan wéyee waaw yonent bi jël mbubbam sànni ko Muhammadul Busayri di wéy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono ji nga ko wéy boobu mu ngi paralyse benn wet bi mu ngi dee muy paralysé muy wéy yonent bi di ko woy waaye mu ngi njëkk a commencé ci téere góor gi muy Hamziya gis nga maandu dafa am solo soo gisee duma dem ci Hamziya duma dem ci xilaas kenn ku ci nekk da nga koy bàyyi waaso waaye su dajale jotee nag dinañ dajale yëpp góor gi mooy borom hamziya borom xilaas a ngi nii ñu bàyyi leen ko ñu dugg beneen boor yàlla dafa yaatu gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu mu gàggantee kële Muhammadul dafa commencé téeréem boobu muy hamziya dafa ñëw rek na saraax ci néeg nabil Moustapha te konkongul moo tax ñu wëññi ko ne ko sëñ bi soppi nga waaye da nga ñàkk teggin nettali woon naa ko ci suñu burde bi mos na maa dal benn bi su suñu sëriñ c'est Alioune Badara Gueye ndeysaan ku mën a yar te tàng jir nag dañu daan xëy pour dem nuyoo ji ñuy njëkkalante kan moo njëkk nuyoo loolu pugare woon ci ñun mu am benn doomam du ma tudd turam mu julli ma julli mu départ ne mu ngay dem manit ma départ pour njëkk koo nuyoo waaye bi may daw ba jub góor gi may summi suma dàll bi benn bi génn benn bi génn ma gaaw ne maa ngi koy joxloo mu wëññi ma ak mecc metti ma lool waaye ba ma dee xool ba mu yàgg ma ne ah metti na ma waaye man maa ko def lu ma yàkkamti yàkkamti ay maa njëkk a nuyoo wala njëkkumaa nuyoo wóorut a tax nga def loo xam ne defuloo ko ma delluwaat ndek njàngale mu rëy la njàngale mu rëy la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne Muhammadul Busayri way na Hamziya dafa tëbre ne kayfa tarqaa ruqiyakal anbiyaau yaa samaan maata wala daxa samaaw waaye yow Nabil Mustafa naka la yonent yi di éegee comme ni nga éegee dem ci yàlla naka la ñuy mën a éegee munuñ ko yow ki nga xam ne yaay asamaan si gis nga arab lu ko féetee kaw rek asamaan la ñu koy tuddee tey su la neexoon baas bii nga jël ko tuddee ko asamaan samaawul xis yi dafa am samaawul maanawi am li ñuy wax ne jotaay bi tey diw moom la ñu jox toogu bi gën a kawe tey toogu bi gën a kawe Mawlana Cheikh Alhaaji Saïd mu ngi ko jël jox ko ki wuutu xalifa bi muy muy Cheikh Abdoulahi léegi ndax tax na toogu mi xanaa cat ba de moo gën a gudd toog yi waaye fi mu toog moo gaa yi ñooyam kon bii moom lañ jox toogu mag bi loolu maana wii la tey suñ ne bi moom lañ jagleel toogu bi gën a foor bi gën a kawe su toogee moog nit ñi ñooy yem waaye maanaa la ñuy waxee xes yi nag am na xes yi mooy lan jël nañ toogu bi mu gudd sa kaw gitt ñëpp ñu ne ah diw dee moom lañ jox toogu bi gën a kawe soo xoolee xes yéen wa maana wii la daf ne saxaaba yi yéen ñoom mayeele leen ma mu bëye ña ko xamee woon du buur ya mu xaawiya soloxoon na ko ci ñoom fay leen junne yi e, naka la seen xaay bi naka la tuddati ñu bañ ne duñ ko jaay xamatuma nag ku ko mujjee waaye dañ doon bañ nanguwuñ koo jaay waaye ba yontu bi mayee mbub mi famille ba dañ ko xamee woon de ko donante bi mu mayee mu ne saaba yi mayee leen ma kon suñ tàggee yontu bi ngeen mayee mayee xaat yontu bi ngeen de doon bisimilah nañ ko bu baax waaye moom nag mbub mim ñu jox mbub mim ñu jox ñun moom daf ñu tàggal yonent bi ba pare jox ñu mbubb gis nga doomu aadama aljana bi ñuy tudd safara bi ñuy tudd mbindeef la rek bu kenn jaamu yàlla ngi dugg aljana bokkaale bu rëy la bu kenn jaamu yàlla ngi ragal safara bokkaale bu rëy la safara yàlla daf ko bind bind aljana bind yeneen ak yeneen ak yeneen mu ne nit yow li ma la jagleel mooy dama jël làmmiñ bu fasaaxa jox la ko yaay fal yaay folli xilaafa gi ci yow laa ko yow laa ko teg yow nag tey dama la sant pour nga jaamu ma del julli safara yow dama la sant pour nga nekk fi képp koo xam ne nii mooy na ma ci suma coobare ma nar ko mbugal suma coobare su ñëwee na saf sàpp ci moom na tàng jir aljana yi tamit mu ne ko képp koo xam ne jël naa ko ma teral ko ma dugal ko ci yow na neex lool ci moom aljana def liñ ko sant safara def liñ ko sant nit moom dem di ragal safara ba pare di xemem aljana bàyyi nga fi yàlla bàyyi nga fi yonent bi topp nga di jaamu safara yaa ngi jaamu yàlla ngir ragal safara si kon jaamootuloo yàlla de mu ngi mel ni ñu jël ñaari nit sant leen gis nga tey honorable Badji su ko neexoon mu toog ñàkka a dafay mel ni kon dañ ko sant li ko sant deful ko waaye su ragalee ne tey su demutee ci yonent bi danañ ma folli mun naa ñëw ci loolu waaye ñëw ci tabi'a yi moom la yàlla soxla lépp lu yàlla bind mu ngi jaamu yàlla tawan wa karahan ci bi mu la neexee nga jaamu ko ñu fay la su la neexee su la naqaree di nga ko fay di nga ko jaamu ñu waaw bàyyi ma dem rek ma ma tëj yàlla lim soxla nga jaamu ko ci tabi'a nga jaamu ko ci dal goo xamee ne da nga koy def ngir ne moom moo la ko sant kon jaamu yàlla dafa yéeme de Mouhamadul Busayri ñu jaaree ci muy wéy gannaaw boo xamee ne wéy na Hamziya mu gént gis yonent bi yonent bi jox ko gannaaw mu xam ne lim def waru koo def mu delluwaat nag bi mu paree ci boobu mu wéy lu ñuy tuddee burda ci la commencé woon amin tadakuri jiraanin bisi salamin mazajtadama an jaramin moxlatin bidami waaye nag bi mu yeggee ci benn bayti lawla lahwa lam turix damoon ala talalin taral boobu li tax ñu koy faral di wéy su nekkutoon cofeel doo dem ba ci gent boo xam ne say nit ñoo fa dëkkoon nga taxaw di xalaat diw dee xamoon naa ko waaye dëkk bi gént na raaf na arab liñ gëmoon mooy xeex naan sàngara topp jigéen ñi jéem a falu kese moo waral dañ daan ñëw ci biir dëkk attaque leen rey leen tas dëkk bi jël jigéen ñi def leen jaam jël góor ñi def leen jaam dem seen yoon moo tax ñu bari woon dëkk yuy gent gis nañu ko xeex boo xam ne passé na ñeneen fukki at ci xeex yi gën a gudd ci xeex yi muy xarbul basuus waaw mu ngoo bari na fi de bari na lool moo tax bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne Muhammadul Busayri yi def na xasal koŋ-koŋ na buntu yonent bi ba mu pare nag mu door dugg wax moom bakkaar yi nga xam ne moo ci moom ak tilim bi mu tilim ndax yell na pour muy woy nabil Mustapha mu ne ko waaye nag maa ngi def taasir ci li may ñëw wëy si waaye damay def tawassul ci yow bi muy egsee nag di wëy yonent bi ba egsi ci fa mablaghul ilmi fihi annahu basharun mu taxaw xam nga ngay wëy nit ki naan kii moo gën kii kii moo gën kii moo gën malaaka moo gën lu dul malaaka moo gën lu dul nit foog nga taxaw léegi nag bi nga yegsi ca pandaw gi diggante mook yàlla ah di nga taxaw de mu ne daal fa mablaghul ilmi fihi annahu basharun li xel mën a jàpp ci nabil mustafa ak lo wax lu reey lu mu reey reey reey reey reey nit la legi nak ban façon nit la jaaxal ko ndax su waxe yunit bi dana ko mere comme ni ko mere won ndax dana nek tuqiduna ci mom mu taxaw fofu ay fan mënut a continuer ben bés mu teud nabil mustafa fëgg ko ne ko wax nga deug de fa mablaghul ilm fihi annahu bashar waye nak wa annahu xayru xalqillahi kullihim gàtta la rek bul ne moo gën nuux yaa gën yusuf yaa gën kii yaa gën kële mu ne daal teg ci ne li yàlla bind dëgg dëgg dëgg kii nit la de waaye lépp lu yàlla bind moo leen gën moo tax yonent yi feeñu ko raay wet gi wet gi wér ñu indi ci wax nag bii moom lañ tuddee burde mooy Muhammadul Busayri bële moom lañ tuddee baanat mooy bu kaabu léegi nag ñu ne kon Mouhamadul Buseyri bi mu wéy ba nga xam ne dañu ko jël jox ko wet gi mu wér moom la ñu waroon a tuddee bur u mooy wér bi nga xam ne moom la baanat wéy ba Nabil Moustapha jël mbubb sànni ko ko ñu ne moom la ñu waroon a tuddee burda waaye dañ safaane mairie yéeme na lool waaye nag ñuy sant sang bi bu baax xam naa soreetuñu waaye duggagu ñëwoon ci yonent bi de dañ doon fàkk rato bi nag xëy na des naa set parce que yonent bi ku ko bugg indi ci place da ngay nooyal place bi ba mu nooy waaw da nga koy nooyal ba mu nooy nga door a ci moom ndaxte mooy koo xam ne moom la Muhammadul Busayri doon wax ne moom la yàlla tagg jël sees bi gën a kawe jox ko ci baatub nuun nuun wal xalam yi wa maa yasturuun ba tànk bi yëngatuwut tomb booba gis nga moom la gi di jàngale dembu bi mu paré ci bourde bi biñ ko tejé dama dem tok tok tok xelal xelal bam yag mané ah way nañ continuer rek yalla dinañu djéggal parce que faté gi ni ko xel ñu jang faté alif gi ñek ci faté bi di nga koy jàngaale te rek né bismillah te alif gi ci la bok kon ñu ci faté bi mut yalla ñu yërem rek <laughs> xana kay fatiha gi mu ngi maté ci nit nit moom si commencé jang gis na yalla dafa am sekkereem def ko ci biir sekkere kim ko denc kooku tamit sekkere la ci moom kaawte bi gën a ci li yàlla bi nu du asamaan du suuf nit la te nabil Moustapha moo ko jiite moo tax na bi mu koy tagg muy jël saar boobu ñu tuddee nuun soo demee ci ulama u tafsir dañu ne nuun ñu ne benn jën la boo xam ne suuf sii ñuy dox mu ngi tegu ci kaw ndox waaye jën nga ca lu ñuy tuddee yëkk mu ngi ci suuf waaye soo demee jën wi moo nekk ci kaw ndox mi moo taaw leneen yi ñu ne moo tax ñu tuddee nuun ñu ne benn jën la boo xam ne mooy tëmb ci biir ndox mi nekk nuun boobu yàlla daf ko rocci sànni ko ci jëmmi doomu aadama mu jëlaat nuun boobu sànni ko ci biir géej googu muy tëmb ak moom muy tëmb ak moom ba ba muy teeree doomu aadama génn taxaw mu ngi noonu de yàlla ku yéeme la yàlla ah a defu dàngare kon xobi soble yaa ngi ci kawam mu ngo na sàng bu baax rek ñu ngi sant ñëpp ah, ah. noonu na koy ñëpp jikko <laughs> <laughs> <laughs> alxuraan di léeg dana ci wax loo xam ne man damay foog ne beneen alxuraan la sax bu ñëw ndeke ndeke way naka laa laa xulaqin azim ci saar yi la bokk <laughs> mu ngi noonu bi ko yàlla ne nuun yemut ca yàlla matériel yi ñoom la jël dajale ko jël imaamu matériel yi teg ko ci kanam gis nga moo tax bi nga demee ci bismillah tamit ci riwaayatul wars ñoo gën a jotale riwaayatul wars mooy ñi jànge wa duxee wa leeli isa saje bi taadil soo demee ci bismillahi bi danga nga fekk benn tomb ci kaw ci kaw alif bi nga fekkaat tomb basmala bi ci ron fekk alif gi nag foofu la ñuy jaar tali boobu nekk foofu foofu la jaar moo leen di recevoir ndeke tombam boobu ci kaw yàlla bi mu koy ajee asamaan si daf ci xaaj ajal ko doomu aadama ci digg bopp bi dégg nañ ma de mbaa génn ci biti beneen xaaj bi di des mu ne ko yow góor yow doomu aadama jox naa la benn beneen bi ne dama koy wàccee jox ko ñeneen ñi mu jël tomb boobu noonu mu jaar ci alifam gi mu ne ko sa bos bàyyee naa la ko liggéeyal nañ la ci ñu jël bii nag toxal ko jox ko ñeneen ñi <laughs> <laughs> waaw xam naa léegi tey jox waaw yaram maa ngi tàng <laughs> yaram maa ngi tàng te te te suñu tollee tomb boo xam ne gis na ne njëriñ lu rëy mu ngi ci te ñun suñuy bët lu ndaw lay gis day bëgg doomu aadama yi xam ko gis nga ñii liñ bëgg bés bu leen yàlla seetaanee safaraam si du fees li mu ne basmala boobu ñuy wax am na tomb boo xam ne mu ngi ci suuf bët du ko gis moo tax gis nga tubaab bi tubaab bi gis nga ñu yalla may lañ xawma jang nañu alquran wala janguñ ko waye mom lañ rocci ci ga gëg ci biir mom lañuy ñuy gis nga tubab bi bu xolé alquran jang ko bëm baax ci la jël yu bare bare mu liggéey ci ñu jël ben gis nga li ñuy caméra soko sanabe waxuma digital yi Paski légui parce que adina bi mu ngi develop mu ngi develop waye gis nga fiñu tollu ni yegg nañ fo xamné dootuñ ko passé da fay gëna rafet rek li tax ñuy wax cassette bi njëkk a génn buum la daan nekk muy vidéo bi muy audio bi waxta si mu bi xablillahi moo ko génnee waaye biñ demee ba nga xam ne digital mu ngi génn DVD mu ngi génn CD mu ngi génn waxta si mu billahi door a ñëw boobu daay rek la amul wëñ amul dara ay jàpp ci buum yàlla gi ñu foog ne buum gi dangay ngay téye fii di yéeg ci asamaan si yàlla dafa wàcceelu lépp lu am solo yàlla nit la ko jox lépp la am solo yàlla nit la ko jox tey mu ngi mel ni bi nga ñëwee yàlla moomoom àddinaam bi waaye yàlla amul fi dara dara dara ba dara booloo nit la fi am te nit li ci des moo ko moom gis nga bi nga jógee fii dugg ci biir kër gi ci kër Mawlana Cheikh El Hadji Saïd benn néeg la fa am ci biir benn néeg boobu benn lal la fa am li ci des yëpp ñun ñoo ko moom waaye soo ñëwee ci kër moo Cheikh El Hadji Saïd da ngay ne këram la ñun am nañ fi surga yi am nañ fi néeg xar yi am nañ fi néeg pitax yi am nañ fi néeg yu Moussa Bala yi ñeneen ak ñeneen am nañ fi néeg <laughs> kon mu ngi noonu biñ ko dajalee yépp ñu tuddee ko kër Maolana Cheikh El Hadji Saïd yàlla nag dafa jël addinaam bi tasaare ko lii mu jox ko nit lii mu jox ko xar lii mu jox ko bi lii mu jox ko ñeneen ak ñeneen tasaaroo ci ñoom waaye kan mooy remote control bi ci li yàlla bind nit mooy remote control bi moom la ko yàlla jox lépp lu soxla ci la koy jëlee moo tax tubaab bi bi mu xoolee loolu mu ne xaaral pour piler leen ngeen di feeñ wala ngeen koy dégg des na xaaral ma leen di sanaab di leen jox ay picco bu njëkk su fekkee sanaab nga te développé loo ko su génnee si su ko jant bi gisee mu yàqu ndeke fa yàlla di développé doomu aadama waxtu wu ko ngelaw gisee loola dootul baaxati wallahi yàlla fa muy développé doomu aadama ah wa duhaa walleyli isa saja maa wadaaka rabbuka wa maa xalla lii mu ngi dox ci bëccëg waaye su war a liggéey na guddi lay dox su fekkee bëccëg la guddi la su fekkee guddi la guddi la comme ni jant bi di fenkee rek tey jamono jii jant baa ngi fenk jant yaa ngi fenk ñi xam-xam nañ ñi ko yëg ñu ngi koy yëg moo tax ci gannaaw ñu ne benn fan ci yàlla junne yi at la ci doomu aadama nit fanam lu mu gudd gudd gudd benn fan la fi am tey li may laajte guddi gi moo bëccëg gi ànd moo bëccëg gi ci gannaaw ñoo ànd wala bëccëgu suba gi la àndat guddi gi moo bëccëg gi ci gannaaw xam nga dañuy wax ne ñu ne gàmm gi kañ la àllarba gàmm gi du àllarba de alxames la tey ñu ne suba lañ suba mooy gàmm gi kon du alxames àjjuma la parce que xalaqal layla wan nahaar guddi gi la yàlla bind guddi gi jeex mu bind bëccëg gi mu door a mat gis nga tey su fekkoon ne d'accord nañ ne bëccëg la yàlla njëkk a bind kon nit dafay judd ba pare ñu door ko ëmb bi ñu ko dugalee ci biiru way juram mu ngi ci guddi moo tax bu ñuy juudal mbir yi bi baram seree na yàlla jël nag jantam bu tedd ba sànni ko ci jëmmi doomu aadama mu koy niital yëpp moo tax nag hablin nufuusi rabbana tuqaaha wa li kulli man daaha ñu dellu beli nga rawaalo samsul jusuumi seyquna qaa'iduha wa dawuha shaamilatun saraha gis nga janti jëmm yi góor gi jaar na ci léegi janti jëmm yi ci jamono bi cheikh imam mouhamadul kabir bari di dox di dund yépp moom la ko yàlla joxoon ku xam ku xamut ku nangu ku nanguwul ku gëm ku gëmut dafa mel ni léegi tey tàkkusaan jot wala mu ngoog fajar waaw ku xama ku xamul ñëpp moom la ko jox samsul jusuumi cheikhuna qaiduha mooy wommat yëpp remote control bi ci loxoom la ko yàlla jox la ko yàlla teg waaye nag wa dawha chamilatun saraha moo tax ruuxu doo mun a wax na fii la toll ci doomu aadama doo mun a wax ne fii la toll su xasee dugg rek jàmm jëmm ji yëpp leer na moo tax jant su fenkee mun nañuy wax ne fii la sax xam nañ ne fii lay duggee fii lay delluwaat moo tax ñu ne bés bu àddina di tukki jant bi fi mu doon fenkee foofu lay soyee léegi na ma génn foofu noonu yépp balaa maa wax ñu ne feeñ naa fekk nag feeñu ma de gis nga doom aadama góor gi jàngale na ko wàcceekat yaa ngi nii man dañ ma xaw a noppalagum ngir na construction bi waaye ba ca kanam dafa am ci luñ nekk incha allah suñ paree dinañ delluwaat ci waar bi xam nga li góor gi di wax bugguma def loo xamee ne yàgg nañu ko wax ba Bachir ma ne naam bugguma benn tomb boo xam ne njuumte la ma def ko ëllëg ak si biir leneen de moom a jaaxal mu ne ëllëg ak biir ñu leen di wax ne seen papp te man ma daan xelaat ne léeg leen ma dem bàyyi ko fi jël suma at yi li des moom mu yóbbu ko waaye woy jur ci mbaaxam ak fonk njabootam moo tax jamono buy nekk rek moom dafay jiitu ci xabru bàyyi doomam yi gannaaw loolu rek lay bugg waaye xamuñ li yàlla di dogal mu ne bugguma ëllëg ak ñu ne sa papa moo waxoon nangam wala moo defoon nangam te dungeen ko mun a weddi mu leen di naqari moo tax doomu aadama bu nekk war na di bàyyi xel loolu waaye gis nga nag yàlla su nar def li muy def doomu aadama mënu ci dara de balaañ maa lii dafa mel ni waxtu yi balaa ma eggee foo xam ne dafay xaw a doy waar kon fi mu tëjee fi ñuy tëjee mooy ci cheikh imam mouhamadul kabir bari foofu lañ déparé woon gaal gi daal suy daw dafa mel ni benn tournal la nit ki su dawee dem mun nga koo xàmmee mun nga koo ñàkk a xàmmee moto bi dem mun naa tourner ñëw ci tournaar bi ñu defaraat doo ko yëg kon dafa mel ni waxtu wi jot na ñu ngi jéggalu ñu takk ko fii su egg ñu jox ko mic bi <laughs> incha allah jërëjëf jërëjëf. Eh, eh, eh, Sall Sall jërëjëf Ibrahima Ibrahima kenn ku yëngalal tuuti waaye yëngalal yëngalal ñuy def julli ko saako. ñu toog xaar bañ julli ñu continuer at waaye mun ngaa yëngal tuuti yëngalal tuuti ci sikar si bismillah waaye li mu ne ñu a